xarit ci boppam lañuy ñuy waxtaanee xarit dina gën doomu ndey xarit sunu maam ya gis ngeen leen sunu yaaye ñen daan àndal ba léegi la ñuy àndal ñen daan àndal ba léegi la ñuy àndal léegi nii fi mu nii baara dama koy gis ak Moodu xule suba ma gisaat koog Njaga Jóob ginnaaw suba ma gisaat ko bi Yibra Njaay Binta Mbay mii léeg-léeg ma gis ko Nogoy Ndooy léegi léeg ma gis ko Kumba Kumba Ndooy léeg-léeg ma gis ko mu ànd ak ah, Jaynaba Njaay keeneeg moom kee nu mu tëddit mami mais léeg-léeg ma gis ko mu ànd ak Astu Njaay léegi léeg ma gis ko mu ànd ak Binta Mbay léeg-léeg ma gis ko mu ànd ak Xayri moom moom kenn xamul Moussa Ndaw nag moom Ndoye Bane rek lay àndal moom foo ko fekk maa nga ak Ndoye Bane Moussa Ndoye Ndaw Ndoye Bane Moussa Ndaw Ndoye Bane boobu mooy xaritu amitié bu fidèle waaja dafa rey nit te bu guddi woo xaritam yi ku mu yee ñëw yee baara baara man de dama am problème dama rey nit de paaka ba la jël taqal ci deret ray ci ginaar rek ñëw ni baara day wër ay xaritam baara dama ray ni rek baara dàq ko tëj buntam mu ñëw ci xayri ni ko xayri man dama ray nit mu dàq ko tëj buntam mu ko xoolal seetlul ka recevoir ci guddi googu rek moom mooy sa xarit mu dem ci beneen beneen nitam ci dem ci xaritam yépp ñëpp daw daw seen responsabilité mu dem ci benn xaritam xaritam ba daal di génn daal ni ko nañ jéem a xool nu ñuy def nañ jéem a xool nu ñuy def and ak mom guddigi di lijeenté ka laqat ñu ñi def néew boobu waa ji rey mun ko ray mo won kenn dama doon xol kan moy sama xarit te bala nga xam deug deug deug say nit nga nek ci ay tolof tolof ci ay tolof tolof fi tar ko na fi ab radio radio ba tok ñaari sans salaire ci radio bi may dédicace animé saf ak ngay bari xarit da ngay bari ay xarit léeg-léeg nit woo ma ni ma sa ben xarit bu tuddu nanga ma ñu boole kam wax ni mom moñu boole sa xawmako sa ben doomu nday mu nang tuddu nanga mom moñu boole kañu boole sa xamuñu ko xawmako waye ban toge ba nga xamni ni ba ngay waji tejj le ndoy ban mënon mënu tuku jamono yoya nga gis ni la daan wo sa portable bi su la cent personnes daan wo ngay gis ni léegi 50 personnes lay wo par jour jékki-jékki vingt cinq jékki-jékki sax kenn dootula la woo koo woo ni ko ah man de sam sunu rajo bi temps yi dafa am problème damaa bëgg nga abalal ma benn cinquante mille xool soo ko dee woo sax dootu jël loolu mooy Sénégal gars yi suñ lay jàpp jàpp intérêt lañ lay jàpp sama waa ji di toog monsieur Ndaw mii ngeen di doog gis tey xam ngeen tey lan moo tax ma jàpp ko xam naa ne bëggul ma wax ko il faut ma wax ko nag benn gone gu jigéen dafa ñëw buntu TFM wax ak man bay jooy man ko lan la mu ne ma sama yaay amul doole sama papa amul doole te damay jàng te njàng mi may jàng dafa am daal fu ma toll foo xam ne su ma jàngul ren daal am na daal lu muy manqué monsieur Ndaw mi xam na ci dara ma gis xale bi ni mu mel yiw wax ji sincère xam nga ñun suñu yàggee ci rajo yi dinañ xam nit ku sincère nit koo xam ne li muy wax dëgg la du dëgg xaw ma nu may def. mun ma il faut ma jang te aw ma fayé ma lima wara fay ëpp na 200000 ëpp na 300000 ëpp na 500000 di dem mais aw ma fayé buntu TFM ma yërëm ko torop xawmu numay def bobu waree commencé gul may xol sama téléphone bi nek sa way mi musa Ndaw ba samedi bobu daf maa woowoon ma enregistré numéro bi xam nga nit ku bax su woté ci radio téléphone di nga xam sentir dara ni ki ban façon nit la ma xamni ki ma ak moma bokki bagage bi émission bi jexé mu envoyer message ma enregistré numéro bi ma woo ko téléphone ex tegal ko problème bi mun ma envoyé ma xale bu jigéen bi ma envoyé ko xale bu jigéen bi mu def ba lef def ci la ca war ba xale bu jigéen bi di jàngi ci école am te fayul dara xale bu jigéen bi woowaat ma pour te dire man xale bu jigéen fi mu nii su ma loo ma laajoon turam turam xaw ma ko soo ma laajoon fu mu dëkk xaw ma ko xaw ma papaam xaw ma yaayam woowaat na ma remercier ma wax ma la ca xewul lépp xam nga loolu tey jii Moussa Ndaw mi du sama xarit mais sama nit la parce que jaaxle naa am na ko am problème ma yaakaar ko ci mu faj ko te loolee tamit war na koo am ci man ëllëg mu am lu mu soxla ci sama domaine mu mu exposé ma ko ma faj ko yàlla na fekk mu doon loo xam ne mën naa ko te mënoon na ko cee bañ fekk yow mi def nga ko ba taay ñii ñi ku ci nekk def nga lool ba donc looloo tax ma ñën a jàpp ni nit ku baax la fii ku fiy toog rek dañuy jàpp ni nit ku baax nga am na fu ma jaar ak yow ba nga won mag mbaax bëgg Sénégal bëgg sa réew moo tax ngay doxali nu mel noonu nit yu mel noonu lañ soxla Sénégal ay nit mën nañoo bañ a xaritoo tey doxalante di jàppalante di def te yàlla tax di def dëgg te yàlla tax fi nga xale boobu soo ko bàyyi woon kenn jàppalewu ko mën na dugg ci naka sudul noonu te xale ba mel na noo xam ne tey jii su taxawee ci dëkk bi lu mu bëgg da ko li mu bëgg koy am ay moroomam ñoo ko fiy def mais defu ko dafa ñëw dis dis ne loolu nag taxul nag ku ñëw nag ci man nag wax ma disawul lu ma mënul dama naan la mënuma ko de man kooku moom moom baara xamee nga ma noonu <laughs> su ma mënul dama naan la mënuma soo dee jooy xalit dama naan la mënuma mm-hmm. su ma mënee nag di duma ci xaar dara mm-hmm. dañ koy def ngir yàlla ak yonente bi mm-hmm. loolu nit ñu baax rek koy mën ñu ko ciy félicité bu baax a baax xarit ndax amati na. Mhm. man toujours ngeen dégg ma naan la man aw xarit. Mhm. ànduma ak ma sàmba. Mhm. ànduma ak ma demba. fréquenté wu ma sàmba. fréquenté wu ma demba. peut-être sama gaay ma am piir daal. ñooy samay gaay am naa ci ñoo xam ne. samay xarit dëggantaan lañ te xam naa ñi ngi déglu émission bi. ku ci nekk nag ak ka ngay jàppee xarit. ñii seen jëkkër lañ jàppee xarit mm-hmm. ñii seen jabar lañ jàppee xarit mm-hmm. ñii seen yaay lañ jàppee xarit mm-hmm. ñii seen frère lañ jàppee xarit ñii seen dëkkandoo lañ jàppee xarit ñii am nañ ay xarit copain d'enfance te bala ngay xam ni kii sa xarit la dëgg baara ngeen séq jigéen wala xaalis jigéen su tasul sa seen diggante yéen ñaar ku góor ki wala ñaar ñu jigéen ñi góor tasul seen diggante rek ay xarit lañu wala xaalis xaalis ak jigéen. Mhm. moo mën a yàq diggante. beneen bi mooy xaritu góor ak jigéen. Mhm. am naam amul. Mhm. am na ñu naan am am na ñu naan amul mais man dama ko yàgg a contre. góor soo yut xarit wutil ay xarit yu góor mm. waaye di yàggar yàgg di wut ay xarit jigéen loolu man da man dama ko yàgg compte néew ma nag amul mm. mais am na ñu am ay xarit yu góor mm. am na ay ay jigéen yoo am ay xaritu góor am na ay góor yu am ay xarit jigéen am na ñoo xam ne ay jigéen rek la ñu àndal ay góor yoo xam ne ay jigéen rek la ñu àndal duñu seen i gel du seen i jabar man damaa xamul man ban intérêt la ci am man jaaxal na <laughs> uh-huh. beneen bi mooy bi ci gën a sincère nag mooy xaritu góor ak góor sooy wër xarit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg demal armée ñi nga demandool armée classe de guerre li ñuy wax classe de guerre soo demee au front man teg naa sama bët ñaari nit ñoo xam ne ñoo demandoo front bal yi tàkk ñu jam kenn ki xarit bi jóg riir wuti rebel ba rebel bi jëboolee leen rey ñoom ñaar loolu teg naa ci sama bët la ko yëkkati avant ñu koy rey moom. Mhm. am na ñu bari ñu mu defal affaire. Mhm. waaye après moom moom tamit ñu ñu ñu ñu mujj mujj ko éliminer. Mhm. xarit moo la lay yëkkati. mooy xol bu maanaam xam nga. xol buy sot xol bul sot moo lay yëkkati. xam nga day am tamit gis nga ñaari police ñaari mi am militaire buy xeex fii nii ci tali bi. su rombee moroomu militaire am di xeex bala muy xam lu militaire ba jote daa sot ba pare. loolu mooy esprit de solidarité solidarité mhm. boobu noonu pour nga gis ko ci civil yi mhm. du yomb mhm. baara day ànd xaritam bee gaa yi kar leen suñu soxee baara xarit ba dajji ko daw loolu si ci civil yi dañ koy gis civil yi duñ jàppalante entre entre entre cop entre entre entre xarit nga gis nga am sa xarit boo xam ne yenn màggandoo nekkandoo xale mu dem ba ñaanale la jabar ngeen nga tudde ko sab taaw xaalis xaalis yàq seen diggante. wala sa jabar ñëw yàq diggante boobu. jabar jooju nga ñaani woon. monsieur Ndaw ma jël ko mu ñaani li ñaareel. waaw maa ko wax. ma wax monsieur Ndaw dem ñaani li am ñaareel. ñu dem ba ci biir. ñaareel ba yàq sunu diggante te monsieur Ndaw ko takki ngénte taaw ba. loolu gis nañ ci kër yu bari ñaari xarit yu góor yu bari looloo ko xàjjale. ñu gis ñaari xa copine Mhm. kenn ki am jëkkër kenn ki amul jëkkër. Mhm. waa ji dem ndoxaan copine ba. Mhm. takk ko. xaritoo ga yàqu. ma ne contre ma ko sama sañoon du yàqu. ndaxte su fekkee ay xarit ngeen tamit doon dëgg ci yéen. war ngeen a mën a bokk génn jëkkër. lislaam nangu ko na ko yàlla kontaan na ci yool yenent bi kontaan na ci lool su fekkee ay xarit ngeen te dëgg la ci yéen war ngeen a bokk benn dë benn jëkkër. te mooy dàq te te waaw te loolu mooy dàq. Mm. nga xam ni xaritoo gi day gën a neex gën a gën a kii. waaye seen xaritoo ñàkk dëgg gu mu ñàkk dëgg moo tax ngeen di xuloo. Mm-hmm. sab xarit li nga am da ko yéene. Mm-hmm. am nga jëkkër ju baax war nga ko mën a yéene sa jëkkër loolu mooy xarit gu sincère. comme lu waaye sa jëkkër man su fekkee man baan mari am na xarit mm-hmm. gis xaritu mari mu bax ci man lool ma xam ni kii su ma ko jëlee boole koog mari dina gën a neex mhm. mari mer mhm. c'est parce que xaritoo goog moom ñoom ñaar seen xaritoo dëgguwul mhm. sa xarit soo amee lu baax da nga ko koy yéene am nga jëkkër ju baax soo soo ñoon yéen ñaar ngeen bokk jëkkër lool mooy fi gor voilà loolu mooy fi gor sëñ baara euh, loolu laa doon dugg see ci waxtaan jigéen ñu bari jéppi nañ ma waaye amul problème ci réy mbuum laa reer joxal dañoo réglé wul waaw <laughs> réglé wuñu dëgg waar xam nga euh, baat xarit euh, gannaaw bu nuyoo ñëpp nag comme bee dañoo ñëwoon rek xuus ci kii bi ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñuy déglu ak fépp fu ñu mën a dégloo rawatina waa bitim réew ak fépp fu ñu mën a dégloo xam nga dafa am ñeent yoo xam ne dañoo nuróo te bokkuñu dafa am li ñuy wax àndandoo am lu ñuy wax euh, soppe am lu ñuy wax wëllëre am lu ñuy wax xarit tey boo yoroon doomu guro fii léegi moon la xarit mooy lan doomu guro nga ñëw ci àndandoo andando ki koy def da fay seus rek ngeen and andando toujours bu ngeen demé ba fa ngeen di dem da nga nan ko xaar ma ci bund wala xaar ma ci auto bi way moy dugg wax ak waji parce que daf la gungé rek sa andando la amul ben secret bu ngeen sekk yeen ñaar té lolu mu jot and ak yow ba fofu sax bu fa joggé dina ah musa Ndaw la gungé won place sel de mais su dé ko maandu fa lay yem budul ko ku nak mu jéem wax la nga wuti won ci biir té pourtant ci auto bi nga ko bi ci dess moy soppé soppe ñooñu Ndoye Bane doon wax ñu koy déglu ci rajo bi du ñu ay xarit ay soppeem lañ soppe yooyu soppe yow mi yow mi sopp nit ki yow la engagé ki nga sopp yëgu la xamu ko quoi xamul ne sax am na ku tudd bu Binta ku may béggee te pourtant Binta jaral Ndoye jaral na ko muy xeex te Ndoye Bane xamu ko mais moom moo ko sopp parce que loolu xolam la moom ki sopp moom la engage mais ki mu sopp moom mën na koo bañ a xam ndax da koy dégg wala mu koy seetaan musuñu gisanteeg moom ni xamante wuñu nii nii mais sopp na par la force parce que xolam la bi ci des muy wëllëre e, e, ndoy baan li ngay expliquer sa digganteeg ndaw wëllëre la da ko sentir muy nit ku baax nga fasanteeg moom wëllëre du ngeen gisante bis bu jot du bis bu jot ngeen di wax mais yow leer na na li ngeen fasante li nga soxla ci moom heure boo ko fëggee bu fa nekkee di nga ko am loolu tey mën na dem ba sa doom ak doomam looluy wëllëre mën ngeen di bañ a gisante mën ngeen a bañ a wax téléphone mën ngeen a tey toujours li leen lien yéen ñaar muy wëllëre bi ngeen fasante toujours daf fay nekk dëgër lool xarit nag boo jëloon benn doomu guro xam nga benn la boo ko xaree ñaar lay doon xarit mooy lu war a nekk benn nii ba pare léegi mais benn jëmm ngeen ci ci euh, euh, philosophiquement boo koy déglu mais da ngeen di nekk ñaar li muy tekki mooy xarit bu fekkee lu sincère la fu kenn ki nekk keneen ka daf fay nekk moo fay nekk laale keneen ki mooy liñ naan foo séene diw seen ko du kesoo da leen di gis ñoom ñaar mais foo séene diw diw ngay gis ci moom tey fu ma gisee Moussa Ndaw rek Ndoye Bane laay gis ci moom parce que xam naa ne li may xaar ci Ndoye Bane mi ngi ci moom loolooy xarit su fekkee bu sincère la bi ci des mu ne xarit jigéen ak xaalis pour wax la ne euh, benn euh, li gën a graaw mooy yaa ngi xam Psquare booyu nigérien yooyu ñaari seex yooyu di woy kenn ki dafa am jabar mu indi problème jabar ji ku jigéen ki indi problème ci ñoom ñaar nga xam ay seex lañ de ba ñu dem tribunal actuellement pour bëgg a séddoo seen alal te ay seex lañu xam nga seex yooyu moom raw nañ xarit ay seex lañu kenn ki am jabar muy indi problème ba ñuy dem tribunal pour loolu nara euh, euh, yak seen digënté ndax jigéen moo tax ma ne dañoo réglé wul ñoom ñii réglé wuñu euh, sëñ da fay wax né dafa bari lu niru dëgg te du dëgg te loolu mo bari ci dëkk bi li niro dëgg te du dëgg ñaar ñuy and nga fogg né ñaar ñi ay xarit pire lañu te fekk li ñi def dara du ci dëgg cinéma la kon loolu mu doon wax tay ne nit ñi teey na nit ñi tey ndax daa bari luy nuroog dëgg te du dëgg wax boobu da ciy jàngal lu baree baree bari boo duggee ci biir société sénégalaise bi léegi nag xarit googu nga xam ne tey ñun dañ koo jël di ko fooyee foo wax mu ne diw sama xarit la est-ce que comprendre nañ xarit mooy lan c'est ñun dañoo doon olof te dégguñu olof parce que xarit mooy li xare ci yow kay loolooy xarit lii benn la woon lii de fii la xare kon kay benn la woon guro bi benn la woon biñ ko xaree mu doon ñaar mais même guro bi la kon kay xarit li mu war a doon dëgg-dëgg. Euh, hmm. Binta ak mami ay xarit lañ. mais boo gisee Binta mami ngay gis ci moom boo gisee mami Binta ngay gis ci moom. Hmm. mais ci seen biir ñoom li ñuy dund du loolu. Hmm. cinéma la ñuy dund. senegal tey li fi ëpp tey ci li ñuy dund ci mel noonu presque ay cinéma la. Euh, diggante bu xaalis tas xaalis mooy lan yow yaa liggéey xaalis bi parce que bi ngay ñëw indi woo fi tous te booy dem doo ko yóbbu. Mhm. kon xaalis warut a mën a jaxase xaalis waru la mën a boole ki nga xam ne danga ne sa xarit la parce que sa xarit la ci yow la bokk. Mhm. comme ci yow la bokk lim loolu loolu mu lekk yow yaa ko lekk kon bu fekkee xaalis boole na leen rek du lu sincère. Mhm. bu fekkee jigéen waxuma la sax ay jëkkër mais. da ngay am sa copine mu am faram nga bëgg nangu farwi, mhm. am faram nga bëgg nangu farwi. diko di ko envoyer ay message bu démé fi ne la fi la la tàggu nga envoyer ne ko demul won foofu nga na mëna la comme mom moy sa xarit lim wax moy dëgg mhm. xam nga bu ko défé yeen ñaar ngeen am ci problème nga wuyre na la di génn gaayen bi mhm. yooyu moo tax ñoom dañoo maa ngi leen kenn jigéen ñi yar rek la wuñu waaye li nga xam ne tam yu teel teel nga leen a attaqué de dañ seen toogaayal moo dul jekk mm-hmm. monsieur Ndaw mbaa yaa ngi noté gars rek noté rek toog xaar mu yaay yaay ñëw ñu ñëw ci wëli wëli euh, dégg nga euh, kii li mu wax ci xarit est-ce que d'accord nga ci ak moom waaw avant tout salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk si turam ak santam Euh, yaa ngi di ñaan mm, émission bi yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim te génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp lu fi wax rek yàlla na nekk mm-hmm. wande nag man yéen euh, introduction bi ngeen def dafay difficile torop pour nit euh, waxaat parce que macha allah wax ngeen lépp mais man xaarit am na dëggan tànta Njaay débat bi kenn du ko personnaliser gaa mais tamit bo gisee nen ni nen ngi ni man suma ma waxee fii si xaxit ba jóg te amuma lu wax rek mm, kon <laughs> kon duma duma gox daal mhm. xaxit dëgg dafa am mhm. ndax man mii di wax ak yéen xaxit dëgg laa am ñaaxi xaxit laa am ñaax aw ma sax benn xaxit ñaax laa am ñaax ñëpp ay maga rek lañ amitié bu sincère moo tax may ànd ak kenn ki depuis xale ba mu dem tukki amatuma fréquentation man munuma munuma fréquenter keneen munuma fréquenter munuma fréquenter feneen daal may continuer di fréquenter noonu seen kër bu ma ñëwee damay tëdd tëdd tëdd tëdd ci laa ba sama heure bu ñibbi jot ma jóg ñibbi bu ma koy ooyu ji téléphone boobu cabine amoon maak rakkam ñoo daan ànd rakkam jooju ma daan ànd fu ma jëm ni ko gunge ma def ma ni dem kooku ñu dem ba mel nii mu ñëw ñun ñett ñëpp ñu nekk nii ñu ñuy owee ñetti doomu benn naar gis nga baara ku ñooñu noonu tey ku ci waxoon li nga xamal sa morom dëkk bi dafay tas te yaay xamul yaay li mu ñuy jegeñ jegeñ jegeñ yaay xamul mag xamul rakk xamul te li may wax nii lu dëgg la lu dëggu la duma toog nag di nettali fii dara mais loo rek laa doon dugal ci kii pour wane ne xarit am na mais leneen tam am na xam nga ni ñi c'est tey tey nag da ngeen dugg ci ci ci. am nga xarit bu góor. non xarit bu góor xam nga li tax óoroo xam nga li tax doone kii sama xarit la parce que mën nga ko jàppe xarit mais yéen góor ñi toujours yéen a koy yàq. da ngay ni dem ba ci biir non même bu fekkee ku góor ki sa xarit la la jàppee woon léegi benn copain moo naan kaan mais booy kii ni mu mel ci yow di defar ay ngalax di la ko indil di togg di la ko indil di la jëndal ay chemise noo kii mu xam nga jigéen dafa rëy mën na la ko ba daf la ko waxu rek nga ni ah bon booy yaakaar nga lool mun a wax jour rek mu def benn tentation yàq lépp. fekk na ku jigéen ki. damaa xamul. <laughs> de loo ci defal ngalax. non eh xarit ngeen wax. non non taxaw leen eh taxaw leen. leen xarit ngeen wax gis ngeen xarit yéen da ngeen a def eh, kii thème boo xamante ne xamu leen sax dëggantaan li li ci nekk. xarit dafa am xarit dafa am xarit mooy xarit xarit dëggantaan dafa am. bu góor bi bu jigéen bi laa wax. non non man euh, su ma ne. dama ni ndax am nga xarit bu góor. Ndoye xanaa déggoo li ma la wax. man foogoon naa ne am naa ay xarit yu góor. Hmm. mais suñu demee ba ci biir. dafay yàqu te góor moo ko yéen ah, yéen a koy parce que parce soo amee xarit bu jigéen mu baax nga gis góor ñëpp dem riir wuti ko ba koo jël. nga xam ne kii baax na te bokku leen dara. waa mu doon lu baax. non ah, xam <laughs> non xam nga li tax muy yàq yàqandooy parce que yow dalay bett yow doo ko dundee yow danga koy def frère. def ko xarit confident tout a tout ça eh, franchement mais du sa bokk leen dara. mais xarit la woon bu ñëwoon am fitug ñëw jàkkaarlook yow ni la. Euh, kii mami dama laa bëgg. nga xam ni kii bëgg la la wax. Hmm. soo leen mënee ànd ngeen ànd soo leen mënul ànd mais. circonstance comme yow li la li la boole kii. Ah. dafay am lu lay boole nit ki. ngeen dem di dem di sàmmalool di sàmmalool mu dem ba nekk amitié. Hmm. mais loolu amitié la tuddante doom ak lépp xaj na ci. Hmm. mais bu ko yàq. bu lu ko nar a yàq doxaan gi waaw mais xol la dafa yor xam te non du ñu jóg sax yow ndoy bàyyi ma ah. sax nii wax la ko kaara xam nga buñ la ko waxoon carrément yow nit nga hmm. di nga xam ne kii xol la am hmm. yàpp ak deret moo nekk ci moom xol la am am na waaw mën na mais non dañ koy def defin bu bu bu bu sa du lépp la ñuy wax fii rajo mais non non da non baaxa du lépp la ñuy wax rajo ah, mais dañ koy defin defin bu salte sax bu salte du ñu def yëfu jantal meen ba xam ne daal moom mii waaw waaw non du lépp la ñu mën a wax mm. <laughs> bu ñu personnaliser débat bi <laughs> mais daal xarit am na. xarit am na <laughs> waaw Binta. Binta Binta moom amul xarit bu jigóor moom. Binta na ngeen man sama xarit. man mii yow kay. Mm. am nga xarit bu doy waar. du ma sa xarit doxal non non dafa xarit ay wóllëre yow sama wóllëre nga. Mbène Kañ sama wóllëre nga lëra Fat Diop man ca Bordeaux sama wóllëre la waaw. waaw loolu yëpp daal benn la xaw naa nduroo xarit la daal. Ah, ndax yéene naa la jàmm. waaw waaw loolooy waaw loolu waaw bon voilà quoi. kii di wax nii dama koy maye de dama koy maye ñaari xale yi jigéen yi toog yëpp dama leen wutal jëkkër pour ku ci bëgg rek na nga ñëw. Ah, man de mën naa wax ñoom ñëpp niñ mel. waaw ah. waaw. maa ngi nuyoo ah, di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. monsieur Ndaw reena. doy maa ngi lay nuyu madame Ndaw ngay nelaw maa ngi nuyu bon euh, auditeurs RFM yëpp di nuyu ñi may déglu ah sab di nuyu sama waa koñ waa Géejawaay. Mm-hmm. di nuyu madame Cissé. madame Cissé bonsoir. maa ngi lay nuyu di nuyoo. ok waaw di wax ci xarit. Mm-hmm. xarit moom lu ama am la. Mm-hmm. am na te bàyyi leen di ñu di ñu yow baara bàyyi leen di sonal jigéen ñi. xarit moom am na bu baax sax. Mm-hmm. mais nak jamono ji léegi moo doy waar doy waar boo xam ni. pour nga am confiance ci nit dafay jafe. torop ndax euh, ku nekk ak la ngay wut ci nit ki. xarit euh, neexut a euh, neexut a seer daal xaritoo waaw. parce que pour nga nekk nit pour ngeen xaritoo dëgg. ah sincérité war na ko lal de. Mhm. bëggante. yéenente jàmm. nit ki lu ko metti metti la. Mhm. te jamono jii nag loolu moo xaw a manqué daal. Mhm. parce que nit ñi dina dinañu ànd souvent mariage d' intérêt lay doon. sama intérêt bi rek laay xool. nga mas daal di koy maquiller mu tudd xarit. te am na obstacle yoo xam am na yoo xam bu ngeen ko dundee rek. boo demee ba ca biir rek xam ne kii du sa xarit. donc euh, doy na waar daal. mais li ma remarqué man li ma remarqué man. Mhm. mooy xaritu góor. Mhm. ak góor moo gën a sincère. xaritu moo gën a sincère bokk loolu bëggoon naa waaw mhm. xaritu góor ak góor. souvent mooy gën a dëgg. moo tax yéen jigéen ñi yéen ñëpp ngeen bëgg wuti ay xarit yu góor. waaw xaritu góor nag. lay am góor ak jigéen moom. loolu nag xaritu góor ak jigéen am na biir dong lay mujjee de. yow teq bi laay xaritu góor ak jigéen am na yàlla xam na tequm biir dong am na de. waaw ah, ci taatu garab la de mu monsieur Ndaw <laughs> waaw euh, Ndoye dégg leen ñoom ñett ñëpp. Ndoye dégg nañ euh, sëñ Baara li mu wax. Mhm. soxna Mami ak euh, soxna Binta. Mhm. ñu leen di nuyu bu baax. Mhm. waaye Ndoye dafa am loo wax léegi ci sa biir wax. muy tey soo doon takk ñaareel yónni ma. damay woo soxna si nangu wax ko dama lay boole. <laughs> déet waay <laughs> loolu dama koy leeral bala maa génn si bi ci noor. <laughs> ci cas bi nga wax léegi muy xale boobu noonu ñëwoon ci yow dañ ci parce que ñun tey dañuy wax ci olof ne. peccum liir su neexee hmm. nday ja mo japp ci mbag ya hmm. mbagg ya kon mënuñu wax te duñu gërëm hmm. suñu directeur général le grand sociologue monsieur Ibrahima Mbeng Ibrahima Mbeng mi nga xamne tay moy directeur école INSUP Afrique dañ koy sante bu baax di ko hmm ci nim mu ñu yoree ak nim ñuy teetee ci walu entrepreneuriat leadership ak excellence ñu ci gëreum bu baax di gërëm personnelu NSU bi yëpp. Mhm. di ko teg ci loxo suma xarit Fatoumata Bitey. Bitey ñu ngay déglu madame Meng. Mhm. di gërëm sama étudiant. Mhm. di leen nuyu au passage. ndoy. maa ngi sant sama soxna bu baax. waaw ah, waaw dama yegg muy jàpp nopp yi. <laughs> tey dañu wax euh, ci thème bu am solo. muy amitié. xarit. ndoy la ngay dégg olof yi naan. xaritu benn bakkan. waaw benn bakkan. ak fee bëri. foo génn ñu naan sama xaritu benn bakkan la. waaw xaritu benn bakkan boo xam ne. Hmm. da ngay dox ba dégg na àndatuñu. ñi ngi ci star yi. musiciens yi ànd ba ci yàgg toj. kenn xamul ñaata lañu. Hmm. ñaata groupe musique ñoo fa amoon. tas soo leen ma mayee ndigal sax ma ma tudd ci ay exemple waaw ñëwal. daara ji dafa tas. Hmm. ñoo doon ànd di ñett. tey ñaari groupe lañu. gone yi bi ñu nekkee xale lañ leen doon gis ñuy wëy xale yi bëgg leen di leen roy. di sol lañuy sol di def lañuy def. Mhm. ñu dem ba ci biir ñu toj. nek ñaar est-ce que lolu xarit la won Bamba jifal Bamba jifal mhm. ak ñeneen ak ñeneen su ko doon lim tay duñ fi jógee. groupe Ceddo tas ñewat donc Sénégalais bi day wax xaritu benn bakkan. Mhm. waaw naka ngeen di bokkee benn bakkan ba noppi di bàyyante. fat dee rek bakkan léegi ñu wara a fofu ne xaritu benn bakkan kan la. moy sa waajur wu jigéen. ak sa waajur wu góor. rek kat mën na bal lu ne. ba mu des ndeyam. ak baayam ak baayam. ah waaw dégg naa dëgg de. kon xaritu benn bakkan. Hmm. mooy sa waajuru jigéen. Uh-huh. ak sa waajuru góor. Mm-hmm. ndax mënoo leen ba. Mm-hmm. doom ju bàyyi waajuram àdduna ba ko. Mm-hmm. comme mënoo ba sa ndey nag te mënoo ba sa baay. xaritu benn bakkan foofu la. wax nga lépp baara ci wàllu xarit. suñ ci suñ ci duggaat dañuy waxaat. mu nekk àndandoo. Mm. dafa am waaye dëkkandoo dafa am. Mm. gis nga il faut ñu xoolaat mbir yi. waaw waaw ñu xoolaat mbir yi. sénégalais maa ngi la koy wax ndooy ci Afrique. Hmm. xëy na ku ñu gën askan wu ñu gën ci Afrique bariwul. waaye it bokk nañ ci askan yi gën a foo. lëndëm ci biir Afrique. ñun dañu lëndëm. dañ hmm. ko wax ñenn ñi ñu ko sañ a wax. Hmm. dañu lëndëm lool. ndax lañu lay won mu nekk ci seen i kanam. ak nañuy jëfee dafay wuute chaque fois. ñaata déception nga am ci koo xam ne musoo ko yaakaaree ci moom nit dana ànd ak jigéen ñaata at mu war ko nit ànd ak góor ñaata at mu war ko ngir ànd ak euh, kilifaam ñaata at mu war ko su may wax kilifaam ci wàllu liggéey nga ànd ak nit ba dara dul dara ngeen ànd ke société ba di kocc a góor góorgóorlu ba mu taxaw mu war la donc il faut ñu xool lan mooy diggante xarit ak xarit àndandoo ak dëkkandoo waaye duñu ñu wax euh, te du ñu fàttali ku mel ne maam Thierno Birahim Mbakke maam Cheikh Ibrahima ñoo ngi nañu àndoon ak Cheikh Bamba nga xam ne lu ñu dégg ni Sëñ Tuubaa wax ñu ne dëgg la lu ñu dégg na moo ko wax rek ñu ne dëgg la kon xarit noonu la da ngeen doon ñaar ñoo xam ne kenn mënu leen a tàqale foo gisee kenn ki nga ne léegi keneen ki ñëw dañuy dem ba ñaari xarit yu sincère su kenn ki faatoo keneen ki sax du ko raw. wallaay yonent bi dem na eh, eh, dem na dem na ci asamaan juróom-ñaar ñëw. ndeysaan. ñu xëy ñu wax ko ñëpp weddi ñu nañ nañ jëlee Aboubacar lii moom bu ko déggee da koy weddi mun ne xaw ma lan la déggaguma ko waaye xam naa bu fekkee moo ko wax dëgg la. ak lu mën a am dëgg la. waaw loolu mooy xarit nga xool papa yi Mbaye Guèye mii. Mm-hmm. ak Doudou Ndiaye Coumba mm-hmm. seen xarit nañ ko doon waxee ñun avant ñuy judd. Mm-hmm. ñu judd fekk ko fi. ñaata fan lañu ñu rawante. kon suñ ñu waxee ne ay xarit lañ dañu koy gëm. dañ koy gëm. maam Cerno Birahim di Sëriñ Tuubaa ma sa wax mu ne dëgg la maam Cheikh Rafal noonu ak mag ñu baax ñi fi jaar mm-hmm. waaye tey laa la wax dara ci diggante la joor ak mbaaxaan mm-hmm. gis nga la joor bi mu tollee ci digg dooleem ñu bëgg koo wutal xarit mm-hmm. dañoo woy sëriñ mu ñëw ñu ne ko dañoo bëgg am doomu ndeyu lajoor mii ki topp ci ginnaawam fekk boobu ñu muy àndal bari nañ sëriñ bi ne nañ ma woowal xarit yëpp ñu wax ko diwoy xaritam diwoy xaritam diwoy xaritam damay wax ci kilifa laa ko jëlee mu dem ci kenn ku ci ne na la lajjoor kat dana bëgg nguuram gi dëgër te fur mu dëgër nag yow faw ñu faat la ndax xaritam nga dañ lay faat suñ la faatee rek lim bëgg mën koo am combat yi mu jublu yépp mën koo gagné nga ne ko faat jor loolu <laughs> sama waay la nag waaye faat duma ko nangu moom sëñ bi ne wax na dem ci keneen dem ci keneen naka noonu ba ñu yegg ci mbaaxaan xam nga lu mu wax mm. waxu leen ku kenn ñu ne ko ankay jaar nañ ca diw jaar nañ ca diw jaar nañ ca diw mu ne soo leen jaaroon ci man doo leen jaar ci kenn. yóbbu leen ma ngeen faat ma ndax mu am li mu bëgg waay. dëgg la gars jagat jagatee yóbbu. sëñ bi ne nañ ko yóbbu ci wanag wi. bi nga ko yóbbee ci wanag wi. nga gis ne. sëñ bi ne leen ko. mu nangu ñu simmi ko. tënk leen ko ñu tënk ko comme ni ñuy def xar. sëñ bi daasal paaka bi ñu daas ko ci kanamam. jox ko sëriñ bi mu teg ci buli gi. ne ko mbaaxaan tey lañ lay faat ngir saa ji am lu mu bëgg mu ne ko gaawal def ko mu am lu mu bëgg. sëñ bi ne tekki leen ko ñu teg ko mu ne la joor da ngay wut doomu ndey da ngay wut xarit mhm. jàppal mbaaxaan mi mooy sa xarit mhm. kon ndekete nit dina nangul moromam loolu mhm. kon loolay xarit loolay xarit da ngeen ko wax léegi gis nga ñaari xarit bala nga xam ne sa xarit la nga ci jafe-jafe <laughs> banneex kenn mënu cee xam xarit le président son excellence Macky Sall mënul xam xarit fi mu toll mënu koo xam déedéet déedéet fi ne xam na jàpp ci xarit xariti démbam yi ñu àndoon ak moom bañ ko dàqee ñu àndoon ak moom di lasi laseeg moom ñoo ñooy xaritam bàyyi pouvoir waaye tey jii <coughs> ah man mii sax xaritam laa mhm. su ma woon su ma woon ma jóg wuyu ko waaw waaw adde ah, <laughs> moo yor réew mi jaajëf merci beaucoup monsieur Ndao ñu ñëwaat léegi ci kanam kon boog sama gars yi ñu daal di ñëwaat ci deuxième partie bi di nuyu Cheikh Mbacke Ndoye nekk fële ca Italie ak ki nga xam ne moom moo di faatu Diop nekk fële ca euh, Bordeaux di nuyu Mame Awa Basirou Ndiaye nekk fële ca lome di ziar sunu xarit yëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk fële ca. Euh, ci nekk ci réew mi di ñuy déglu Moussa Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ah ñëpp nga xam ni eh, ñu ngi ñuy déglu ak fu ñu mënti nekk rek jox leen leen cër bu mat sëkk xayir yi xaw foo ne waaye moom it xam naa ni mi ngi damm nopp yi fii nii eh, tey ñuy waxtaane li nga xam ne moom moo di xarit nga xam ni ñu ci bari daal eh, su nekkee ci ay tolof tolof seen i xarit ñoo leen ko teg am na ñu nekk ci ay tolof tolof yu metti seen xarit ci boppam moo leen ko teg dégg ngeen monsieur Ndaw li mu wax monsieur Ndaw yaa ngi woon yaa ngi woon fu am solo ci li nga xam ne moom moo di ba indil ñu histoire. Mhm. ba indil ñu ci mag ña. Mhm. nañ daan jëfalante ko xaritoo. Mhm. lu wutale démb ak tey. waaw Ndoye. xam nga démb. lu fi soppeeku. est-ce que du ceeb bi bonde la wala mu demee noonu. <laughs> Ndoye baal ceeb bi. dégg nga li Momar Ndao wax xam naa ne xam naa ne loolu moom. président yëg na ko te dina ci def li war incha allahu rabi. ndax loolu mooy wareefam. moom ñi mu àndal. nañ ci gindi gaay yi. Ndoye démb. démb nit ñi dañu dëgg woon. Mhm. nit ñi dañu doylu woon. Mhm. waaye dañu gore woon. Mhm. te dañu jomboon. léegi dañoo rus. waaye démb dañu jomboon. xam nga jomb ak rus dafa dafa xaw nuroo te bokkul nit ki li mu rus a def la ko ko tax a rusloo su ko gisul rek def ko. rus naa sa yaay su su gisul sa yaay def ko. rus naa diw su gisul diw rek def ko démb mag ñi dañoo jomboon. dañ naan lii de jomb naa koo def doomu diw ji def ak lim ma wax jomb naa mom moom alhamdulillah yomal xam may dajag waajuram kon jomb la kon jomb day magurus day loo xam ne ci kanamam ci ginnaawam lépp nga boole da koo jomb sa deret mayu la ko sa yaram mayu la ko sa xarit ki nga naan sa xarit takk soxna ba nga dem takk mën nga ko lislaam may na la ko lislaam ko de waaye da koy jomb da koy jomb ndax dafa rafetul dafa rafetul ci deggin rafetul ci gisin waye duñ ko dakk nak ndax suñ ko dàqee rek ñu nekk ci jullit nak ki nga ne sa la nga takk sa xarit. nga ben bakkan. Ah. goor ngay goor hmm. mu takk soxna. Hmm. comme li sa way mu wax léegi rek ma hmm. takkali ñaarel ñaareel ci soxna si joxe ndigal soxnaam waaw ah. ma dem takkali ko ñaareel nekk ak mom ba mu tàggoog ñaarel bu ma takk ñaarel bi lolu ramul de mom dama ne l'islam mayee ah. na lu ngor mayee ko dafa am loo xam ne. su ko sa diina mayee rek. Hmm. kenn dootu la ko tere. Hmm. déedéet ndax suñ ko tegee su fekkee ne ñun dañu taxaw pour tere ko rek. Hmm. dañ koy aramal. te xaraamul. xaraamul lu dagan la. kon ñun lu ñu daganal la. waaye dañuy dem nag ci jomb. sa yaram daf ko war a da nga ko war a séexlu. ndax borom borom borom làmmeñ bu bon bi ak borom bët bu bon bi day wax ne. xelam ma nga ca woon. est-ce que nekkuñu ci woon avant waa ji yi faatu. falaa doon ñëw ñoom ñaar kat ndekete li muy ñëw ci kër waaj ji yëpp. mu koy ceebal ak a dëxinal. bu waa ji faatoo nga wax bu. waa ji di xam nga su faatoo kóllëre la. soxna si baax. Mhm. nga takkal ko sa xarit. Uh-huh. sa xarit génn àdduna. Mhm. bëggoo mu dem ci yeneen i yoxo. Mhm. parce que yow sa xarit na mu mel nga mel. nga ne naa ko téye. ngir sama waaja. naa ko téye ba dara ay bëtam du xonq benn yoon. Mhm. lépp lu sa waay nga doon def rek. Mhm. ma def lu ko ëpp. Mhm. su boobaa nag xarit nga. su boobaa nag da nga koo uuf moom njabootam. la sa la sa waaje daan def soo defee lu ko ëpp day toog bu guddi man na dundu ma woon de. loolu jigéen ñu lañ lay wax. defal jëm jëm ko jëm ko kii rek. waaw waaw loolu loolu moom day bokk ci ay point dañuy jëw bay jëw ñi dee. waaw non loolu moom sax du du jëw ndax kafaatu sax bànneex la ci moom. ndax euh, yor soxna génn àdduna sa xaritu benn bakkan comme ni ñu koy waxee ki nga xam mhm. ne mënul dem bala mhm. da doon jàppalante ak yow di dimbalante ak yow ba nga dem mhm. ci dëgg mu uufal la sa njaboot soxna sa nga bëggoon mu téel la ko defe naa ne lu ko soxna sa mën a wax pour bégal ko fa nga nekk danga nga wallahi mhm. ndax it loolu rek la nit di ñaan mhm. bàyyi ginnaaw ñu mën a uuf njabootam mhm. waaye li ñaaw li ñaaw te duñ na daganul mukk nag lu mën a am la muy nekk ak nit muy sa xarit bu góor ngeen di ànd di dugg ak lijjanti mu fase soxnaam rek nga njëkkantu dem takk ko waaw ah, loolu bari na fi loolu nag dafa bari ci réew mi loolu nag en général day fekk na li nga ne borom làmmeñ wu ñaawee borom bët loolu moom xel sax nangu ko même bu ko xel nangoo it gis-gis day ute parce que man su ma bàyyee sama jabar ji ma ndóoy baan takkali woon balaa may balaa muy jàpp Idda Bay man sax maa ngi dégg ndóoy nga fay jaar hmm. ah dama naan mi est-ce ndóoy mi xelam newu ci woon hmm. Hmm. Ah. loolu moom loolu moom mën naa tas moytul moytul ma sa xarit yu góor yi nga xam dañuy bàyyi seen mm. baara imaginel ma am kër nga am kër mm-hmm. nga am soxna ma am soxna mm-hmm. mais chaque week-end yow yaa ngi bàyyi sa soxna seen kër ñëw di añ si ci man chaque week-end waaw kenn xamul lu muy chaque samedi ak dimanche yaa ngi sama kër su fekkoon te sama jabar su toogee nga naan ceeb ba neex naag daa mën a léeg di apprécier te sa yoon te nga bàyyi sa bos fee nan ko ni ngay taaje añ waaw <laughs> et puis et puis de bi xam ba xam benn même su fekkee sax xelam nekkul ci soxna si eh? da ngay gis kilifa gu am ñaari soxna mm-hmm. kilifa gi am ay xarit ah. yuy ñëw yuy ñëw ca ca kër ga tout le temps mm-hmm. xarit yooyu mm-hmm. ñooy tàqale eh, jabari ñaari waa ji jabaru waa ji demee fee daan ne ko oh démb di añ bu bon bi ñu añ démb uh-huh. saay soo fi amuloon sa waay yow wër waaw ko gonfale ko suñu demee fee tamit wax loolu xarit yi ñooy wax yooyu de même xarit yooyu ñoo la takkali wujj xarit yooyu mhm. ñoo la takkali wujj mhm. xarit yooyu ñoo yëngal fee yëngal fii mhm. kooku nag kilifa gi ci boppam moo war a yeewu pour ràññet ndax ràññet le su añ jotee mu dàqi leen ñoom ñëpp ku ci nekk am nga jabar am yi doom am sa kër nga dem añi sa biir kër yi waaye suñu dajaloo ci biir kër gi ñooy yàq dar yëngal sa kër loolu nag yéen ngeen baal toujours baax dafay dal jigéen ñi mais foofu dama leen ciy dal yéen oh. parce que man dama ni góor tam lu ko doy waax la góor mooy xaar moo naan jabaru diw dafa baax jabaru diw nii jabaru diw diw ni nek sa xaritu jabar bay bëgg a te buy takk te sa euh, xarit bobu bis buy takk ji ñaare mhm. ku goor ki mo koy takk li ji ñaare koku nonu ni moy sa xaritu jabar moy dama takk ji ko wujj wa lu tax parce que da ko bëgg man tay ji suma ma bëgg day wuy ma man sey ji suma ma bëggee mhm. lu ci baara man mhm. doy baara de man doy doy doy doy nga yow baaxa sank ma ngi la doon wax biñuy ki ni biñuy commencer rek yaa ngi naan man est ce que sa copine yow di nga di nga nangu sa yeeg jëkkëram kii ma commencé la tontu rek xam nga ndooy affaire yi commencé. Hmm. kii tontul ma. de tontul la taxawal. tontulu la. waaw baax tontulu la. waaw baax li lu ma commencé woon wax moom la kii wax. waxul waxul loolu. waa baara mi tey moom lan la man boo ma de soo ma dee dagg nii rek damay kii ba baara baara baara gis nga am na loo xamante ni bu ko lislaam daganalee sax mm-hmm. ngor nangu ko eh. mooy li kiy wax mm-hmm. man sama sama sama yaram mm-hmm. jomb eh, xam nga wujju nee nañ boo koy wax sax sa ñaari tur yi du dajaloo loolu yëpp bañ wujju rek baara sama xarit sama xarit ma ni dama ko bëgg sama xarit dëggantaan la kooku du man maa koy teg lu ko metti ah, am wujju metti la waaw si ñun jigéen ñi yéen xamu leen ci dara yéen gox ñi. mais ñun jigéen sa xarit laa sa xarit. waa du ma sëy ak jëkkëram abadan. ñaan gis nga même kii li mu wax sax ni mhm. euh, bu deewee. Mhm. Euh, xarit bi mën na ñëw euh, kii kóllëre mottali kóllëre. mottali kóllëre kóllëre takk ndaw si mën ngeen ko de te loolu tam lu baax la mais man. man ni ma xamee sama bopp li may xalaat ni ma xamee sama bopp. Mm-hmm. man loolu duma ko mën. Mm-hmm. yow ko góor ki mën nga ñëw ni danga may takk def lu rafet duma la ci tam xaaxab dama lay mais sama ngor. Mm-hmm. man sama ngor du ma may loolu. nga dem uuf sa doomu xarit bi. du ma sama non ku góor ki mën na ko ku góor ki mën na ñëw proposé ma loolu mhm. Mhm. def lu rafet fekk xalaatul woon sax bi sama jëkkër di dund mhm. xalaatul woon sax bëgg maak yooyu mais sama jëkkër gaañu mu bëgg a mottali kóllëre bi uuf njaboot ji uuf ma mais man laa wax man ni ma xamee sama bopp man loolu duma ko nangu bugguma ko munuma ko parce que nga munuma ko mënuma ko xam nga ngor gis nga gore mhm. gis nga nit mhm. dafay wéet gore mhm. wéetali ko gore te gis nga ngo gore bu jógee ci nit dara desatu ci nit dafa war a gore gore ba dee te dëkk bi nag léegi dafa tasa tasa tas ba nga xamante ne te bu leen confondre bu fekkee si xarit la ñuy wax xarit dafa am mais yu bari fii fi mu nekk nii àndandoo la àndandoo gis nga sa xarit boo gisee bëtam taa <clears throat> ah, benn rangoñ tuuru. Mhm. bëtam ta mhm. doo nangu beneen tuuru. Mhm. dang koy arrêté. da koy arrêté bala muy tuuru. mooy ki nga xamante ni sëñ baaxa. sànq ndooy joxe na exemple boobu te pourtant loolu dafa am dëggantaan du du waxantu nii rek. du olof da ko wax rek mais dafa am. gis nga sa xarit dëgg fi nga amee problème. nga koy xamee. situation dëgg nga ko nga koy xamee. Eh, man gis naa koo xamante ne. nekk na ci problème problème problème xaritam xam nga nu mu def fekk jëkkëram di door a jóge voyage di door a jóge nekku fi. Mhm. day ñëw pax at ak yooyu. Mhm. mais gis nga jëkkër ji ñëw tombe kii nekk ci naqar boo xamante ne. Mhm. dafa bàyyi jëkkëram foofu. je t'assure daf ko bàyyi foofu ñëw nekk ak xarit bi. nekk ak moom ci loolu nekk ak moom ci loolu ba xelam dal. ba xelam dal mhm. muy door xarit bi tamit li muy nekk ci problème yépp momit mi ngi soor xarit bi mhm. ni kii jëkkëram mi ngi jóge voyage mhm. ma nekk ci problème tax mu bàyyi jëkkëram manit naa góor góorlu bien que metti na mais naa góor góorlu man tam wax ko ni wan ni ko léegi ça va xarit xarit dañuy sentirante baara ñun jigéen ñi dañoo dañoo dañoo mën a mbaxaan dañoo sikk mais di nga mel ak sa xarit noo xamante ni mën nga ñëw sama kër di ma seet hmm? nekkuma fa fekk ma dem def nekk ci ci leneen nga ñëw fekk sama xarit. Mm-hmm. sama xarit wax la benn wax ni la mami di fii la dem. Mm-hmm. lii la lii fii la dem lii lay def. Mm-hmm. yow ngay génn rek tas ak mami ci porte bi. gis nga mami la mu lay wax. bu la laajee yow fan nga demoon. lala mami di wax. Mm-hmm. xaritam boobu loolu la la doon wax. loolu complice la du xarit loolu complice ah, la non non nan la ko xamee dañoo yàgg. Eh, baara baara non non je non baara non non nan laa xamee ne yow nan laa xamee ne man kooku loolu la ma wax. non yooyu tàmm ngeen non dama la bëgg a wax ne la xarit da non non coïncidence yooyu. baara coïncidence yooyu amul. ah waaw binta binta binta waaw. binta ma ne binta tàmm ngeen lool tàmm ngeen lool yéen. tàmm nañ la. loolu. baara tey day day neexal émission binta xëccal micro bi waaw. day neexal émission. waaw waaw fekk baara dafa war a bàyyi di ñu di. di day neexal émission day neexal émission. yaa ngi dégg mooy baax waaw. xaritoo. Mhm. xarit moom am na man gis naa ko. Mhm. gis naa ñoo xamante ne amul gis nga ko am nga ko wala amoo ko. c'est man am naa ko. waaw am naa xarit koo xamante ni dañu amandoo entrée en sixième bokk sixième te ba tey ñooy ànd moom laa tuddee sama taaw. ndeysaan kooku sama xarit la. Aziz tudd sa jëkkër ko ko tudde wala yak ko tudde waaw sama jëkkër rek xam nga man moom mooy loolu ci yow la ci ma waaw ma ko wax rek yow la mhm. ma ko wax ndax fi ñu jaar mhm. fi ñu jaar man ak moom waaw muy lan moo tax jigéen ak jigéen mu en général du ñuy xaritoo lan mooy problème bi tricherie manque de sincérité ma sens manque hmm. ak jigéen ak jigéen seen xaritoo bariwul de xam nga jigéen jalousie dafa gaaw ci jigéen. kon seen groupement yi seen àndandoo yi ba rëy yëpp. groupement de femmes yëpp c'est du faux. loolu kay man maa la xëccal micro bi gis nga surtout boo nekkee ci milieu de travail. Mhm. non dafay graaw des fois. Mhm. yi ngay gis da ngay xam ne parce que da ngay gis nekk ci bureau kii ni diw sama xarit la yow diw sama xarit la mais yow li ngay gis ñu koy doxalante seen bi da ngay xam ne lii sincère. Mhm. man loolu ça me fait peur. day tax ba lu ci bari damay prudente. parce que ñi ngay gis ni ñu ne la sama xarit kii sama xarit la. Jek euh, niñ koy xatee ni ko olof di waxee euh, teew rafet dëddu ñaaw. Mhm. looloo fi am. waaye mais lu tax te li ci ëpp jalousie la. lu tax yéen jigéen ñi ngeen xaritoo nii waaye su xuloo amee ku nekk sa mbóoti morom. mooy jigéen fa ngeen àndoon la ngeen. def yépp ngeen weer ko ci mbedd ak ñàkk ngor. loolu bari na de. bari na torop. gis nga seen xaritoo mhm. ñoom ñii. Mhm. seen maquillage yi ñuy def. mooy seen xarit. boo leen gisee bu ñu maquillé bu ñu bu ñu bu ñuy génnee rafet bu ñu mel nañ meloon. seen xaritoo yëpp maquillage la non déglul xaaral non c'est que xam nga xarit am na non attends amul xam nga maa ngi doon ñëw waaw ci ci maa ngi doon ñëw ci ndoy baan mhm. mais man sama xarit bi ma lay wax nii mhm. mais bu ma jooyee mu jooy mhm. kooku est-ce que du day jooy jooy la non non non tam dëgg dëgg dëgg du duré vingt ans quatre-vingt-quinze ak léegi yàgg na yàggul te lu ne du yàggul ah. ca laa dem armée yàggul sama taaw vingt waaw ñëwul waaw sama doom ji ma ko tuddee vingt ans la am kon loolu du benn fan mhm. ñu dund lu nekk mhm. donc xarit am na mhm. mais nag xarit moo bëriwul jamono jii ñu nekk àndandoo moo am collègue de travail ngeen bokk liggéey bokk seeni yëf mais xarit dëgg dëgg dëgg ah jafe-jafe na man weerante gi ngeen di weerante yi entre jigéen suñu xulowee ku nekk suñu fa ñu fa ngeen àndoon la ngeen defante. ñàkk ngor parce que duñu xarit. loolu du xarit. Mm-hmm. ndooy nee naa la xarit dëgg. Mm-hmm. suñ du xarit dëgg. suñu décidé woon wax. kon musiba am. Mm-hmm. mais ñiy weexante ñëpp da ngeen di confondre xarit ak ak kii àndandoo. ndooy am na ñoo xamante ne li leen gën a métti seen àdduna seen xarit moo leen ko teg te pourtant ñooñu du xarit lañ la mais duñu jigéen ñi monsieur Ndaw jigéen ñi damay faral di gis ñi mhm. ku ci nekk mhm. suñu toogee ku ci nekk da ngay wax la ngay séq ak sa jëkkër mhm. la ngay def ak sa jëkkër. noonoo dafa am ci jigéen ñi même su fekkee doo leen ko def. am na jigéen ñu koy def. nekk ci biir sama jëkkër lii sama jëkkër laa. sama jëkkër lii ba kenn dégg ko. ci ñoom ci seen groupe boobu mhm. daan ne ah, man kat li may wër mhm. jëkkër kee ko yor mhm. daal di wiiri ci ginnaaw ni coppet jëkkër ji naan sama xaritu benn bakkan moo nangu sama jëkkër c'est parce que yow yaa expose sa jëkkër waaw dama gis monsieur ndaw dama gis benn femme ñaari jigéen groupe lañu woon sax kenn ki toog naan sama jëkkër man lii man laa xam nga fa may jaar ak moom fa jaar di wax copine ba bët yaa ngay raf. Mhm. parce que li muy wax kii ni muy expliquer ci jëkkëram. Mhm. ndaw copine bi loolu lay wër te mënu koo am. Mhm. mu ne xaaral ma wiire waaye ni coppet jëkkëram mu dem saan ma jëkkëru xarit ba. jëkkëru xarit ba labat ko. ndekete la ndaw sa doon wax lépp dara amu ca waaje jëkkër ji kawas yu tooy la yor moom tas na sëyam tas na sëyam mhm. copine ba tas na sëyam mhm. dem wiiri ci copine jabaru jëkkëru copine ba mhm. labatante labantante ba sa te tasub sëyam ba kee takk ko ndekete yoo la ma wacc moo gën fop gën fop la mu yor ndaw si ñëw nag di ma ko nettali man maa tooñ maa suufu sama sama sama xarit ci jëkkëram dem ba tàppaat sama jëkkër génn ci sëy ba ndekete man la ma ba moo gën li ma ngi maanaam li naan soo bàyyee sawkatu lal euh. ah. tuurkatu ah. dugub ngay am. looy ah. loolu euh, liñ ci mën a wax mooy li ci biir. Mm-hmm. suñ ko bàyyee ci biir. Mm. rek jàmm am. li ci biir suñ ko bàyyee ci biir. rek jàmm waaye ñoom nag duñ ko bàyyee ci biir. waaw xam nga dañ laan jigéen dafa matul. Mm-hmm. waaye nit moo matul. Mm-hmm. amul benn aaye bu ñuy jàng ñu wan nañu ne. jigéen matul. suñ borom dane yéen doomu aadama yi maa leen sàkk waaye matu leen. ñun la wax. waaye rawatina jigéen li tax mooy dañ koo sàkkee ci ñun. kon loolu dinañ ci ñëw. dañu commencé fu doy waar ñun ndax dañu ne Afrique askan yi fi ne. bokk nañ ci yi fi gën. waaye bokk nañ ci yi fi gën a foo yi gën a lëndëm ci wàllu xaritoo. rawatina jigéen ñi. li ngeen wax dafa am. lu am la jigéen ñuy ànd te ànd ba dara lalu ko. dara daray dëgg laru ko dara. te nag yenn saa yi day yàgg lool. dañuy def de 5 ans 10 ans di and te fekk na and ba daray sincérité lalu ko problème bi ñëk taxaw rek ci bëgg-bëggu nit ki rek mën na ko yàq jëkkër a nga ci mhm. mëna dem ba nangu sa jëkër ba nangu sa far mhm. dem ba lek sa alal dem ba waxal la lo xamne mhm. sa bàmmeelu bir la won nga wolu ko rek wax ko ko wajur waajur ndaysan mu génnee ko mu nek ci loo xam ne blessure la ci yow te day don lu naqaree faj donc loolu dañ ci yaddaat suñu soxna yi que ne dafa bax ñu gën am colère ki seen biir. Mhm. gën a nëbbante ay mbir. Mhm. te gën a soppante waaye am li ñuy jomb. mais il faut ñu xam euh, ne xarit am na. Mhm. lu am la. ci ay jigéen nag. soo xoolee jigéenu talaatay ndeer. ñooñu ba ñu jommee su la neexoon kenn ku ne daw. kii jaar gauche kii jaar droite. waaye seen àndandoo. seen yar. sen bëggeel moo leen may ak seen ngor ñu àndandoo ñoom ñëpp ne nañu faatoo ndoo ngir lu bon lii bañ a yegg si suñu kaw te pourtant ay jigéen lañu woon jigéen ñi nekkoon nañu fi yor seeni seru dënk yoo xam ne ñoom i neen dañ ñoon dimbali wante sa morom ñàkk am dépense nga fexe ba yóbbul ko rënd te keneen du ko xam jigéen ñi doon nañ ko jàppalante suñu kër waajur yi oh, bien sûr man fa ma dëkk muy Saalum dama ci am exemple yu bari ndax jigéenu Saalum dama naan su fekkee ne jigéenu senegal ñi dem àjjana dina bari mhm. Saalum ci yëpp mhm. fi mu ko teg nag dafa leer mhm. góoru Saalum Saalum yu bari suñu bàyyee ba bay gi jeex ba mbay gi jeex su nu jaayee ba jënd ay ceeb tekk noppi nañ ca jigéen ñaay wuti mat ñooy wuti rënd maanaam la ñuy def ci biir togg gi tout ce qui est légumes maanaam autre jigéen ñi ñooy defi lépp jigéen ñooñu seen moroom su ñu gisee ni mi ngi sëy sëy ba demeewul noonu jëkkër ja néew doole mbir yi xaw a doy waar da gis jigéen ju jël as këmbam def ci ceeb jël këmbam def ci dugub ak la mu àndal wut jën làqatu du ko jox doom sax ngir doom ja di ko xam ëllëg mu mën koo wax doomi morom ja moo koy téel boppam soox ba yegg ca moom mel na ku koy seet bàyyi ko ca néegam di waxtaan ak moom su jógee rek dem romb ko du ko wax sax indi naa dara tu ko gisee comprendre wallahi xam na ne indi na dara mm-hmm. kon loolu xarit moo koy def. Mhm. mais mais mais mais du Saalum rek. Mhm. gis nga loolu noonu. bari na ci mhm. dëkk kaw yi de. soo demee sama tund wee. soo demee sama tund wee Kajoor. tundu xaale Amar Fall gee. soo fa demee ba looloo fa fees del. dell dell dell. waaw am na benn am na am benn waay benn kilifa gu ko daan def. da daan bàyyi bu guddi rek. moo ëppoon wër wërsëg ci tund wi. da daan da daan jënd ay saaku ceebam. ak saaku denc. day xaar bu guddi ndeysaan. mu ànd ak doomam. Mhm. ñuy waaj dawal saret bi. Mhm. kër gu ñu yegg rek. Mhm. yenn saako dugub wala saako ceeb jël la fa. di ko def di ko def ay at. nit ñi di ko waxtaanee ci penc mi man de man de man saako ceeb laa laa gis tey kii naan saako dugub laa gis ay at. ndeysaan xam nga góor gi lu ko lu kañ lañ xam ne moom la. Mm. jour ba fa am bés boo xam ne doom ji ñëwul. muy moom mu dawal saret bi kilifa la gu am xaalis. muy danaan ay quatre heures du la daan jóg dawal saret bi di wër kër yi di ko sànni di ko jël di wër kër yi di jéll di wër kër di jël jour ba muy faatu. Hmm. dafa jël ba jenn benn saako jël ko ci biir kër gi rek daanu. allahu akbar ndax sonn coono ni mu daanoo foofu ànd kenn ci fajar gi paay bi ñuy julli foofu lañ ko fekk mu tëdd ak ay saako ceeb ak dugub. allahu akbar keroog boobu lañ xam ni ndekete kii ay ati ati at moom moo doon def jëf ji. wallaahi ndeysaan xool ma loolu. te mënoon naa tey jii su ko jëloon ba mu jeex ñibbi këram faatu. Mm. kenn du xam ni moo ko doon def. wallaahi ndeysaan loolu mag ñi yàgg nañ koo def. yàgg nañ ko def gisoo gisoo gisoo gisoo xànju. Mm-hmm. ndate ndate ndeysaan teen bi gënoon na fee day ma root rootaaleel la mais loolu tey fii fii koo rootal du la rootal de ah, ah? ay bu doon ay bu doon léegi ah? hmm, waaw fan nga lañ koy wax fan nga lañ koy wax xam nga sañ sëñ Bara hmm. dañu dugg ci ci ci ci ci point bu am solo hmm. ndax su ñuy wax euh, xaritoo rek différence bi ci nekk a 60 pour cent ci jigéen ñi la gën a ñàkkee sincère te ñoom dañ ko nangul seen bopp sax xam nga jigéen bu daw bay wuti xarit bu góor jaaxle na jigéen ak ay bagaasam mhm. jigéen rek a ko mën a comprendre mhm. Mhm. waaye jigéen bu dem ba dem ci góor di fa dindi li ci xolam di ko ko wax di ko ko dénk soo amoon moromu jigéen bu mel na moom du dem ci góor di ko ko wax wallahi lazim waaye jigéen dafa dem ba jàpp ne. Mhm. man kat sama secret bii. Mhm. góor rek a ma ko mën a dencal. Mhm. sama soxla bii. góor rek a ma ko mën a fajal man jamono yi ma nekkee étudiant. nekk université Cheikh Anta Diop la faculté des sciences économiques et des gestion di étudiants ay àndandoo jigéen yu bari. xam ne dañ ma soppaloon seen bopp. kii di sama soxna. jamono yooyu maa ngi nekk ak moom. muy sama copine. moom moo defoon liste jël seen tur ak seen i numéro. di leen oo ak a wax ak ñoom. xale yoo xam ne dañ doon wax ak man seen lépp. seen difficulté dama naa lay wax xanaa amoo mag bu jigéen. xanaa amoo rakk bu jigéen li nga ma wax xanaa sa mag yëgu ko. nga ne ma su ko yëgee damay siiwal rek. deret. mu ne da koy siiwal. léegi man mi nga xam ne aadama ak awa la bokk képp. mu di ma wax soxlaam. kon c'est une responsabilité très lourde. boo xam ne nii góor ñi dañ ko am en vis-à-vis des femmes. moo tax ñu war leen yërëm. jàppale leen. te dama naan bon ça c'est normal pourquoi mhm. parce que qui dit dit les yow mhm. jigéen ci mhm. donc cela la rek da lay mottali la gay wax waye jigen bi la lewul jege la dila wax la wax dafa solo de mami war nga xalaat leneen lu di jema a noko amé ak noy def ba jaar ci dafa ñaaw te war nañu amitié entre femme ak mari lan la entre frère ak frère lan la gis nga c'est au-delà de l'amitié dafa romb xaritoo ndax ndax lii deret la lii ndigal la mhm. attention mhm. sama jëkkëray sama xarit mhm. sama jabaray sama xarit c'est au-delà de ça nañu nañu bàyyi débat boobu romb na ko jëkkër sang la da ko war a obéir ci li neex suñu borom defal def naa bàyyil bàyyi naa ngay sàkku ci moom àjjana. ndax jigéen mënul am daraay àjjana lu dul daa bégal jëkkëram. soo faatoo kenn du woo sa papa kenn du woo sa yaay. kenn du woo directeur de. kaay DG ñëwal. kenn du woo président groupement ba. soo nekkee jigéen sax faatu soo amul jëkkër dañ lay takkal jëkkër. wala ñu laa suul. kon la responsabilité de l'homme mhm. en vis-à-vis de la femme. dañ mhm. ko xoolaat. Mhm. Jigen ñi am jëkkër mhm. bu leen def seen jëkkër yi xarit def leen sang mhm. sang c'est au delà mhm. xarit moo raw moo raw xarit jëkkër sang la jëkkër leneen la ñi bokk deret nak entre frère ak frère frère ak sœur gis nga ngeen bëgg ko ak ngeen bañ ko yéen a bokk deret ji na ngeen ànd na ngeen bëggante sincère loolu mooy yoon fi mu nii lu ñuy gën di dem ngay gis ay mag ak rakk yi boo xam ne loolu da koy tas mag ak rakk yu yóbbante kaso yóbbante yóbbante tribunal tribunal loolu rek a fa fees dafa ñaaw mais nag mais nag dafa am ay moowu olof yoo xam bu ñu demee ba ne hmm. bokk ndey baay bokk benn néeg la rek ku ne day xëy dem yoonam c'est am ay moowu olof yoo xam ne tamit hmm. dañ ko war a seetaat xam nga ñaar ñu bokk ndey ak baay war a bokk lépp hmm. bokk deret bokk lépp ñu ne mbokk bokk ndey ak baay bokk néeg Fananti ci néeg la rek ku ne day xëy c' est que da wax benn wax muy sénégalais dafa lëndëm dafa bëri ñu lëndëm sénégal mm-hmm. sénégalais euh, gis nga tey boo génnoon ci dëkku afrique yi surtout nga dem fu mel ni nigéria gisa boo nit mm-hmm. nga gis nit mm-hmm. ci milieu bi bu yaboo ngeen bokk fu ngeen di lu ngeen mën a bokk xam su ko xoolee ba xam ne yow mii neexoo ko. danaan la carrément neexoo ma bu ma nuyu bul wax ak man. dëgg la ak loo mën a am nag soxlawu ko xoolu ko. dëgg soo koy nuyu danaan la téyel sa loxo bu ma nuyu parce que sequñu ko du la jëw du ko wax sa gannaaw. soo ma toogoon naan di naan Moussa Ndaw ndoy baan nii ndoy baan da ngay bàyyi ba ndoy baan ñëw nga ne ko baara nee na nangam ak nangam ak nangam ak nangam. loolu la lu ko gën a leer gisuma. noonu la ñuy dund te da ngay taxaw ñu wax ko. nga nga ne ñun da ngay weddi. yaa ko wax ñoom noonu lañ mel te duñ xaar ba kooku dem ñu koy wax de te duñu ñëw fekk si la dañuy bàyyi ba kooku taxaw ñu ne la Ndoye Bane bara nee na nangam ak nangam ak nangam ak nangam looy baan mi ngay gis nii loko. wax nit xam lim koy wax loko man lo may wax na leer man soñ musa ndaw so gennon fi tuuti binte mbay ndar ni musa ndaw li man so ñëw mala la binte nee li de man mam man mom no la ka, ka ma dajaloon mu wax ma ca bara man mi doxna ci dekk bi ah. am ko ma, ma dajeeg nit ah. nit ni ma wa bara mi ngay andal nangam ak nangam ak nangam ah. maa moma nekkon ya ni la tuddo wax ak nanga ba ki nanga eh, eh. mu ñëw baara ni ko kat baara kat am ko ma dajel ku tuddu ni eh. wax ju bon la la wax neena la li ak li ak li ak li man man man non lamen mel lolo tax nak nit ñi jappé ma con wala ab dof man non la mel man mom man ay jëw ak ay wax non man gis nga dar kle ñu ngi may ñu ngi may deglu suñu kër su su nit ñi di wax ba ma dañuy noppi mm-hmm. ndaxte ko leen fa tuddu Ah? Mm. su ñëwee dinaa ne ko ñii yow leen doon waxtaanee léegi nee nañ la lii. waa kay mbir mi moom soo ko ñemee da nga koy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. soo ko ñemee mais noonu bu ko wax bu new na bu ko wax lu bon. Mm-hmm. mu ñëw nga bëgg koo ñuuxu. sénégalais nag loolu mooy problème. nit ki day nekk sa biir kër gi. sa biir kër toujours ma wax ko. maa ngi koy wax bëgg bërki démb bii jungoone ma ne ko. di dund ci sàq mi mm-hmm. bisu ne wax ko ci sama émission yi mm-hmm. te saa su ne yaa ngi ñaan sàq mi doonok daay mm-hmm. musa ndaw école ba nga ne wax dëgg yàlla borom école ba toujours soo sañoon école ba day gën rëy di màgg am ci région am ci afrique mu borom école bay avancé ngay avancé loolu nga bëgg mais su fekkee da ngaa ne ci école bi jàppe ak borom école bi jël responsabilité jox la te yow yéene woo ko lii muy am du mais du avancé waaye do avancé ah mm-hmm. nga koy wan ni sa xarit laa. Mm-hmm. ku la bëgg laa ku mm-hmm. bëgg école bi laa fekk yow loolu lépp dara du ci dëgg. Sénégal da am na moobuñ tam diw daanu na. diw diw daanu na. non Ndoye li ngay wax dafa am solo ba nga. xamante ne déedéet lu am solo ngay te dëgg lu gu wér. c'est ça jii soo nekkee ci bërëb di liggéey. fexe la jël boromu bërëb borom bërëbu liggéeykaay ba. nga def ko xarit. def ko xarit man tey jii jàpp naa ne Alassane Samba Diop sama xarit la. Mhm. ndaxte du ma bàyyi toujours su ma day wax bay waaj a déraper mun ma kii jub ab message. Mhm. émission yëpp la baag rajo ba mun ma kii jub message jàpp naa ni kooku ku ma bëgg la. Mhm. jàpp naa ni kooku ku bëgg ma avancé la. mais kooku du ma ko def sama xarit. mais jàpp tey jii comme sama patron Youssou Ndour. tey jii su ma soxlaa ci moom dara. ma gis ko moo tere mu lijjanti ko. waa kooku du sama xarit. ma gis ko. la ma soxla moom man mm-hmm. ci moom mm-hmm. ma gis ko moo tere loola lijjanti ko waa kooku du sama xarit ah, waa mais kooku duma ko ñaanal mu avancé mm-hmm. avancement mooy sa avancement voilà ah, c'est ça léegi nag yow da ngay nekk ci ci bërëb di liggéey borom kër gi di def tout pour kër ga jox yow ngay liggéey ci kër ga pare di gor borom kër ga fukki nit di gas fukki nit di soo cooway baaxee rek mais pax du loolu xam nga sénégalais seen problème mooy <laughs> Eh, foo information foo ko déggee. Mhm. yëkkatil micro bi waaw. foo ko déggee. Mhm. bul xalaat ne bu baax lay doon. information yi ngay dégg mu naan tell lépp. Mhm. boo koy dégg ci nit. bañ nañ ko ba boo duggee ci internet bi di xool. fu ñu xool gis ne fii lu baax moo la fa ndoy baan wax. kenn du ko xool. mais buñ ne la nangam la ndoy baan rek. nga gis da nga dugg xam nga yu mel noonu. grave li de Proeba voilà li ci gën a graaw nag mooy ñi nga xam ne. Uh-huh. tey yàkkamti nañ dégg dara ci kiñ ne seen xarit la. wallaahi déjà te xam nga fii ku fi loru rek. Hmm. sa xarit. lu la naqari li ngay ki nga tudde xarit moo la ko teg. Hmm. moo tax sëñ Babacar mos nañ ko laaj. Hmm. seytaane nu mu mel. mu ne dina sol basin di lekk ceebu jën. wallaahi buy bonde. <laughs> ñu ne ko ah mu ne parce que léeg-léeg toujours kala jege nga tudde ko xarit. mooy sa seytaane eh, soo ko dégloo mu sànq la. xanaa yow dégluwoo Youssou. Mm. Youssou nee na ne nit dina la sori lool. fekk ah, jege na la mu jege la lool fekk sori na la. kon dafa am yoo xam ne. Eh, eh. gis nga euh, man dama koy wax ak sama frère bi Moustapha Diagne. Mm. nag euh, Nigéria la jóge ma ne ko man dafa mel ne bu ma nekkee Nigéria laay gën a nekk en l'aise ma nekk senegal mm-hmm. ci ngay gën a dund. sécurité sincérité sincérité yow amoo benn souci boo xam ne yow dina war a jóge feneen di ay wax di ay jàppal bàyyil xanaa ca sénégalais communauté sénégalais ñoo ko indi mais ci nigériens yi. Mhm. amoo problème boobu. ah may may mais demal ci sama sa mbokk du Modou yi. seen dëkkandoo yi. ñooy toj fi mu ne boo demee Europe fi mu nekk nii day toj. waaw ah, entre ay ñoom Pambeng tey. bu bu la waxee la fa nekk. non. nangonte jabar yi loolu moom. loolu xoolal. Hmm? am na benn dëkk boo xam ne tey mu la ko tuddaloon fii. Hmm? am na ak benn année màggal goo xam looloo ko toj. nangonte jabar nangonte jabar. nit moo ñëw ci kenn ne ko sa jëkk sa jabar bu nga ànd ak jëkkëru diw ñu nga hôtel nangam. ndaw si yëgal ko boppam moom ci boppam daagul boppam ba egsi dugg ci tante bi génn benn lam ne ko xàmmee nga lam bii jabar waaji de mu ne ko waaw si sama lam la munoko ko sa jëkkër moom la ma neexale ndaw si moom it génne beneen chaîne boo xam ne moom moom moomu di wax moo ko moom kon kay ñooya <laughs> xam nga léegi nag maanaam dañoo weccoo jëkkër du ñoom doom tant ba toj kii naan jëkkëri diw kii naan nit no fa la affaire ba yem ñuy werante fa la affaire ba yem mel ni daal léegi ñoom ñu doon ay xarit di ànd ñoom ñëpp ku ne tëdd nga sa jabari morom te dañ ne ay xarit lañ de dooy ànd. mais man damay bañ ngeen wax moo xarit. ci yu demee noonu dama woon ay xarit. ñooy añan ñooy am. ñooy añandoo ñoom ñooy ànd. moo moo tax xarit dafa doy waar. mais dañ naan dafa xam nga ah, dafa doy waar léegi yow ñooñu. tey dem ba nga xam ne ku ci ne danaan kii mooy sama xarit tuddewante ay doom. Ah, di demalante que dikkalante. Mm-hmm. tey ñooñu. Mm-hmm. ñoo dem ba defante loolu. Mm-hmm. tey am na koo xam ne kim mu doon tuddee xarit. Mhm. Pam Mbeng mi may wax toujours bu jot mi ngi dëkk aslem fii xam na li may wax bu yàgg. te mhm. jël nit yóbbu ko bitim réew. defal ko lu ne. tey moo doon sa premier ennemi. waaw man mii dal na ma man mii di wax ak yow. Mhm. dal na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi bitim réew. ñoo xam ne fii lañ jëlee nit. nga xam ne xarit rek a tax ñu jëlee la fii. yóbbu lañu gor say tànk. wala ngay ñëw Sénégal jël sa place liggéeykaay jël say kayit. ah jox ko nit pour mu liggéey. Mm-hmm. mu jël kayit ya def ci tooxi doona goo xam yow mënatoo am kayit ñu yàq say kayit ba faw mm-hmm. yàq say kayit ba faw te mu leeral kayit yi. bu doon fay say moo la koy teg koo jàppe xarit xam nga mm-hmm. kayit yi ngay liggéeyee. kayit yi ngay liggéeyee kayit yi ngay liggéeyee mooy sam sàq. mais bu ma ko jëlee ba jox ko ndóoy baan fonk ndóoy baan moo tax ma jox ko ko ndóoy baan jël kayit yooyu def ci tooxi doona man mënatuma am kayit moom mu continuer wuti kayit. man ma ñibbi Sénégal toog moom mu nekk foofu di dund te bu ma rombee du ma nuyu. Mhm. bu ñëwé Sénégal romb du ma té da danaan ki lam def fofu bu ngeen ko xamoon mhm. moo baara xarit nak chance la tamit mhm. parce que gis nga yow mhm. mën nga nekk nit ku baax nga jappé ki xarit dëggantaan té mu nekk deug ci yow de mais té mom ndaysan jappé bu la xarit motax bo euh, lolu chance la lolu yalla la koy sédd rek yow ni nga mel parce que xarit tamit da ngeen wara yem jikko xam nga xamantani japp ak jàpp ak lolu moy aduna ké mom dem bal ba ki def dem fi dem moy ki kiiwam ñu ñooñu bokkuñu jikko ñu bokkul mm-hmm. jikko duñu ànd mm-hmm. gor ak góor ñoo liñ naan dërëm ak dërëm ñoo mën a ànd mm-hmm. mooy dëgg góor ak góor ñooy ànd pour xarit am fa wéet gore wéttali ko gore baara eh, la xarit yàlla nañu yàlla dimbali ki ki ne ki ñuy tànn ni kii sunu xarit la mm-hmm. kooku ñu ñu yem ay jikko mm-hmm. kooku du la yàq mm-hmm. du nangu gis sa rangooñ fuñ lay yàqee ah, weddiwu ma de nit de mën naa ñëw ci man xamul sama jikko xamaguma mu ne ma yow ndoy ban nii nii nii sax nii nii nii xamagoo sama jikko loolu duma ko bañ mais bis boobu boo fa dellusiwaatee. Mm-hmm. walla wax ji bu continuer boo fa dellusiwaatee rek. Mm-hmm. Eh, kon man am na ko ko kon kon man am na ko am na ko am na am na ko ñëw ba <laughs> ñëw këram di bëgg koo labat si. Eh, bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg <laughs> waxtaan maa bëgg <laughs> ah, ñëw këram ñëw këram eh. de nee waa ji daa ñëw këram daal tombeek wareef di daw may wax rek. mu bëgg waxtaan wu neex rek mu centré Ndoye Bane <laughs> kii ni ma soofi wuyu bu mag la xam naa ko hmm. bandi la kii. Hmm. kii ni ko waa foo ko xamee mu ko kii maa ngi ak ay bagaasam. yow day déglu. sama portable boo déglu. waaw la déglu. Ah, ah, wuyu bu mag la kii. kii ngay seetaan. ah, ah? tegal waaye kii xam nga kii daa bari histoire. kii la ba xam nga yooyu sooy doxaan si doxaan si rek waaye nag bu ki ci télé bi bu ko ah, eh, doxaan si wul doxaan si wul <laughs> ah, ah kon ne mën na wàññi oto ñu lay yekk lu mel ni xeme waaw man de ma nekk fay xuloo waaw luy xuloo su la dóoree ba nga xuloo ma dama ko raisonné non dëgg ngay wax dama wax te yàlla tax man ko gis nga nit boo xamul oowee ko bul eh, mhm. man ko nit ki bu leen ko gis nii rek ngeen di wax ci moom loo xamante leeru la mhm. donc loolu la rek xuloo man duma moom te sax ba kër gi si te sax soxna si doguma la gis nga ndoy baan tem bii ak ay yu baax yi rek moom mii rek doyoon na ci tem waxuma nag waxuma nag pour dara de wax fa wax na ma auditeurs yi rek baax waxuma pour dara mais am na façon tem yoo xamante ne buñ ko temee ba pare hmm. yow nga nga dundal leen na xam leen na hmm. te témoigné woo ci loolu yow doo gor kon doo xarit hmm. te ndoy baan mii xarit moom nee na amul xarit mais moom na xam ne moom ku bari ay xarit nañ ak xarit duñ ko ko wax nag parce que mhm. nit ki bu fekkent ne da ngay def li ngay def ba pare mhm. ñëwaat di ko nettali nit ki pour bëgg mu xam ko loolu mhm. ngistal la nit li muy def da koy def mu nekk lu sincère ci moom lu sincère ci moom gis nga man euh, dama contre euh, nga ne dangaa xaritoog nit ki ba pare fuñ koy yàqee nga taxaw ci nga toog di loolu affaire yi ndooy du xuloo yow Ndoye noo mënti mel noo mënti mel noo mënti mel yow sénégalais yi dañ laa amel njukkal yow xam nga lan lañ la war a defal ah <laughs> takkal la drapeau raay xaw ma lan ak lan ak lan ak lan ak lan ak lan ak <laughs> parce que lu jóge nag luy lu jóge nag ci xol day dee waa ci xol la jëm Ndoye yow nit nga da ngay def erreur yow boo defoon erreur ñëpp dañu la ko war a baal xam ne mm. doomu aadama kese nga. Mm. te xam ne yow li ngay def ci lu baax. Mm. moo ëpp fuuf. kon say erreur te nit kese nga. li nga def léegi rek si kii. sànq bi nga li tax waxuma ci woon. bu ma waxoon rek mën naa kii parce que mhm. boobu sama xol dafa dafa fees dafa kontaan ci mhm, mhm. xam nga xam nga nga gis ni nga sa sa nit nga gis nit koo bëgg muy def lu baax ñu koy wax loolu da ngay kontaan da ngay kontaan li nga def nii geste bu noble la te ndooy def nga ko defar lii nii rek invitation bi nga man duma duma duma daxa duma kenn mais ndooy sa baax. Mm. moo tax nga may invité. Mm. sa baax. Mm. moo tax baax mii di ma invité. di ma boole ci programme am. te man duma kenn xale bu ndaw laa xamuma munuma liiwuma mais da ngeen a baax. man de jàppa naa leen te dootuma leen bàyyi. kon daal da ñoo bëgg a xaritoo par force. non jàpp naa leen te dootuma leen bàyyi. onde yu positif lay dégager. Mm-hmm. vraiment solo. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. muy mami mi soxna Binta rawatina. topp si lu waaw muy lu am solo lool. Ndoye. Euh, xam nga dama lay wooye le directeur général des cas sociaux <laughs> waaw dama koy wax yow na la président Macky Sall nommé le directeur général des cas sociaux. xool ko nañ ko jox carte blanche. wallaahi parce que koo xam ne yow heure boo jógee soxla nit moo la yëkkati. Mhm. xoolal. am na ñoo xam ne fii bi ñu leen di dañ leen di jàppoo. Mhm. jàppoo laa la wax de. amuñu fenn yaakaar. xam mhm. nañ ne Ndoye Bane du directeur oppitaal mhm. Ndoye Bane du docteur. Ndoye Bane amul hôpital. léegi nii ma toogee ci biti ku ma woo. Fuuta la ma woowee ab maire. ma ne ko temps yi xanaa déggoo ci rajo bi Ndoye naan malaat yi dañoo bari. ba daanaka temps yi ñu yu bëri dañ ko dañ ko baare parce que tamit nit ki ay nit rek nga am yoo xam ne ñoom ñoo koy dimbali. ñi nga xam ne nag dañoo ŋànk réew mi. dañu wara jël carte blanche jox ko ne ko kaa yu mel nii foo ko amee foo dem dañ laa war a ubbil seeni bunt li lay wax nii xam nga waxoon naa keroog naa ko waxaat daf man dama ko yëg xam nga moom daanaka lu xew ci moom dinaa ko yëg léegi danaa ma yow foo ko yëgee dañ ko tuddee làmb ñu def benn émission benn xale bu jigéen am problème mu bët ñu war ko faji Tunisie am kilifa gu ko déglu war a jàppale xale bu jigéen boobu. Mhm. woo Ndoye Bane mu dem mu ne ko bu dul yii sax dafa am yeneen yu ma bëgg ñu ma bëgg a dimbali te gisuma ku ma wóolu ku ma mën a jox xaalis bi pour mu man ma toppatool ñooñu te wóolu naa la. Mhm. muy jour vendredi. Mhm. mu génne presque trois millions. teg ci taabal ji ak seeni tur ak seeni numéro téléphone Ndoye Bane ne ko xam nga lan la tey weekend lañ nekk. téyel xaalis bi ndax dañ maa tuddee lamte te làmb ji dimanche la te bu ma yóbboo xaalis bi làmb ji ñëw mën naa def ba def ko ci xëy leneen fekk ma ci kon téye ko ba lëndi bu ma xëyee def wareef ba jóge wareef jël si xaalis bi dem def li nga ci bëgg waa ji dafa teg xaalis bi toog di ko xoolaat ne ko man foogu moo na nit ñu mel ni am nañ ci dëkk bi mhm. xam nga kon ñu mel noonu nag nga xam ne mhm. li ñu koy jox soxlawu ci un franc ba moom. Hmm. énergie boppam xaalisu boppam. ay moyens boppam ak ñeneen koo xam ne sax jege na la. Hmm. ndax léeg-léeg sax bu moom kii man boo bañul yow boo boppatul la nga yor mën na koo jël dugal ko ci. Hmm. kon nag ku mel noonu. état dafa war a am ay façon nit yu mel noonu nga xam ne. xam na nit ñi nit ñu wóor lañu nit ñi wóolu nañ leen di ñëw di leen di seeni soxla waxuñu sax ay soxla yu location ak ay facture courant ak yooyu yooyu dañ ko koy wax sama facture courant fayaguma ko sama location sama dama defoon pré banque yooyu dañ ko koy wax te malade yi taxaw xam nga dafa am yoo xam ne bu taxawee yeneen yi mhm. mënatu la am mënatu am solo ci kanamu yooyu. Mhm. ku ne nag sa soxla sa soxla la. Mhm, mais vraiment dafa am lu am solo lu yontu yàlla Muhammad wax mm-hmm. dafa wax ne mm-hmm. est-ce que mës ngeen a gis nit koo xam ne mm-hmm. sarax moo tax mu ndóol loolu mu posé woon ci ay jamono lay posé waa tey askan wi ci biir ak ci biti gis leen ñi génnee sarax di ko joxe duñu ndóol mukk duñu ñàkk mukk kuñ ne kii dafa ñàkk ndax daa saraxe ba ñàkk. amul fenn. kii dafa ñàkk ndax daa dimbali ba ñàkk. amul fenn. sëñ Touba nee na loo bëgg bari la de ko joxe dee ko joxe. nga gis ne. yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dañ ko tagg ngir. jikko. kon loolu jikkoo la ci góor ndoy. góorgóorlu ci. lu ci loo mën. Eh, dimbali dafa jafe ah. dafa jafe. dimbali. Mm-hmm. dafa jafe. Mm-hmm. lu jafe la. Mm-hmm. ndax koppar gi ñëw sa loxo. Mm-hmm. ndoo ëpp problème ñëpp. Mm-hmm. <laughs> wax ko ak mu ñàkk ko wax. ndoo ëpp problème ñëpp. yàlla la ko tax a wax. nga jox kay million. <laughs> mu jël ko def ko ci kaa. te ba mu ko jëli moo paasal boppam. Mhm. jënd gasoilam. Mhm. wala essence am. Mhm. dox ci ba ñax. jël ko ngir faj ci doomu aadama. yàlla la dàq faj foofu. Ah, te Poté mi ngi taxaw mi ngi taxaw di la seetaan. <laughs> Uh-huh. nga defi say mbir. ba mu wër. ah non loolu du yëfi nit. loolu yàlla la yàlla fay la fay képp koo xam ne ni. mi ngi ci. këram. liggéey ba wàcc war a dem tëdd ji noppaliku. mu nekk ci mu nekk ci. Baara da nga wax da nga da nga am loo wax. ci wàllu bitim réew. muy góor ñi nga xam ne. dañu séqoon seen jabar yi mhm. bokk ko mhm. ki génnee lam ki génnee chaîne mhm. la responsabilité elle est entière ci jigéen ji ak ki góor gi waaye ku góor kaa ëppale responsabilité matul ñu amuñu lu ñuy jomb góor ñooñu naka ngay tiime sa jabaru xarit ki nga tudde xarit nga ne kii sa xarit la waaw ba nga jël doom uh-huh. ak doom ni mu mel man sama doom Cheikh Saliou Mbacke laa ko tuddee ndax mooy sama xarit Mm-hmm. yow nga jël sa doom tuddeeku ko nit. Mm-hmm. kon kooku ndax tur dafa am solo ci doomu mm-hmm. aadama. ëlbatiku dem nekk ci soxnaam. matuloo amuloo aucune responsabilité. parfois dañuy jël jigéen ñi di leen enfoncé ci loo xam ne. Mhm. en réalité c' est la responsabilité de l' homme. bëri na jigéen yoo su la ko jigéen gi sàkk woon sax. Mhm. war ngaa mën a daw. Mhm. jigéen la. boobu man responsabilité bi jigéen laa boobu d' accord ma jigéen laa ko jox jigéen la. dama ne dama ne dama ne la responsabilité est partagée. xam nga lu tax jigéen moo ci ëppale. waaw jigéen mooy nangu. waaw d' accord mais dama ne la responsabilité est partagée. dañ na àdduna dañ na àdduna dafa soppi. bu nekkaan góor moo doon sàkku jigéen. Mm-hmm. léegi kenn dootu ko wax c'est le contraire mm-hmm. nekkul lu ñuy poser mm-hmm. du débat bu ñuy teg table lu am la lu ñu mën a teg suñu bët la cas violation yu bari yi ngeen gis cas viol yu bari yi ngeen gis lan la ku jigéen gi moo koy sàkku ci lu bari donc su ñu demee ba àdduna doxee noonu xam nga bu njëkkaan suñu mag ñi suñu doon fecc maam ñi dañ doon yor juróom-ñaari sër <laughs> suñu salar ñi ko rek def une deux trois doo gis quatrième bay gis poj. ay sër képp ngay gis ñu dem ba baa génn ñuy sol baa di ko feccee. Mhm. doyatul ñu dindi ko jël suufes di ko feccee. Mhm. doyatul ñu dindi ko mhm. jël. jigéen la muy jiital ca biiram. di ko feccee léegi. ñenn ñi sax defatuñ ko dañoo dindi lépp nag. di feccee seen awra. waaw kon ana jigéen bu njëkk ana jigéenu tey. góor. la nga xam ne moo doon neex ci xolam mu di ko gis. muy pooju jigéen rek mu jaral ko trois mois mu koy savourer. waaw trois mois. Mm-hmm. léegi suy dox ci mbedd mi dañ naan koy xoolal ween a ngi nii. moo tax góor ñëpp yomb xoolal nangam a ngi nii xoolal nangam a ngi nii kooku su yeggee ci kaw am na responsabilité mais ku jigéen ko aussi am na responsabilité donc mhm. góor gi jóg dem ci jabaru jàmbur mhm. jigéen ji jóg dem ci jëkkëru jàmbur mhm. et je pense que surtout ñoo tudd ay xarit ñoom ñaar ñëpp am nañ ci responsabilité kenn ku ci ne su defoon la mu war a def xëy na loolu du am 88 628 14 14 mën ngeen a commencé woote ah euh, di sant di gërëm rek xam naa ni seen témoignage yooyu am na solo waaye di sant di gërëm ci ñi ñu ciy jàppale ñu ay yu bari ministre ay député ay homme d'affaires hein ah, ay ay commerçant ay ay maire ay mhm. façon bu nek yo xamni mhm. ño xamni bëggu ñu sax ko tuddu seeni tour tur mhm. say nit woo la ni la ndoy ban sa malade bi euh mako jappalé li nga dem hôpital fayal koy et tout ñëwaat ñu jox ko reçu bi mun la nak so ma tuddé ci radio bi balu ma la ko kilifa nga dem faj barki demb euh, temps yi passé néna la amna sama ben malade bu gañu waaw waaw waaw ma koy jalaat gars yi xadi la ma wax waa këram dégg ngeen ko. Mm-hmm. xadi caam ñaari at ñoo ngi xamante. Mm-hmm. mu ñëw piir gàmmu piir fekk ma fa. Mm-hmm. mooy borom <coughs> kii bi. wax ma affaire am man ko digguma la dara mais dinaa dem dinaa ci defi gëstu. Mhm. ma dem def ci gëstu. defe naa docteur bi ko doon faj. docteur bi ko bi faj xaji caam am. Mhm. mi ngi may envoyé message léegi nii parce que téléphone portable am dafa réer iPhone 5. Mhm. iPhone 5 la ci ci jumaa yi Sacré Cœur 3 ji ci la portable ba réere cité kër góor gi. da doon julli ñaari téléphone am wadd. mu pare gis ñu jël benn ba yóbbu. iPhone 5 la ay document am ak yëpp ca la ca portable la nekk pour ko ko gis. docteur boobu moo doon faj docteur Touré. moo doon faj malade bi. Liko ko nar a faj nar a cher. ñu mhm. dem ba lijeenti docteur baa may deglu fi ni docteur bi doon xat fadi ci am. Mhm. ma dem ñu ma temps koy faj. Mhm. ma def lijeenti ko ba am ko fayal lepp xadi ci lepp mais ay tubab ñoko wara opérer a bi par six mois lay ñew ñeek na ñoo ñew joxat ko rendez vous dem na ba découragé. docteur bi di ma woo tout temps dem na sa malade bi li sa malade bi la bu un jour ñu wo ma ne ma euh, malade bi dañ ko wara opérer alxames. Mm-hmm. woo ko mu ñëw ma woo ko xarit Thiam ni ma aw ma paas ma yónnee ko paas mu ñëw fàtte téléphone téléphone am dëkk ba bi mu est ba war ko programmer major bi woo ma ni ma sa malade bi ñëw na programmer nan nañ ko naa xaalis bi nga ko fayaloon fayalal nañ fayal nañ ko ba mu des mm-hmm. cent et quelques mille. dañ ko koy jox argent de poche pour lu mu soxla ak yooyu man leen ok. Mm-hmm. faj ki dañ ko de. ñu opéré ko ba mu ni koroj ma dem seeti ko. bi ma ko seetee xoolal bi ma ko seetee moom ndaw si mm. ñu waxtaan ma ak moom bañ wax wax ka ni mën na ko amoo benn problème mun ma noonu ma gis ni la nekkoon ci moom mm. lépp dindi nañ ko mm. affaire bi wér na ñu ngi wax ak man ak tout ngi tëdd ma naan ko léegi xanaa fii ak deux jours trois jours nga nga wér nag sonal nga ma xadi caab affaire yooyu mm-hmm. mi ngi nii gis nga mm-hmm. lii lan la du bi mu tëddee ci hôpital bi mm-hmm. biñ ko opéré pare su ma la wanee ni mu meloon Mhm. avant da nga naan nii nii la meloon. gis nga nii mu meloon. Mhm. gis nga ni mel léegi. Mhm. opéré nañ ko ba lépp normal. Khady Thiam deux yi ma ko xam yëpp musuma présenté doomu aadama. musuma ni kii mooy sama papa musuma ni kii mooy sama yaay musuma ni kii mooy sama rak musuma gis benn mbokkam. autour ci moom. musuma ciy teg sama bët jour bi ñu ko opéré ba ma ñëwee seet si ko falaa fekk benn sëram. sër bi taxaw benn mbokkam nekk fa. bi ñu ko opéré ba mu wër a génn nag. biir buy metti attaqué ko. ñu woo ma wax ma ko ci sa vendredi bi ci guddi. man leen su ma xëyee naa fa ñëw. ma xëy suba teel ñu woo ma ni ma gaañu na. Euh, dafa gaañu. biñ may woo naan ma dafa gaañu. moom dem na ba nekk sama sama xolo sama gaan boo xam ne nekk sama xarit. bi ma demee. Mhm. mu fekk mu mbuur. ma déparé Mbour di ñëw dakaar hmm. bi nee ma dafa gaañoo rek ma déparé mbuur daw si ñëw ba ci hôpital bi dugg ci morgue bi gis ko génnaat ci morgue bi fekk naa fa ay mbokkam lu mat cent cinquante personnes yoo xam ne ay mbokkam lañu te ñaari at maa ngi nekk ak moom di yëg ak daanu te musuma gis benn mbokkam. Hmm. ci biir morgue bi fekk naa fa posé lañ gaare. Hmm. pour yóbbu ko Touba. ma ñëw woo leen ba ñëw man leen man la Ndoye baan maa ko doon jàppale maa ko indi woon ci hôpital bi pour ñu opeere ko gis ngeen nii li nekkoon ci kanam gi pour ñu opérer ko opérer nañ ko mun waaw moom koy médecin yi wax nañ ñu lépp opéré nañ ko ba lépp normal na ay tout mais dafa amee woon biir buy metti biir bu metti bee ko yóbbu affaire yooyu man leen voilà li ma ci jaaxal ñaari at yëpp musuma leen mu yéen ñi ñëpp musuma ciy gis kenn musumaa gis benn mbokkam bu ko taxaw assister garab gu mu naan sax man la doon woo paas bu mu jógee seen dëkk ñëw ndakaaru man la doon woo paas pour dellu man la doon woo wëtteen sax man maa ko doon jënd an booba ana ay mbokkam léegi Sénégal mbokki niñ mbokki léegi nga dee ñu gaare pose suuli la rek lañ mën loolaa leen wax ci morgue bi de mm-hmm. nii leen beneen yoonatee lu mel ni bu mu leen dalati mm-hmm. fii la naroon a jaar loroon a jaar pour dem ci sunu borom fi la fi la yalla ni won fi lay jaar mais ben ñonaté su seen mbokk febaré na ngeen ko taxaw mhm. nit ku bax da ngay taxawal ay mbokk mhm. wa ku dul taxaw say mbokk ndax ni nga taxaw ab xarit mm-hmm. samba alar nii am ci rew mi samba alar comprendre man nak loolu la len wax dem am ju ñoo xam ne dem dañ ma dabaat nañ ma ni nga li mo li nga wax deug la mm-hmm. xam nga gënulu ma ma koy expliquer nii mais loolu oh. exemple la pour que ñi nga xam ne jamono jii mhm. dañoo am feebar ku feebar mhm. ñu koy taxaw ku feebar dafa soxla ay mbokkam taxawu ko ba yàlla def li gën mhm. waaye su yàlla defee lu gën di ngeen luye ko oto fay ko sant mille francs yóbbu ko Touba mbaa Tiwaawan mbaa fa mu dëkk su fekkee ci village yi dëkk di ngeen ca defaat loo xam ne di ngeen reyu nag waaye reyam xar di ngeen ko dëj la ngeen ko nar a dëjee yëpp xajoon na ci malade bi donc loo xam ne nit su mënul dara mbokkam est-ce que dina mënal dara ab xaritam. ndoy loo nag dina gën doomu ndey. baax a wax na ko sànq. Mhm. loolu dafay naq dafay naqaree nag eh, kii. parce que xam nga xam nga deret moom deret la. Mhm. deret dafa foox. Mhm. xam nga mais nag. dëgg la tam aussi. Mhm. gis nga euh, léegi nii bokk ndey ak baay. Mhm. sax me comme ni nga ko waxee sànq bokk néeg la rek yeewu dem. Mhm. am na nag gaa mbokk yu melul noonu. mais loolu tam am na. gis nga sëñ bi sànq bi nga naan xale bi euh, da nga da amoon ay xarit yu la daan di la wax seen soxla ak yooyu. nga naan leen yow xanaa amu xanaa amu leen sœur wala dara ñu ne la non non euh, dañ lay xamal rek kiiwal la dañ lay xamal rek weex la. mais duñ la. lii lii la waat tam. Mhm. gis nga ñooñu noonu ci yow la ñu gënoon am confiance. Mhm. te pourtant bokk ak ñoom ndey bokk ak ñoom baay. nga mhm. gëjee ngeen ci aadama ak mais xarit dina gën doomu ndey. gis nga nit bu sincère am xol bu rafet. loolu yàlla mayu ko ñëpp. loolu mooy xarit. loolu mooy xarit xarit mu xarit. yenn saa yi yi sax ñooy gën mbokk. c'est vrai je t'assure. jàmbur yi ñooy gën 88 628 14 14 ñu jël kenn allo. allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku euh, man la. Euh, wàññi sa rajo. salaamaaleykum. wàññi sa rajo wàññi rajo bi. Euh, mhm. maa ngi koy wàññi. Hmm. wàññeekoo ko de. Ndoye Bane. waaw na ngeen def. sant nañ Serigne Touba. jërëjëf waay. Ndoye. Hmm. ñun sant nañ de. waaw sant bu baax. xam nga lu tax ñu sant. ah. nit ku baax na. jërëjëf. xam nga ci lan laa ko teg. Hmm. Eh, waxtaan yi nga waxtaan tey. Hmm. Eh, daf maa dugg. Hmm, eh, dugg bi nag dafa xaw a yéeme quoi loolu beneen baatin la tamit. baatin bi nag li ko indi xam nga lu mu. léegi sa waxtaan yu mujj. da ngaa wax ni waa góor yàlla boobu soxna soosu wala góor yàlla bi nga xam ne faatu na. bi muy faatu mu ngi la fekk dëkk bu ñuy wax mbuur waaw man ndooy foofu laa nekkoon mhm. fa laa nekk mhm. euh, ndooy man dama am xarit boo mhm. xam ni fii may waxee ak yow ci otoom laa doon ñu déglu moom def naa man loo xamante ni bu la neexee wëral ci réew mi doo gis ku ko defak ni man maa ko wax de ndooy wëral réew mi yëpp sëriñ Saliou Mbacke moom bitim réew la nekkoon. Mhm. bitim réew. Mhm. barke alquranul karim. Mhm. takk soxna ba ma ak moom. barke alquran ndooy barke laa ilaha illallah ak yàlla bu ma fanaan. su may fanaan ak soxna soosu. waaye ci dëgg ndooy. barke alquranul karim man mii laa wax de. waxuma ay naan la diw wala daa kaa. tey ci otom bii laa toogaat ci portable am laa lay wootee. Mm-hmm. kon li may wax dëgg la quoi. Mm-hmm. yow Serigne Touba mooy kilay fay. Mm-hmm. Euh, yow yow yow yow yow ci àdduna missionnaire nga ci quoi. xam nga ndoy àdduna nit ku ne dafa am destin. dafa am loo xamante ne nii moom for force mu jaar ci. moom munu ci dara. yow bi nga njëkkee jóg ci sa àdduna militaire nee na doon nga ko. lu dëgg. Mhm. waaw mais dafa am lii sa def lii ngay dox nii quoi. Mhm. man leen rek lay ñaan. Mhm. Serigne Touba ak sa borom. yàlla na la musal ci bët balaa. amiin làmmañu ñaaw. amiin loolu yàlla bu la dara pakk yow ci àdduna. amiin amiin ba nga dox barke alxuraanul karim. xarit nag am na lool. am na barke maam Cheikh Ibrahima Fall. amiin man am naa xarit. nii ma nekk ak moom. loolu loolu nga dund noonu. dund moom mi laa illaa illa laa dëgg la. jërëjëf barke maam Cheikh Ibrahima Fall dëgg la dëgg la loolu nga dund noonu. man maa ngi nekk ak moom nii quoi ndoy mbuur googu toog naa fa ba tey bëgg laa woo ci tem boo sa wax. Mm-hmm. barke alxuraanul karim te boo musa wax rek jóg naa di woote ba sonn mënu maa fexe ba ah, dugg ah, barke maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. barke alxuraan euh, te mu fiiraange tem bu ne dugg nga ci rek ma bëgg dugg <laughs> mais mënu maa dugg jaajëf jaajëf te tey la ko sëriñ bi dogalaat ci waxtaan yi nga waxtaan tey ma bëgg laa xamal ni xarit moom mm-hmm. ah nit ñi ñoo ànd ci àdduna ndax nit la àdduna di pëkk mm-hmm. ba tax leneen dugg ko ba tax mu mën a mën a mel neneen ndax dégg nga ma baax moom nit la àdduna di pëkk ba tax mu man a mel neneen mën a def leneen mën a am leneen man a mel tamit neneen mm-hmm. waaw mais nit moom euh, bi ci gën mooy nite rek mm-hmm. nite nag mooy xam sa devoir xam li nga moom mm-hmm. xam sa warugar xam yow yaay kan yii dafa am solo quoi. jërëjëf jërëjëf. waaw maa ngi jégalu quoi affaire bi xat na te waaw mënees ta wax lépp daal. jërëjëf jërëjëf. ni ko wolof di waxee li duuf si nag li lépp xajul. ci jërëjëf jërëjëf. waaye nag yow daal yal na la yàlla wéral. amin amin ñu bokk. yal na la yàlla kattanal. amin amin amin amin yàlla bu noonu man yow dara. amin amin amin amin barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na nga am jàmm. jërëjëf jërëjëf. nit ku baax nga. jërëjëf alhamdulilah barki suñu Bamba waaw dundal rek. yow daal dundal cent onze ni ko gaañ yi waxee. mais daal na la leer ni xarit moom am na de. am na woy bu wér bu wér. waaw am na de barke maam Cheikh Fall man de maa ngi toog fii. waaw di la déglu barke alxuraan mais gëm naa ne xarit am na. waaw am na waaw cey sama baay. waaw man de am naa ko man. waaw waaw. waaw damaa bëgg. waaw ñu ko amul nan wuti xarit waay. waaw waaw dañ ko war a wuti de. amuñu ko nanu gore te wuti xarit. te bu nu amee xarit nanu sincère ni ko soxna soosu di waxee. waaw sincère sincère sincérité daa am solo. dëgg la dëgg maa ngi jégalu damaa dégg ngeen di wax jigéen. waaw ci la xarit sax ni ngeen di wax ni ci la euh, manque de confiance ak yooyu ci la ëpp ko waa ci xarit. te mhm. jigéen. Mhm. mais jigéen maa ngi jégalu yéen a ko wax jigéen ngeen wax li lijjanti leen baat bi jigéen ngeen wax. jigéen jigéen genn du sax. Mhm. genn goo mën na ji du sax ci àdduna mhm. wutal geenu bëy bu la neex rek ndooy wuti ko ci àdduna ñëw ji ko du sax mukk mhm. Mhm. jigéen quoi. jaajëf jaajëf góor la góor la quoi. waaw góor yàlla la ñun góor yàlla yi. waaw nañu fexee ànd te yàlla rek sax. waaw loolu la de loolu la de. suñu réew mii sax yii moo ko yàq yii yëpp dama ci bëgg a woote mais mënu maa fexe ba woote. barkeel Alxuraan. waaye nañu nañu rafetal affaire bi ndey nit na xam ni moom àdduna hmm. ñëw ci pour hasard moom dafay ngir liggéey sax bàmmeelam hmm. eh, waaye te dee am na waay ah, waaw te dëgg la hmm. waay waay nan rafetal li nan rafetal li jërë ngeen jëf kontaan naa nag Cheikh Ibra Fall na la yàlla sàmm damay fàttali gars yi la Cheikh Ibra Fall waxoon gars yi rek jamono ni toll jamono joo xam ni eh, eh, nit ñi dañuy wax rek waaye su nit ñi dee wax rek yow fexeel ba jëf nañ def rek. yàlla du fay wax bàyyi jëf. wax di bàyyi jëf yàlla du ko def. yàlla du ko def maam Seera Fall boo gisee li tax mu raw ñëpp loolu la rawee woon. waaw moom dafa ni yàlla du fay wax mukk ci àdduna bàyyi jëf. Mhm. kii mooy Cheikh te man fi ma dëkk nii. Mhm. moom moo ko jënd titre foncier. Mhm. te moom àdduna sax nit ñi dof lañ ko jàppe woon waaye moom xamoon na lépp. xamoon na ni tam moom xajoon na ñëpp te kenn xajowu ko. lii moo taxoon nag fu mu mës dëkk rek mu jënd ko def ko titre foncier. waaw kooku mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf c'est moom doole moom rek la. jërëjëf Ndoye. waaw yal na la yàlla sàmm. Mm-hmm. amiin. ñaan gi may gën a ñaan xam nga lu tax. Ah. nit lu ko pakk ci àdduna lépp cat la. Mm-hmm. moom rek laay muslu yal na la musal moom cat. jërëjëf yal na la muccal. amiin yàlla bu mu la laal. amiin amiin barke maam Cheikh Ibrahima Fall yal na la yal na la dëdd. Mm-hmm. ndax yi ngay def nii dafa xaw a baax parce que gis nga fi nga toog nañ di waxtaan. waaw. nit koo xam ne deret gor mu ngi ci moom deret ji nag laa wax di gar mhm. parce que euh, ki nelaam mhm. mhm. dafa ni gar mi moo neex a soppi wàll yi nga loolu waaw dafa ni gar mi moo neex a soppi wàll léegi nag nit koo xam ne deret gor mu ngi ci moom bu toogee nii dina la déglu bu fekkoon dafa bon ndoy moom dina xel mi dina dem ci ne dafa bon bu fekkoon tam dafa baax barke alxuraan fi mu toog xel mi dina dem ci ne moom dafa baax kooku ndax dégg nga ma maa la dégg ak ku mu doon nag te nit nekk ñëpp ci àdduna bi te lay déglu. ku wéet xam sa bopp. ah gas ah, jaajëfati mais ñun ñëpp nag yàlla ñu bokk xam ndooy. Mm-hmm. ñun ñëpp. jërëjëf. yàlla na nu yàlla dimbali. amin amin amin ndax moom ku mu baaxal nga baax. waaw waaw. ndax damay faral di wax ni yonent bi moo gën ñëpp waaye nag naa leer ni gënam nga. Mm. du tàggat ni da kaa liggéeyal yàlla de. yàlla la neex moom tànneefu sama borom la. Mm-hmm. am déet. ja la. yàlla na nu sa borom tànnal boppam gënal ñu. jërëjëf jërëjëf. yow day ba xam naa ni ku baax nga. jërëjëf alhamdulilah yow day xam naa ko man day yëg naa ko xam nga lu tax. Hmm. man xamoo ma xaw ma la. Hmm. defaloo ma dara tamit. Hmm. barke alxuraan musuma laa gis sax nag. lu dul ci télé. barkeb sëñ Fallu. waaye gëm naa ne nit ku baax nga. jërëjëf jërëjëf. li tax mooy li ne sama xol bi ak sama xel mi. ma ma bëggoon a toog foofu wala ma mënoon a toog feneen fu ma ñëpp di déggee. waay waaye yow fa nga toog sa koy wax. Mm-hmm. kon yàlla nañ fi yàgg. amiin amiin <laughs> jërëjëf da koy wax. jërëjëf Baye Fall waaw lii. waaw te si ñëpp dégge waayu yi te baax waay. waaw baax waaw. waaw góor yàlla bii ma lay wax nag ni la moom moo ma bàyyeeg soxnaam soosu noonu. waaw. waaw moom nu ma mel nii moom moo ko def ci man. baax rek am solo. waaw bu ñu toogoon nag wax gën a waxtaan ngay gën a xam li ma wax. incha allah boo ko gën a li ma wax. jërëjëf jërëjëf. waaw xam ni lépp dëgg la du tamit lu ma fen li tax ma wax sama dënn jóg. waaw barke dëgg la. jërëjëf jërëjëf ba Fall. ak sa ndoy jërëjëfati kontaan jërëjëf Fall mm, yàgg naa ci ligne bi am na ñoo xam ne sax xam naa ñu ngi naan moom na jóg. waaye waaw waaye Baye Fall bee daal Baye ma jox la kooku rek. daa noo garaawul ba moom it bëgg naa wax ak yow lool de. ah, ah waaw. Ah, waaw kon baax na. kon baax na jaajëf jaajëf waaw jaajëf Fall merci beaucoup ñu koy sant di ko gërëm sama Baye Fall bi daa daanu euh, gis nga comme li mu li ko dal ci ci ci soxna soos sama xarit takk na soxna man ma nekk célibataire ki ma wax sama xarit la ndax papa ak sam papa ñoo daan ànd nekk ay xarit ñu jël ma jox ma papa euh, papa boobu ma nekk seen kër di jàng ngaay ngaay mexe ma jàng ba jóge fa ñëw ndakaaru luwe ab néeg ne fa mu ne italie waa ji ne itali muy Tengala Mbay naa seen waa kër yi ngi dégg wala muy déglu mu takk soxna ndakaaru war a jóge Italie ñëw ma jëli soxna sa yóbbu ko ci sama néegu célibataire boobu su guddi jotee ma fanaan ci buntu néeg bi soxna si fanaan ci biir néeg bi mu doon xale bu ndaw disket bu jekk mooy fanaan ci buntu néeg bi pendant quinze jours au jour bi mu waree ñëw ma dem jëli ko aéroport indi ko ñom ñaan ñu dëkk 1 mois may fanan ci biir neeg bi ñom ñu ne ci biir neeg bi yeen say ma leen di togn naan leen yeen seen taw bi sama neeg bi ngeen ko ngeen ba dégg li mu wax dégg naa ko ah loolu laa leen di mbalagee pour wax la ni xarit lu am la sa sa sa xarit tukki fu sori dénk la soxnaam nga def ko comme nga def ko soxna def ko rakk bu jigéen taxawu ko bu baax a baax ba nga xam ne su ñëwee du am dara lu ko metti loolu mooy xarit bala ngay am xarit dëgg-dëgg nga jël ko dénk ko sa soxna xool mu doon soxna su baax yow nga doon nit ku baax jëkkëram doon ku baax moo tax dërëm ak dërëm a mën a ànd maanaam ñaar ñi ñi ñoo mën a xam ni ko wolof di àndee. ñaari gor ñoom ñaari gor ñoo mën a ànd. Uh-huh. ndax ku ne dana sóor moromam. Hmm, uh-huh. voilà loolooy mbaax. lu lu am lu am solo loolu rek la. allo. allo. salaam. borom baat bu neex bi nuyoo. <laughs> boroom baat bu neex bi na nga def waay. maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax waay. yaa ngi jàmm. jàmm rek sant bu baax sant bu yor. man de yàlla xam na ne Baye Fall bee ma a daare moom. Hmm. bi de moom daa daanu moom. non ndax li mu wax ñun dañ koo dund. Hmm. te ndooy dafa wax ñaari kàddu yu am solo yoo xam ne. xam naa bàyyi hmm. woo ci xel def na yow. yàlla daf laa indi rek uniquement pour mission booy dox. Mhm. ndaxte bëri na loo def ci réew mi loo xam ne. Mhm. te def sax xam naa ne xamoo ko. Mhm. waaw mais kooku dañ lay bàyyi yàlla yàlla fayal la bopp amiin amiin amiin amiin. ndaxte defar nga askan wi ci lu bëri bëri bëri bëri. te it euh, li Njaay di wax réeroo amul ñàkk waxtaan a am. mais jukka yi njooyu léegi moo yàqu. mais fa ndox danta bu leg mo demee fek féete peut être. Mhm. ñi nga dañu ne judd ci yar mag ñu bax ni hmm dara mënut a fee hmm ko leer mi ngi am xarit mi ngi am mais dafa bëreetul hmm ndax li tax bëreetul hmm moy comme ni nga wax hmm dërëm ak dërëm ñu dul andat léegi. Mhm. dërëm ak juroom dërëm ñoy bëgg a ànd. Mhm. mënta ne. bu ko defee faaw boobu banké rek faaw am wad wadd. dañ dul waxante dëgg man suma dé milliardaire baara yurul dërëm. ànd ak man buma musa wax dëgg. moom foofu laa jëm si parce que léegi tey <laughs> li gën a jafe mooy borom xaalis. Mm-hmm. du am xarit bu koy wax dëgg parce que sax lu mu def su juumee sax ñu ne noonu ni mu ko bëggoon a wax jekkalal ko ne ko jëmewul noonu. Mm-hmm. yàlla ya ànd ba yàlla taxatul. Mm-hmm. waaye ñi nga xam ne dañoo nekkoon na woon depuis ñu nekk xale. di ànd dawal seen i ndege di bul. ba yàlla def ko ci lu ci waaye man di amit. ko dana xool démb. su juumee dina ko mën a wax. Mhm. waaye tey ku am cinq cent mille rek am xarit boo xam ne day yor deux millions wala trois millions. Mhm. xeet sa cosaan xeet sa xarit. Mhm. man nag wax ji li ma ci gën a intéressé mooy li nga wax a ji léegi. sarxal lan man ak maa day taali nga dem police ñu jëlal avocat. <laughs> non non du caaxaan. la sunu borom de ñoo ci gën a gaaw. waaw fi ne tey nii li nga wax noonu fi ne tey ñu ngi dëkk fii nii. ban heure la koor bi ñëw yàkkamti ñu ngi ko yóbbu baax te dañu daal dem taxaw naan di sonn ku nekk di góor gu indi saako ceeb. yàlla na yéex nag yeew ci yeew ci buntu kër gi. boo feebaree duñ la faj soo amoon problème facture te naan noonu kii day taxawal. ban waaye yàlla tere boo faatoo suba fukki nagay ñëw ci kër ga ñu yeew ko. ban heure lañ koy jébbal boromam. ban heure ku nekk di la kàr kàr waaye non dafa nekkoon sama xarit ban heure lañ koy jëw levée de corps bi nangam nangam. Mhm. mais nit ki bi muy dund nga ko war dimbali. Mhm. mais bu negee ba faatu nga di ko dimbali amatul njariñ. amul njariñ de. nit ñi nañ jaamu yàlla ak fellan ko. jaamuwaat li nga wax léegi maanaam Cheikh Ibrahima Fall dana dabe dab de daay jaamu yàlla yi. ci nga mhm. mën a jaamoo yàlla suñu borom. ok nit yàlla yi il faut nga jàppale leen dimbali leen. ay ay milliards di ko ci banque bi. ay intérêt dugg. nga dëkk ci famille dëkk ci koñ. Mhm. buñ añee du reer bu reer du ndékki. Mhm. sooy ñëw ci dëkk ba yit sa évier ak sa kenet. ko say soxna di làkki tubaab ak ñii. dem mhm. jugee Pire jugee Mbàkke bool. waaye war nañoo xoolaat suñu bopp de. jërëjëf ñépp xoolee barke sëñ tubaab danañ fa fekku. baax na. xarit nag am na bu baax a baax man maa ngi siyaare sama xarit yëpp. rawatina femme ma génn ak Espagne. jaajëf jaajëf lu moom mel moo ko def muy sëriñ Mbaye. sëriñ Mbaye ca Espagne. waaw ca Espagne barke Tenerife barke Borom Touba. jërëjëf waay. ju ma am ci ju baax rek moom laa koy sant. ndeysaan ndeysaan. yal nañu ko yàlla fayal. jërëjëf jërëjëf. mais xarit lu am la moom. lu am la. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. merci beaucoup ñu koy sant di ko bu baax a baax ñu jël keneen allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam Ndoye maa ñu ngi lay bu baax fooy wootee. maa ngi maa ngi wootee Dakar maa ngi siyaat nekk plateau bi yëpp. merci beaucoup waay sama waa ji. Ndoye émission bi sama émission la. sa émission la yow. Mbacke Cheikhul Khadim Mbacke bi nga ko waxee sama yàlla bu doon daw. ah monsieur Ndaw déglu Binta toogaatal. Doy. Wow. adduna ni da ngay wax dëgg lu si mën am damay wax dëgg tey. waaw. wallaahi anjib. sama mhm. bi ku ma Wow. sama xaritu benn bakkan. waaw. may gel. ma nekk ak ndaw si nekk ak ndaw si ba takk ko. waaw. parce que alxuraani kër yi ñuy sëy di sëy di sëy amuñu doom nag. waaw. ki ma ko mayoon. waaw. nekk si di man mëni di mën mëni ban bàyyante. moo ko tas. wallaahi ange mu tas ko ba pare takkaat ko. ah. <laughs> loolu jàpp ma bouleversé ma loolu dama wax dëgg si rajo laa nekk. waaw. parce que alxuraani karim léegi sax naan dama ko def sama xel bu nekk si loolu damay naan wallaahi ange. naan lan sàngara. wallahi xajib sama xel bu delloo nekkee loolu damay naan. waaw mm-hmm. ah, loolu nag jaru ko de. kooku ni ma def yaakaar naa man ba àdduna tukki du ma ko du ko ko baal boobu ba tey man jàppetuma kenn xarit ñëpp laa def noonu. Mm-hmm. Mm. waaw sa xarit sa xarit boobu ci ay am-am yaa ngi moom ku tane woon. maa ko maa ko gënoon situation nag. voilà est-ce que xam nga ni galam la la may. du man de du ma ko weddi. Mm-hmm. galam ndaw si bi bi bi nekkee di génn. lu ne defal naa ko mhm. lu ne wallaahi lu ne lu ne lu ne. Mhm. ba takk ko bu ma ko takk ma naa ko cinq cent mille. Mhm. xarit bi moo jiitu. dem ñaani ci ma jàpp sama xarit. dem ñaani def ay pexeem ba ma takk ko at laa def ndaw si at. ndekk at yëpp mu ngi yàq te li nga wax léegi chaque dimanche sama kër lay ñëw chaque dimanche. <laughs> baax na. bu bu bu ndaw si defaroo mu naan ko ah ni nga def sama séeri <laughs> ni nga def lii baax na di nga rey sax man nag ma jàpp ni comme sama xarit la da koy da koy da koy da koy tooñ mm-hmm. ba tey jii de ku ma tey tamit ma waat ni ñeme na waat ni doon doon séq la sama ginnaaw espagne mm-hmm. mm-hmm. bi nii mu def ay pexe lu ne mu wax ko yi ama woon benn dut ci sa diggante mo sa soxna ak waa ji wallahi mosuma am dut ndax euh, lu ne lu mu a def ma doon ni sax am naa fit ñu ko ko wóolu woon doy jox ko sama lépp def ko sama xarit barke yonent bi. ndaw sëy bi nan la tase. sëy bi ni mu tase dem dem fa. Mhm. ni ko man dama am beneen jabar dama koo takk takk suuf. loolu la sa xarit bee ko wax loolu. loolu la ko wax ni ko kii fi mu bokk fi mu bokk baaxul ndax gisoo ñaan gi man maa ñëw ak ay ñetti pas de leen a fay. Mhm. mu damaa xamul nu ma la koy waxee nag. Mhm. man li ma nettal laa li ma nettal ndax loolu leer ma parce que fekku moom. dem ni ko man dama la bëgg xam naa ne xelum jigéen mhm. wallahi xaju ba mujj wa takk te ñu ngi nii di sëy jamono ji ñoom ñaar ñi ngi sëy ñoo ngi sëy mhm. te waaji waaji gis naa ko daaw rek daaw rek gis naa ko bi naa gis nag daaw la di gis mhm. da nga leen a ba ah, bana bana ko te tax na ma ma si confiance kenn ok d'accord yow ba nga koy takk ana say mbokk lu tax yow la woon say mbokk bi ma koy takk yow laa say mbokk Hmm, kon la mu wax amul. la mu wax amul wallaahi xajim amul. moom dafa sama papa jëm sukku jur. moom dafa demoon rek bokk ca délégation ba. ginnaaw ginnaaw sa xarit la ndax moom ndax moom may ndaw si. waaw ginnaaw sa xarit la sax war naa teew. Mhm. Eh, te li nga wax ni leer na ma ni gëlam la ndax bi ma bi ma ndax bi xaw ma ñoom yan pexe lan def ak fan la ndaw si ba indil ma ko. Mhm. lu ne laa lu ne laa doon def ndooy lu ne sama sama akulaataal la ku dee ak sa bàmmeel. Mhm. lu ne laa doon defal ndaw si lu ne si àdduna lu ne. Mm-hmm. la nga doon def lu jàpp ni góor góor du ko defal jigéen doon naa ko koy defal mm-hmm. Mm-hmm. ndax bëgg ko waaye tey lii lan ma fay lii yàq sama àdduna ba tey ji ma yow amu amu soxna ndax man wóolootuma kenn waaw mais nag bu mu la tax a def lu bon nag hmm? bu mu la tax a def lu bon bu mu la tax a naan bu mu la tax a tux bu mu la tax a def loo war def xamal xamal xamal ne jaar jaaru àdduna la effacé tout te recommencé daw mako cigarette sax daw mako tux wallahi hajim xolal mais loolu moo yàq sama aduna dama ne soo yàkkee sa àdduna ñoom ña ngay defar seen àdduna donc yow jéemal a defar sa àdduna ci yoon wu baax jéemal a defar sa àdduna ba ni correct nga dem fu baax ñu may la soxna su baax nga ànd ak moom mhm. utal ku la doy te sooy takk sooy takk fi mu nii da nga am déception sooy takk takal gone mhm. ginnaaw da nga am déception tooy takk takal xale boo xamul dara nga xamne lepp ya ko koy xamal nga ànd ak moom te nang ko tanal sa bop man voilà. ndoy pour sama lay taala ki jeeg ki ki dafa dafa yek te su ko takkee jeeg ji jeeg dañ koy gëna yegal yéegal waaw wuy wuy wóolatu benn jigen ah amna ñu fi tok ci plateau bi waaye ñi de damay ragal dañuy ragal ngir ne ko mu ñew ma defal ko ah, ngari la <laughs> na ñëw ma defal ko wuyu allo gra bi yang koy deg waaw maa ngi dégg nu na nga ñëw mu defal la. Binta waxal. ah man kay man kay instant bi sax wallaahi ma sax bëggatuma ñu bëgg ma sax ñu defal man kay ma bëgg ba ma nii rek. ëpp naa def nag non ah mën nga rencontré ku baax nag. Mhm. bul découragé. Mm, yàlla mm. nagam yàlla destin la rek am na ñu koy sax gën a métti lu mm, foofu pourtant. nagam yàlla ñaari rab yi ma fi yor soo jotee ci ñoom <laughs> sëñ bi. ok. Mhm. en tout daal li ma lay bëgg a wax mooy. waaw bu mu la tax a def lu bon bu mu la tax a wax lu bon. jéem a liggéey sa liggéey jaamu yàlla. Mhm. di def lu baax ba yàlla joxaat la keneen ku baax te na nga tànnal sa bopp wala nga wax su fekkee sa waajuru jigéen mi ngi fi nga wax sa waajur wu jigéen mu tànnal la ci famille bi ku baax te yem mhm. ciy loxo. Mhm. ñaari déception wala ñetti déception. day mën naa def loolu dafa Olof Ndiaye dafa wax dafa wax lu am solo. gis nga hmm. ku ku sa waxi waajur rek loo dal yaa ko teg sa bopp. Ah, ah, ah toujours ma wax ko de. bañ ma bañ ma waxee ñu may la sa doomu bàjjen. Hmm. ma maa ko yar mënu ma ko takk dama ko seexlu. waaw. te ki ma ni sama yaay lu ngi tuddee ko yar. Hmm. li ma la juróomi at laa ko mën a maa seeg moom. ñu dem indil ma jigéen xaw ma fu ma dugg si tey di lii sama mbokk hmm. yi ñëpp am dëgg sama kaw ñu waxoon na la lii loolu nag moom a gën a jàpp nga ñëpp am dëgg sama kaw ñu hmm. toll si yoon yu ma jël wallahi xasin dama see wéet waaw ah, mais nag mais nag mais nag xam nga njuumte moom du wees waaye jaay yoon woo moom du solution voilà fin mi nii daal ya, recommencé atal à zéro voilà borom kurum gorom karaw gu ñul ñàkkul dara xamal mhm. ni jaar jaar la woon mhm. yàlla def na amoo ca mhm. doom voilà efface tout et recommence tout soo amaatee sax soo amaatee nag ngay soog a dund. soo amaatee. waaw c'est ça. métti métti jamono jamono koy faj. voilà c'est ça quoi. yàlla mën na la may lu gën. su ko defee tey waa sa xet boo. fexeel ba bu mu duggaat ci yow. Mhm. voilà fexeel voilà. ok na ko. ok jaajëf. naa ko. merci beaucoup ñu koy sant ko gërëm bu baax a baax 88 628 14 14 ndaw xam naa ni yéen a ngi noté mm-hmm. noté leen kaa mm-hmm. bi moom kaa la 88 628 14 14 mooy numéro bi ngeen mën a jokkoo ak ñun euh, saa su ne di nuyu Fatou Diop euh, Bordeaux borom Bordeaux ñu ngi lay ziar bu baax allo allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam ça va alhamdulilah ñu ngi lay ziar ça va ñu ngi sant bu baax a baax ah, ziar ñu toogal ñëpp uh-huh. ah tey ñoom thème bi gën a am solo uh-huh. di wax rek. Mm. te jaay moom ni nga déggee say diggante xarit da ciy dégg lu ñaaw. Mm-hmm. noonu la amee ay diggante yi nga xamante ne noonu lay rafetee. Mm-hmm. man nag sama sama xarit moom presque ñi nga xamante depuis bi ñu def seen mm-hmm. xam naa ne échange bi mu ngi ñuy dégg sax mais <laughs> téléphone dafa yàqu. <laughs> mais mu ngi ñuy dégg mais moom lu baax rek léegi li li moo mos a nekk suñu diggante. mom moom la moom rek laa mos a jàpp comme xarit. cest à koy rere mom allo mhm, mhm. mom ma ngay mbalak copain bi quoi ki mbalak mbalak mbalakal allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax na yéen ya, def. ñu sant bu baax a baax. naka yi tey mbaa ci jamm sant bu baax baax. ah xarit day man na ni amna amna awul. ah lutax Euh, parce que àdduna àdduna à chaque fois moom da ngay gis lu la jaaxal trop. Mm-hmm. mais saa boo wéeteeg euh, kilo la bëgg rek. Mm-hmm. da ngay daal di wëlbatiku xamaat lu bari. Mm-hmm. nit moom boo amul déception wala nga am jaar-jaar yu metti sax ci àdduna. doo xam dara. allo. maa ngi lay dégg bu baax. man mii di wax yow. Mm. am na euh, benn xarit boo xam ne nii. mas na maa may deux millions. Mhm. ma ciy lijjanti pour tukki. mu mhm. daal di échec yaa ngi may dégg. waaw. bi mu échecee. bi ma doxee ba déggaat ko. ci xaritu jabaram laa ko déggee. Mhm. yaa ngi may dégg bu ñu ngi lay dégg waaw. ma daal de bi ma ko déggee ci xaritu jabaram ma daal di bi ma ko déggee mu metti ma trop. ndax am na lu ñu daan def loo xam ne nii maa ngi moom ak yàlla rek ñoo ko daan yëg. mais bi ma ko déggee ci xaritu jabaram ma yëkkati deux millions yi mhm. dem ba ci yaayam daal ni ko ah jox ko ko daal ni ko ah lii de diw moo ma ko joxoon ma ci lijjanti pour tukki mais comme yàlla def na li ma doon lijjanti sottiwul ma ni naa la ko jox at bala moo mhm. yàqu ci samay loxo mhm. te ma ko koy jox grand barke alxuraanul karim ba ma ko koy jox pa euh, paas bu ma retourné sax yoruma ko. Mhm. ma jox ko deux millions yi barke alxuraan sama jaaro xaalis moom la yëkkati jaay ko pour paas. Mhm. paas bi ñibbi. <laughs> moo tax euh, am na ñu ko dund nag ñu dund lu metti mhm. ci côté xarit parce que euh, da ngay nit. def ko comme sa xarit. fekk kooka defu la xarit loolu nag mooy mooy indi déception bu bari ci entre xarit effectivement waaw euh, bu dee ku am xaalis hmm. euh, dee ku am xaalis booy wut xarit hmm. boo amul xaritu démb te soxla xarit hmm. da wut xarit boo xam ne nii bàddool la bu doylu la ku yorut te doylu boo xam ne nii dërëm ak million moom la yemale boo amee xaalis di wut xarit kooku ngay wut kooku boo ko amee. waaw dina la génne ci lu bari. Mm-hmm. mais euh, àdduna da euh, fi toll nii dañuy dund loo xam ne nii dund lu loo xam ni li sëñ si am bay doon wax mu ni xaalis du dara këyit bu ñu waxtaanee ba jubóo la. Mm-hmm. neex na trop ci poche. Mm-hmm. mais dignité dafa ëpp lépp ci àdduna. boo mais doomu aadama boo yemalee benn dërëm ak million. defe naa dara mënu la dëgg la. ci àdduna doo amoo si lu la metti ci côté xaalis mm-hmm. parce que jamono bi lu ñu bare bare bari bu ñuy jàpp nit dañ koy jàpp ndax dara mm-hmm. mais nit saa booy jàpp nit jàpp ko te yàlla tax mm-hmm. mais boo ko jàpp te yàlla tax rek ànd bu yàlla taxul ku njëkk a war rek gañe nga Mhm. dañ koy def ànd euh, ku bu boobaa moom bu dee booy ànd ak nit te yàlla taxul. Mhm. def ko ànd politicien rek. Mhm. buñ la poussé ba nga tàkk nga daal di euh, euh, ba nga tàkk nga yëkkati sa loxo rek def ñaari klaxon sarale. loolu mooy ànd politicien. jërëjëf. mais nit ñi dañoo jàpp xaalis te xaalis moom këyit bu ñu waxtaanee ba jubóo la boo ko làmbee daj ko sa poche nag dafa neex. mais boo dee baat doole te doylu. maanaam. ci gàttal yoroo xaalis te doylu waaw boo doyloo rek euh, nga xam ni am yàlla yàlla mooy buur ñàkk yàlla yàlla mooy buur mm-hmm. saa boo ko defee ci sa bopp rek mm-hmm. euh, maanaam doo bari déception ci àdduna mm-hmm. moo tax euh, yàlla na leen yàlla jàppale yàlla yàlla soppi ci ko yu bari ba jikko yi yàlla na ko yàlla soppi. amiin ba def ko comme jikko yi Ndoye Bane. <laughs> Ndoye Bane moom moom gën a go gisuma man xaw ma la gën a bari ci réew mi xaw ma ko. xaw ma la nag barke Xaadim Rasul. amiin amiin mosuma yow mais yàlla mi am sutura. yàlla nañu yàlla gën a suturaal. amiin amiin na yàlla xeeb dool te defal lu li gën ci ñun. amiin amiin. yalla xam na ko yalla yalla jàppale ñu mm-hmm, émission bi yalla na ko yalla yok amin nga dem ba am sa télé bop yalla yalla sutural dal barki yow fati amin jërëjëf amin jërëjëf fati jërëjëf jërëjëf fati mm-hmm. merci dafa mel ne am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daj koy jël rapidement daal di ñëwaat allo salaamaaleykum kii sa jigéen la sa xarit waaw <laughs> kii kan la ci xarit la man la man rek la. yow kan. man sa jigéen sa xarit. sama jigéen sama xarit. ñooñu di wax da baax ñoom xamuñu sa baax man maa ko xam. li la xam boobu <laughs> <laughs> nga yow sa voix bi. Eh. benn la ci senegaal dëkk bi yëpp may xàmmee bu duggee dëkk bi dañuy xam ne xam wax naa waaye man. waaw je tiens à wax ci affaire xarit. waaw xarit. man damay gis léegi nit ñi. Mhm. dañuy xaritoog nit parce Mm-hmm. diw mooy diw. Mm-hmm. parce que diw mooy occupé poste sàngam. Mm-hmm. même boo xoolee ci bërëbu liggéeyukaay yi. dangay ngay gis nit day xaytoo nit parce que nit moo yor ñu jël ñi nga xam ne ñoo ñu gën a néew doole. teg leen duñ leen faale. te xam nga loolu du yëfu du xaytoo. te gis nga ñu néew doole yooyu. ñooñ ñoo yor xol yu baax yi. ñoo ñoo yor xolu doomu góor yi. ñoo ñoo yor xolu. xoli xolu oo mais da gis nit koo xam ne dafay xaritoog nit mu leer la ni. même mm-hmm. ci bërëbu lëg mu leer la ni kii. Mm-hmm. ca la mu yor loolu la bëgg moo tax mu xaritoog moom. Mm-hmm, te day wéet amee kooka. xam nga loolu du xarit. du xarit de. ndax nit booy xaritoog moom. Mm. da ngay xaritoog moom surtout tous les plans. di def rek yàlla tax. bu baax bu neexee nga ànd ak ñoom bu naqaree nga ànd ak ñoom. waaye xaritoo boo xam ne yow daal comme par exemple daal maanaam yow am na loo yor te loolu nga yow bëgg naa te bu ma xaritoog yow du ma ci am. loolu du xarito loolu yëfu baadoola la. Mm. ma dugg la ni si buru. waa du mu ngi noonu ma dugg la ni si buru. Mm-hmm. te gis nga dugg googu mu lay dugg. Mm. dana dugg dina la duggal ci loo xam ni. Mm-hmm. ëllëg si biir bés bu la dara dalee moom mooy njëkk a taxaw génn taxaw naan xamoon naa ko de. dëgg la moom de lii moom de lee moom de lii moom de lee. moo lay génne moo lay weer. moo lay génne moo lay weer. Mm-hmm, mais ki nga xam ne dalaa bëgg rek te yàlla tax rek. Mm. te séentuwul ci yow dara. bëgg la rek ci xolam. loolu moom am na moom ça existe. waaw am na moom. mais ndakaaru njaay gi nag moom. Hmm. majeure partie yëpp moom. Hmm. xaytu intérêt laa fi gis man. kese kese kese kese. xaytu intérêt moom fi am parce que diw mooy doomu diw. waaw parce que diw mooy liggéey fii. Mm-hmm. parce que diw moom bu ma amee problème au niveau di kii mën na ma jàppale ci mm-hmm. lii. Mm-hmm. parce que diw bu may ngénte mën na ma jàppale ci lii loolu nga fiy gis. ndeysaan waaye xaytoog nit parce que dara dara dara dara dara rek. Mm. bariwul de. bariwul de bariwul moos. bariwul de am na nag waaye bariwul. bariwul moos. man de gis naa ci ñoo xam dañuy xaytoog yow te yàlla tax. waaye li ci ëpp de. Mhm. xaytu intérêt laa si gis man surtout Ndakaaru Njaay gi. waaw boo demee nag ñun ca fa ñu jógee nag ku nekk sama nga jógee di nga gis sa yaay koo xam ne koo koy xaytu benn bakkanam. Mhm, effectivement man bërki benn càmmeñ dafa jógee extérieur ñëw mhm. mu dem Diourbel daal di may woo ma na sama benn ko mu dem ba ca mu dem koox gis la ba photo baa sama bopp ko jox photo bi ni ko boo yaay jooju gaañu na waaye mu dem ci xaritam boobu ñu toog saa fonte defante lu baax. Mm-hmm. mu ñëw di ma nett naan mu maire bi daal ba tey changé wul. Mm-hmm. te mënoon naa changé. waaw xarit moom am na. am na waaye Ndakaaru Ndiaye moom xaritu intérêt moom fi am. Ya, yow moom sama xarit nga yow waaw yow yii yow moom danoo yàgg yow moom. <laughs> yow da tax sax yow ah. sama bërëb ba ma nekk ñëpp dañ laa bëgg ndax man <laughs> ñëpp koo wax ñu ne xaritu madame Dieng xaritu madame Dieng. kuy wax ba tudd Ndoye Bane ngeen ko waxal loo xam de. waxal wax ku ku ne man la man la woowal man ku ne te bu ñuy wax nag wax dëgg yàlla toogu ma fenn foo xam ña ngi fay toog di foofu loo xam ne lu lu négatif lu négatif. waaw. <laughs> te ba pare temps yi nag moom man point bi nga am moom dama la ciy may 10 sur 10. point ban noonu. ah da point point point point am caractère am fulla liggéey sa liggéey boole wa dara wax <laughs> di avancé rek dem ca kanam. waaw waaw jaajëf waay ca kanam rek nga jëm te gis nga yow. Uh-huh. ku la bañ. Hmm. yàlla na dee grand dee. <laughs> grand dee. grand dee mooy dee boo xam ne booy dee <laughs> yàlla da lay ngooñ ngay dee ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk explosé wuy ma damaa bëgg nga nga nga may soxna su ma soxna mu seen ndaw. nga maye nga may nga may ko ci portable ñi jigen ñi wër làmb wër seen portable euh, portable jëkkër yi loolu de géeg géeg du ko def ku ne gis sa musiba waaw yow man sama portable jëkkër man duma ko laal ah ah ba mu doon envoyer message message anglais nak lo ci defoon dama dégg luy anglais sax nak doom day déggu may anglais bi déggu may anglais laalu ma jegewuma dan naa ko def lool ci jamono yu njëkk ya waaye léegi nii magum jëm la duma dugg ci yooyu waaw waaw waaw wi ma lo defoon <laughs> xanaa wo sama professeur anglais ah. waaw ci jàngal sama doom waaw jox ko ay quelques mots yu ma foroon rek ni ko yow ya traduire ma li ci ci ci message yi nga for ci portable sa portable jëkkër waaw mu ne ma ah tante lii hmm. ma gis fii nii ma ne ko traduire ma rek ban daal ba ma traduire eh. eh, li waaw ci laa <laughs> gëj ci laa gëj sax xam couleur portable ba naka la nga ni bañ may takk téléphone xewul téléphone du tas sama sëy man téléphone du tas sama sëy ndax bañ may tàkk téléphone xewul. waaw wax nga dëgg de bilaay yaa téléphone xewul de téléphone de kum tas sëy ma xam ne bu laax ñàkk nga fayda. Ah, waaw ñàkk fayda dugg na la ak ndof dugg na la. Ah, waaw ndax jigéen bu baax nekk jeeg man de téléphone du tas sama sëy man. Mm-hmm. téléphone du tas sama sëy. Mm-hmm. ay yëndu portable du tas sama sëy wax ju bon nag lu ñuy ñëw di wax naa la joué Vuitton maay. Mm. jeeg bu baax ku ne day lay nay nay nay éviter sa moromu jeeg wala benn sàmba booy jóge naa la joué Vuitton man de képp ku gis sama jëkkër boo ko mënta boo ñëwee du ma ah, xam naa ne bés boo ma waxee moom taw nga may nga wax. Ah, waaw waaw ndax man Ndakaaru Njaay gii. Hmm. sëy xam sëy ba fa dee mm-hmm. ay sëy fii doom fii doom gauche doom droite xamuñu loolu. Mm-hmm. ñun suñu famille boo xoolee suñu lignée yi ñëpp même même même sant lay doon. Mm-hmm. waaye yow at mi ren nga fay foofu ñaari doom fu ne nga dem fa sa doom nga nekk am gaam juróomi doom yoo xam kenn du bokk sa moom loolu gàcce la waaw loolu gàcc la ci jigéen mm-hmm. yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla nañ ci yàlla musal moo tax daal ku ci am fulla ak fayda mm. na nga toog jàpp sa ñaam boobu mm. di seet li nga xam ne moo la day ak déglu sa émission yii mm-hmm. nga xam ne day yeete mm-hmm. man de lu mu guddi guddi ci laay ne di déglu maa ngi ci émission bi maa ngi ci xalaas bi maa nga ca leneen loo xam ne ndoy baan ma nga ca maa ngi si di déglu. <laughs> jaajëf saa yi ma déglu dama ciy am intérêt. jaajëf waay. yow yal nañ si yàgg tëwër. amiin amiin amiin amiin tëwër. ku la yé ku la ku la yéene lu bon yàlla la ca jiitu. <laughs> jaajëf yàlla sunu borom fay la baan. amiin jërëjëf jërëjëf kontaan nañ trop ci yow. merci beaucoup merci beaucoup kii moom sama xarit la madame Dieng ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax euh, di ko ziar madame Dieng euh, nekk fële ci ministère bu la justice justice la nekk justice waaw justice la nekk kii moom maa ngi moom <laughs> maa ngi moom dañoo dañoo yàgg sama waay la <laughs> jëkkëram euh, colonel euh, la ñu ngi koy ziar bu baax a baax euh, moom colonel

xamatuma kenn ci mbokkam yi ndax tuxu-tuxu yi. Mhm. elle s'appelait Awa Mbuub. ñoo dëkkoon ñaari tali. Awa Mbuub. dégg naa benn doomu magam boo xam ne doomu Njaay Samba Mbuub la. Mhm, Njaay ma laajte ñu ne mi ngi sëy kër famille cinq cinq. Njaay Samba. ah dinaa def tout. dem ko. Ah, kooku. kooku mënut réer. kooku sama xarit la woon bëggal ma boppam suñu maam yi ñoo doon ànd. Mhm. ci ñaari tali. Mm-hmm. suñu yaay macha allah aussi. Mm-hmm. donc. Mm-hmm. mu teel a dem rek la ñuy jooy ci moom. déjà. Uh-huh. maa ngi uh-huh. ñaan yàlla vraiment retrouver ko. amiin amiin saa ñu waxee waxu xarit rek. Uh-huh. sama xel ci kooku lay dem. ndeysaan. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup yàlla la nga gis famille am ak jaam ak salaam 88 628 14 14. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay ziar baax. ñu la siyaar bu baax a baax. Mhm. kii Ndoye Bane na nga def. ñu ngi sant bu baax sant bu baax a baax. waaw yaa ngi ci jàmm. jàmm rek alhamdulilah. alhamdulilah yéen daa mel seen tam bi man mii ngeen ci man ngeen di waxal. ah déet eh? waay. ma ne li may wax ni barki démb laa ko dund. ah déet eh? waay. ah wow oh, yàggul ya, dara. loo dund noonu. sama nekkaale boo xam ne. dañoo maag moom ñooy nekk. toujours dañuy nekk damay dem këram et tout moom it day ñëw ci kër gi. Mm-hmm. lépp ñoo koy seq mu mm-hmm. am benn rakkam bu jigéen bu nekk ci kër gi moom it ma jàppee ko comme rakk nii rek moom it ah su ma demee li may defal kay ma defal ko moom it mm-hmm. bu ma soxlaam ma defal ko ci démb daal mu amuñu sama numéro nag moom mu rocceeku dem ci téléphone mag bu jigéen bi jël sama numéro woo ma diis ma soxlaam ma fajal ko ko aleekun mu yem ci loolu ma ko defal de mhm. mu dem wëlbatiku dem ci mag bu jigéen bi ak ay mbokkam ne leen man dama ko doon doxaan mhm. te li ma suturaal mooy mhm. maa moom mosu ñoo am bu ñu wéete bu ñuy toog ñun ñett man ak magam ak moom bi mu waxee loolu mag ji weddi ko na ko loolu amul ñu topp ko ba ci biir après man ñu affaire yi yëguma ko moo woote dem ñu mag ji tàmbalee wax yu kenn xamul ma déplacé wu dem fa wax ak moom. Mhm. bi may dem di wax ak moom naka laay agsi rek xale bu jigéen bi moom it génn di dem nanguut a fekkee waxtaan bi. Mhm. mu doon affaire boo xam ne daf ma jaaxal ba nii. Mhm. nga xam ne kooku sama diggante moom. suñu mariage daanaka loolu moo ko naroon a yàq. suñu diggante ci projet mariage. rakkam ci boppam moo taxawoon pour yàq lool. mu doon affaire yoo xam ne boo koy xool comme ne xarit am na te man sama rakk laa ko jàppoon mhm. comme rakkab la maa ngi koy defal lu may defal ma nga war naa koo mën a defal mhm. mu doon affaire boo xam ne daf ma tuuse woon trop trop trop ba nii mhm. waaw beneen ci topp nag moom booy xool ne xarit am na boo koy xool ci sama côté yaay moom ndax sama yaay dafa feeb feebaroon waaw di maa ngi moom ñoo nekkoon ci kër gi ak sama yaay ñoom nijaay ak yooyu waaye doo gis ne kenn dana ci def te bi muy man ñoom ñëpp da leen daan defal. Mhm. xam nga kañ laa am lu man a xarindoo la. Mm. suur bi mu wàccee bi mu wàccee liggéey. Mhm. fekk booba ma génn ñu woo ma wax ma ko ma ñëw. Mhm. ñu koy génn ci kër gi. ñu ko wër di ko génn ñëpp ma saana jóge hôpital man ma di ko indi. Mm. amul kenn kuy taxaw jàppale ma ci. mu doon affaire boo xam ne. ba léegi nii su ma ko toppee su ma leen xoolee. damay yóbbe benn xeetu iñaan boo xam ne. du mën a ànd ak ñoom. te maa ngi ñoom ñoo nekk ci kër gi. ñu mhm. doon ay rakam amul kenn kenn. boo mhm. xam ne maam boo ma saan jóge hôpital ñu war ko indi teg. Mhm. amul ku daan nangoo yëkkati sa kii teg teg ci loxo wala leen. te bi mu xasee ba dem nag. maanaam <laughs> li ko war lépp ñoo ko def. affaire bi man damaa jaaxal. ñoo def bindi nag bindi tàggeeg lu nekk ñu def ko ci. <laughs> mu doon affaire boo xam ne ba fi nekk nii. su ma ko su ma leen xoolee nii sax dañuy am benn soxat bu may amale seen digganteeg ñoom. Mhm. parce que sax yow nii nuyoo laay seq ak ñoom ndax affaire mhm. moom moom laa mënut a supporter man ak ñoom. Mhm. waaw loolu moo moo tax ma ne xarit moom amul fenn. ah xarit de yombul de yombul de lu jafe la. moo tax mu de.

Mm-hmm. donc euh, comme li a wax noonu. Mm-hmm. affaire bi man kaawe ma dal daal. Mm-hmm. waaye fi koo xam ne dama ko jëloon def ko suma lépp. mais bi ma amee problème laa xam ne kii du nitu dara. walaay mu lu mu def nga ni. man amul lu ma ko defal jabar sax man maa ko ko may. waaw. mais bi ma amee problème laa xam ne kii du nitu dara. Mhm, mhm. wala di yàq sama der lu nekk mu wax ma ko. mais bi mu demee bi ñu demee ba xam ne ñu ma doon waxal yëpp dara du ci dëgg. Mhm. dara amu ci. mu bë mu bëgg a wëlbatikuwaat fi mu toll nii di dawaat sama ginnaaw. barki ak Quraanul Karim ak waxtu yàlla bii nii. lànkal de. musuma billaahi daf may sama yaay si dafay wax ba sonn. danaa ma bul di toroxal nit bul di def sama yaay ci boppam moom boo waxee mu ne la man aw ma xarit sama rak bi ma bi topp ci man. Hmm. mooy sama xarit moom la ah, moom laay àndal jeex na moo gën de. man mii di waxee daf ma dal. Hmm. daf dal euh, xawoon naa mën naa ne amoon naa dépression man nii. Hmm. parce que affaire bi daf ma touché woon jëlee ma kaw metti ma trop trop trop. waaw. moo tax may conseillé nit ne nit. léegi à chaque fois am ay devant léegi euh, ci ki nga xam ne moom nga naan xarit la. day am ay da ngay am ay devant yu bari. Mhm. parce que nit ki bu la am loo xam ne bu la ko xamalee rek. Mhm. ci nga boo amee problème ngay door a xam euh, nit ki. waaw. Mhm. ma dal mu métti ma. mu métti lool kay. waaye ça m'a fait trop m'a non mal même. li may waxee ni sax su ma koy xalaataat day mel ni sama ronx yi day génn. parce que affaire bi daf may touché. waaw amul lu ma ko yéenewul ci kaw àdduna. loo lu ma ko defalu ci kaw suuf. wala lazim jabar sax man maa ko ko may. Mhm. mu war la tu mi ngi noonu. Mhm. ndeysaan dootu moo tax man ni man mën naa ne benn xarit laa am en fait Sénégal gii nii amatuma fi xarit man. Mhm. benn xarit laa am te nekk fi. mi ngi France kooku lay dégganteel. kooku tey su ma amoon problème su ma nekkul lii la mun na ma amul benn problème nañ ko rek dem na ba man ak moom dañu associé. Euh, war a ubbi euh, suñu. Euh, su bopp seen business bopp. mi ngi noonu. c'est important parce que man kooku la am si moom confiance. jeex na mhm. sama yaay kooku la ma xamee jeex na. Mhm. moo gën de. jawta am mënoo ci am ñaar dégg nga nee na mënoo ci am ñaar. mënoo si am ñaar mënoo si am ñett. <laughs> am na si koo xam ne dañu associé woon billahi noonu la ma waree lekk sama xaalis lépp. Mhm. ndeysaan jaajëf man man en moo tax ñu naan man chaque jour sama xol moom may tooñ. nit ki à chaque fois da ngay demee ak euh, conscience daal man loolu lay conseillé bépp doomu aadama. ok. waaye muy am aussi devant. merci ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. merci seen bi neex na trop. merci merci la suñ tubaab taxawu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Faye Ndoye. merci beaucoup ñuy nuyu Muniru Muniru nekk fële ca bu Dakar euh, di nuyu Ndeye Fall di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi foofu di ziar bu baax a baax Muniru euh, ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum allo. maaleykum salaam. waaw kooku la. mi. man la Michel Saint-Louis. Michel ci Saint-Louis waaw sama xarit bi nga xam ne mosuma koo gis moom it. dégg nga di nga gis léegi incha allah. ci loo ne. maa ngi ci jàmm xaw a soj rek. waaw waaw da koy faj. suñu mm, mm, mm. <laughs> da koy faj soj. ak <laughs> monsieur Ndaw sax daan na ko faj waaye daa bàyyi waaye. <laughs> dëgg la Ndeye Bane nag bëgg naa wax dëgg yàlla moom. Mhm. yàlla xam na ni ñu bare damay yeew dañ naa ma dégg nañ la biig. Mhm. waaye gis nga aw ma sax habitude man. ñu mhm. wax ci rajo wala fu bëri nit. ñëpp ñi ma xam ñëpp xamee nan ma loolu. waaye gis nga am na loo xamante ni bi nga koy wax fekkee yow nit ku nitu dëgg nga da da nga ciy sawar participer. te dalay neex. te gis nga am na nit ñoo xam ne tamit neexuñu bëgg parce que xam nga lu tax. Mm-hmm. duñu client duñu fenkat. Mm-hmm. te duñu dëgg duñ ci ànd. Mm-hmm. léegi nag ñooñu duñu bëri soppe. toujours ñi leen di bëgg day fekk rek. dañuy xam ni kii nii li mu nekk dëgg la mooy comme sa genre bi. man nag du ma jay nit. parce xaw ma la. musuma la gis par téléphone la ni ñuy déggante. waaye na xarit am na moom. xarit moom am na man gis nga sama meilleur ami. Hmm. sama téyeer bi may ñawal la. Hmm. barke salaatul faatiha. Hmm. nit ku mel na dama koy def may ñawal di may ñawal ba may def cinquième di may ñawal ba ma dem ba nekk magum jëmm tey. léegi bu ma demee bu ma fa nee ñaata danaa ma bul waxati loolu man may xool xam ne lii lii moo ci jaar ma jox ko dem. waaye gis nga. kooku sama lépp dama koy waxtaanal. amagoo jëkkër. non non. ñu la ko jox benn yoon rek yàgg kooku. déedéet bugguma ko nag pour loolu moom yàlla xam nag. waaw ah, bi muy takk ñaareel li tax ngeen di lamb rek. <laughs> ah seen diggante dem na ba yegg foofu kay. dafa nekk sama xarit rek. bu muy takk ñaareel dafa ñëw wax ak man diw laa bëgg. mënoon na laa jël nag de bool boole ko ci liste bi ñuy mu nekk nit ku baax di ma yedd. misaal. di ma yedd di ma jàppale xam nga maa la doon expliquer affaire boobu ma ñëwoon pour naroon ko wut ci Dakar far yow. Hmm. ma ba ma la expliquer rek nga ni ma boo ko toppee ba ci biir de loolu du sotti. Mm-hmm. te yow xamoo woon sax waajooju mën a doon wax mm-hmm. te bi ma ko toppee ba ci biir tamit def tegtal yi moo mujjuwul sotti mm-hmm. moo ma jàppale instant bi boole maag nit mu may jàppale ba man instant bi sax aw ma dara de mais maa ngi sant yàlla mën naa fajal sama bopp sama soxla te duma ñaan kenn jërëjëf jërëjëf waaw am yow nag moom dama lay ñaanal wér ak gudd fan. amiin amiin amiin yàlla nu cat. may nu wér may nu gudd fan. may nu jàmm ak xéewal bu musal ni noon bu nuru soob. parce que nit dina nekk sa xarit jege la. teg mm-hmm. sa noon la. loolu moo gën a garaaw nag. moo gën a garaaw. te yàlla baax na merci beaucoup. ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax merci. 88 628 14 14. di nuyu ziar keneen nga xam ni. mooy sunu maire ba ca Touba xam naa mi ngi ci yoon wi ñëw xam naa ni moom su ñëwee rek yëngal fi moom moom moom sunu maire ba ca Touba di ziar salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, moom la waaw. man de maa ngi doog a woote sa émission. merci beaucoup. dama tëdd léegi ma déglu ko am lu ma yëg suma yaram. Mm-hmm. ma am lu ma la bëgg wax pour nga jàppale ma si. su mu nee ne. parce man euh, maa ngi tudd Thierno Ba. Mm-hmm. dama doon jàngee Dakar dëkkoon Liberté 5. Mm-hmm. bi ma fa nekkee nag. dama amoon euh, suma benn xarit. Mm-hmm. boo xam ne mu ngi dëkkoon Liberté waaw ma xarit boobu dañ ko tuddee sam papa. léegi nag euh, may dem seen kër chaque jour. ma fekkoon fa seen benn bon bu ñuy wax faatu Gueye. Fatou Gueye nag mu nekk dëkkoon Thiaroye mais xam nga la dëkkoon ci Thiaroye da Thiaroye la doon jéem koo di liggéey ci Liberté mhm. dafa nekkoon suma ndey nekk suma yaay nekk suma tante nekk suma lépp daal foofu. Mhm, mhm. àdduna dox na quatre vingt deux quatre vingt cinq la yàgg na. mais boobu ba léegi def naa tout pour mun ko gis wala mun ko dégg. pour ma gisanteeg moom. Fatou Gueye moomee. li nga xam ne ne Fatou Gueye. mu ngi dëkkoon Thiaroye di liggéey Liberté 6. Mhm. patron am dem la sant bëgguma joxe turam waaye patron am dem la sant. Mhm. waaw kii suma xarit bi nga xam ne ne suma papa li nga tuddee. Mhm. mu ngi tudd Amadou Deme. ñu ko gën xam ci Debe. waaw émission bi nag moo tax ma woote. mu daal ku ma si jàppale ma gis kooku. lan lan ndaw soosu dafa am lu mu la defal wala. lan daf ma doon daf ma doon toppatoo maanaam xam nga dama nekkoon xale di jàng. ñu ñu dénkaane ma. maa ngi suma xarit boobu nag nekk ñu dëkk ay dëkkandoo ñu bokk village. Mhm. yaa ngi dégg nag kooku bi xale bi kooku bi ma gisee nag daf ma jàpp comme lépp la ma doon defal. Mhm, lépp lu yaay defal doom defal na ma ko. te jànq la woon sa kër ga. waaw jànq la woon ca ga. Mhm. mais man su ma jokkoon Liberté 5 dimanche altine ma xëy dem jàngi laax bi ñu togg ñoom reer dimanche sax dama ciy dencal. su ma ñëwee su ma ñëwee ma ñëwee altine ma njogoon na loo ma reeree ko. amul lu ma defal ci àdduna. moo tax nga koy wër. moo ko ma koy wër pour lépp loo xam ne defal na ko ma. ma defal ko ban ban année la. année quatre vingt deux quatre vingt ba quatre vingt cinq quatre vingt six. maa moom moom moom jamono yooyu ban yaa ñaataat la waroon a am boobu. boobu daal xam naa ne sooy seet war na nekk dans les trente cinq ans yooyu demee na wala. trente ans kooku kooku kooku mag la léegi de. waaw mag la léegi. Mhm. mag la léegi. kon baax na parce que man mii man mii man mii wax ak yow tey jii nii maa ngi cinquante et kooku tey jii làkk na ah. quatre-vingt de kooku pour. waaw waaw kooku fi mu ne nii war na am quatre waaw war na am quatre mm. waaye nag yàlla waroon na ma ko war. amiin amiin yàlla na yàlla na yàlla na yàlla na moom. amiin amiin amiin xam nga am na kuy déglu émission bi ci côté Thiaroye xam ko. waaw su ma dimbale su ma dimbale ma d'accord incha allah. waaw loolu mooy kóllëre allo allo allo. allo kooku Ndoye. waaw kooku. <laughs> Ndoye danga def xanaa sa soppi bu la bëgg rek. jaa waaw jaajëf fooy wootee wàññil sa rajo bi. def naa lu ne pour jot la tey. xanaa alaaji bi daa tukki moo tax nga yokk rajo bi. waaw alaaji bi nekk fi nag. wax waaw moo tax nga rokk yokk rajo bi di déranger waa kër gi. waaw c'est que man rek maa tëdd waaw leen wax balaa sama crédit di jox damaa yàgg ci. waaw ñëwal ñëwal waaw. mbaa damaa yaakaar ne nit ñi nag ñoo wàcc seen i ànd rek. waaw. Ah. waaw ndaxte. Hmm. xarit war na may nit sax soxla nit. Mm-hmm. mais la waroon am su amee. Mm. xarit ba daf laa war a gunge waaye waru laa may jabar. waaw waaw. waaw sa yaay wala sa famille bu jege ci yow. Mm. wala yow sa bopp yaa war sa soxna ba xam ki nga bëgg kii kan la. Mm-hmm. sooy dem nag na ko nga gunge ma. Mm-hmm. lii dafa war a jóge ci Sénégal ndax amatul. amatul de. may sa jëkkër jabar. Mm. dafa war a denc ci Sénégal. may même may. Oh,

da nga branché casque. déedéet branché ma kay. sa wax ji sori na de yaa ngi mel ca mbedd ma. ah bi la rek. waaw mais émission bi xarit de. ah. xarit mm-hmm. man sama xarit bi nekkal allo. xarit ko natt ci am-am. Mbaye Gueye Youssou Ndour kon da ngeen bëgg wax ni politiciens yi duñu ay xarit. Hmm? eh bari wu ci da ay xarit deug lañ nak mais bari wu ci la wax. gis nga dama gi nga politiciens yi par exemple ay manko watto Sénégal ak ay benn benn benn. sigil Sénégal ak benn bokk yaakaar. Hmm. li nit ñi gis ci télé yi ñu yaakaar ni gaay ay ngi hmm. dañuy théâtre rek. dañuy théâtre ay best gaan lañu. ñooy café ñooy mayante ay jabar. Hmm. ay vrai cœurs gaañ lañu. ku yaakaar ne ay noonu lañ yaa ngi nax sa bopp. kon ñun la ñuy dofloo. lii ma la wax ni koy sooy. Hmm. waaw man moom su ma la waxee doo jeeñ demal demal yenn restaurant yi topp topp tefes gi. Hmm. wala restaurant yi 18 topp tefes gi rek di dugg di ngay dugg di génn rek di xool di xool di génn rek. ba keroog ngay yegg di ñi ngay gis ci débat yi ñuy xuloo. ñoom nga fekk ñuy toog ci benn table di naan café. waaw ay noon lañu ci kaw plateau rajo yeeg télé yi mais ay best gain lañu lu ñu gañe xolal ñoo koy séddoo mm-hmm. moo tax moo tax daal xam naa ne hmm. mën nañoo mën nañ mën nañoo waxante lu leen neex daal waaye xam naa daal man xarit gi fi muy feeñee ci levée de corps ak ngénte yi levée de corps daal dina ñëw taxaw non vraiment c'est un grand homme <laughs> c'était un grand homme mais mais mais tamit mais tamit ci ci ngénte yi dee naa leen ñooy ah. mayente ay jabar di mayente ay doom ah. di mayente xam na dofu ñu de ah. xam na ni ñoo bokk réew mi te xam na ni ñoom dañuy xeewi ji ñeneen ñëw mm-hmm. ñooy mayante mais ñaata politiciens la fi seen doom yi takkante te bokk ñu fa ci internet bi waaw mais xam nga xam nga mooy mooy li mooy li monsieur Ndao mooy li monsieur Ndao wax rek ne Macky Sall fi mu nekk nii mën da xam xaritam mm-hmm. na dellu ci àndi démbam. Mhm. daa mel ni moo tax mu dalal loxo Souleymane Ndéné Ndiaye xam Moussa Ndaw Ndaw Ndaw laa jëm foofu laa jëm <laughs> eh, tey jii par exemple Souleymane Ndéné Ndiaye ma nga dem seeti Macky nit ñi di ko ŋaañ. mais man man ŋaañu ma ko de. mais est-ce que du waxam moo tax ñu ŋaañu ko. peut-être waxam la. voilà waaw peut-être. c'est que su waxul woon. voilà kenn du ko parce que man lu ma yàgg yaakaar la man. voilà peut man. voilà dès le lu ma yàggoon yaakaar la. Mhm. parce que avant. élection premier tour sax même bi maki si benen camp di demal bopam ñi ngi doon déggante ñoom ñaar waaw ñëpp xam nañ ne ay xarit lañu mhm. loolu ñëpp xam nañ ko mhm. voilà kon su maki ñëwee au pouvoir génn nga parti ba nga newoon mhm. créé nga sa parti gis nañ ne ba tey peut-être yéen a ngi neexoo yéen ñaar xam nga journaliste toujours day creuser information laaj na la laaj la ñi lii di la ngay dégg information yi fu ne mhm. nga ne du ma mës a trans du ma mës a fekki Macky Sall du ma mës a mhm. du ma mës a jël sama parti cinq ah, ci parti non transhumé wu maa ngi ñëw partem la yor de maa ngi ñëw mais yëpp ay forme kii la rek xoolal xam nga xoolal mais est que ni mu ko waxee tamit xam nga nit ku nekk intérieurement yow yaa gën a xam sa bopp xam nga Seydina Aboubacar waa ji dafa ñëw di ko tagg fi mu sëgg mu ne yàlla kii di ma tagg di wax ci man lu baax mi ngi mel ni ñu doo wax ci ndoy baan léegi mu ne yàlla kii di wax yow yàlla wóor na la ne maa ko gën a xam sama bopp li muy wax ma maa ko gën a xam te man mii tamit leer na ma ne yaa ma gën sama yaa ma gën a xam sama bopp kon lii ma koy jox joxuma ko pour puukare léegi moo tax toujours man kiy wax mhm. du ma du ma nangu ne maa ko gën a xam boppam wala man maa ko gën a bëgg boppam wala maa ko gën a bëgg réew mi. Mhm. dama koy nangul position moom. mais nag dinaa ko sujet ci la mu waxoon moom bu njëkk. moo loolu rek a waral coow li. man daal fii ma xam su waxul woon nga lan la. du am coow xam nga lan la xam nga ñu dem ci monsieur Ndaw fii nii dëkk bi nañ bàyyi kon <laughs> nañ bàyyi nit ñi ku ne di far fu ko neex. waaw mais tamit nit ñi ak seen liberté. waaw mais tamit waa ji waa ji waa ji woote woon sànq dinañ ci kii tuuti mooy waa ji woote woon sànq doon wax ne xarit bi ah. daf ko daf ko décevoir ak jabaram. waaw jaral ko muy naan sàngara am na xale bu ndaw boo xam ne mm. takk na jabar yàggul dara mm. jabar ji teg ko déception bu mag mm. mais dafa taxaw seen digg kër woon ko ne dinaa la bàyyi te dinaa takk keneen te ko xale bu ndaw la bàyyi ko takk keneen ci koñ bi may ko xaalis bu bari ah, waaw jël ko mu sëyi tabax këram këram pare mu tuxu ca kër ga mm-hmm. fi ne xale bi di daw xale bi di daw di ko topp ba tey jii ci mujj muy wut fu mu jaar pour mën a waxaat ak xale bu góor bi. mun mu ne mu xale bu jigéen bi dafa dem ci xaritu euh, xale bu góor bi ne ko foogoon naa ne sa xarit bi dina dof mais kii bàndi la. lu tax muy dof. ndax li ma ko teg foogoon naan dina dof. jigéen ñi dañoo ñemee dof loo kenn. te koo xale bu ndaw la. dof jigéen ñi ni fi xuus nga ngay dof ndax jigéen. <laughs> kon moom il faut moom. na am courage xam ne mami ñi dañoo. existé wul moom existence am ah. dund loolu. ñi ko fekkewul dunduñu ko. Mhm. ki judduwul dund ko. Mhm. existence moo waral loolu. Mhm. ok kon nag moom na am courage boppam xam ne nit la. monsieur Ndao. Euh, ñi ngi sant di gërëm auditeurs yi nga xam ne dugg nañu. sa xarit def la loo metti est-ce que jar na. Mm-hmm. waaw ngay def naka sudul noonu. waaw soo xoolee auditeurs yi eh, dañu indi ñoom ñëpp ci même lancé la waxee. kenn ku ci ne tey émission bi daf ko permettre mu génne li ci xolam. Mm-hmm. wax ko mm-hmm. ci lu leer te nëbbu ci dara. leeral ko ba mu leer naññi. malgré que dañu déggee sax ci bañ a wax seen tur. mais wax ji la ñu a soxla. que tur te wax ji dafa leer dafa fekk émission bi. donc kon la quintessence de l' émission tey am nañu ko. Euh, ñoom ñëpp nag li ñu wax am na solo. waaye kooku dañ koy gindiwaat. mu nul n'est capable de fuir son destin mhm. dans la vie mhm. et que nit da ngay gëm sa destin mhm. gis nga yàlla su waxee da nga war a jaar fenn allah kulli halin di nga fa jaar waaye nag yow nee na ay mbokkam dañ na ko woon dañ ko lancé woon défi na xool mbokkam yooyu na rus mbokkam yooyu siggiwaat jugaat ngir jëm ci lu baax ki doomu aadama tax ngay def lu dul yoon ah xoolal sa bopp ndax doomu aadama indiwu la ci àdduna ki la indi ci àdduna dafa am mission boo leen séq yéen ñaar mission boobu bis boo ko yàqee ngir nit rek soo yeggee di nga ko layoo da nga takk soxna nit a waxtaan ba nga mën ko jël nit kooku noonu bés dina ñëw ñu jëndal ko juróom-ñaari mètre percal suñu borom subhanahu wa taala moo waxoon ne di nga ko takk mu bokk ci sa dund mhm. donc jabar jooju yow da nga waroon bokk ci ay jëkkëram bokk nga ci. jaar jaar ba na ko suñu borom defee ba mu amee. noonu la defaatee aussi ba nga xam ne nit jaar na fa yàq ko. waru leen am sax doom. te gis nga yàlla ni muy def. fexe na ba amoo ca doom. ndax suñu borom rek moo mën a fexe. waaye xoolal la mu fexe. ndax dafa newul sa soxna. waaye falee nga jaar fa. waaw waaye mu mu def de tout. ba amoo ca leer amoo ca doom. kon loolu ndimbal la ci yow. waaye nag su fekkee ne da nga bëgg ñàkk imaan. ba tax ngay dem di naan sàngara. te waru di def lu bon te waru la ndax lan ndax jigéen da laa wor. te moom kat ma nga cëpp sëyam di sëy. yàlla li mu war a daaneel da ngay góorgóorlu lu ne. Mhm. am na durée de vie. wallaahi da ngay góorgóorlu nga jéem a ut keneen comme ni ko gaa yi waxee mhm. euh, keneen koo xam ne nii euh, suñ borom yàlla na la boole ak moom. Mhm. jubóole leen. Euh, su ko defee nga dund loo xam ne mosoo ko dund ki sëy bële ba fàttale fàttalale. donc loolu dafa am solo da ngeen wax léegi ci li jëm ci. employeur employé mm-hmm. relation bañ wara am ba xarit duggu ca mm-hmm. xam nga do koy wax léegi bu tuddu ay patron mm-hmm. mu do lu am solo employé ñi ngi gal-gal employé mais amna employé yu gal-gal employeur yi te loolu nak du sak gis nga sa njit sa patron moy sa image yow da ngay tok sa sa jabar defal la ceeb bu mais nak bokut ak bi bondé nga nek ca di lek <laughs> sa patron génn wax musiba. Uh-huh. musiba mu wax. Uh-huh. concerne la yow. concerne la waaw. fa nga toog. Uh-huh. wala mu génn wax wax mbégte. mbégte ba fekk la fa nga toog. ça veut dire quoi ça veut dire que yow sa bopp. sa devoir la. nga protéger sa patron. ndax sagam mooy sa sag man de sama bos. jàppee ma ko patron. dama ko jàppee ko bokal bokkal ndey ak bàyyi. su ma ànd ak moom. duma duma jouer sax ay rôle employé employeur. damay jouer rôle garde du corps bis bu la yàlla jaayee ba nga daw jëm ci moom man ngay njëkk a mbëkk mhm. mayuma ko mbindeef mhm. su ma ànd ak moom mhm. damay jouer rôle garde du corps parce que image am sama bos oh. donc il faut que nit ñi am relation boobu noonu déjà dafa am solo mais li fi nit ñi wax tey mënuñu wax leneen loo xam ne ëpp na ko sama xarit daf ma may jabar dem ba ca biir jël ko maa ngi naan sàngara loolu dafa ñaaw lan moo jar loolu ci jabaru jàmbur bàyyi ko borom. Mhm. dafa am loo xam ne ni kenn mënul xam. Mhm. naka lañ koy tuddee ci àdduna. Mhm. man xawma nit ñi dañu dem ba mujj gi ñuy def ay dundu mala. ndax raison. raison bi la yàlla jox. moo la utale ak mala. bis boo demee bay dund dund mala nag. li sëñ tuwaa waxoon day ñëw rek. nee na mag mu jàng. ba jeexali téere te jëfewu ko. mag mbaam mu sëfi téere yam. xam nga mbaam su yoree téere xamu ci dara su ko neexee wangatu sax mu daanu. donc nit ki lepp lo xam suñu borom dafa ko dal mi borom xel da nga wara nuro da nga wara doxé da nga wara waxé mm-hmm. ñu def lu rafet mm-hmm. te xamné aduna lu ñaaw xaju fi mm-hmm. lu ñaaw xaju fi kenn ku ci ne am nga bëss buñ la dimbali nga ñew ci aduna ñu mur la na bébé bango di nga bëssit ñu waat la murat la jébal la sa borom nañ ci bayyi xel ñun ñëpp te lu ci ku ci la ku la la raxasu wallahi wallahi mais mais ndaw dafa am ben ki benn question bu ma la bëgg poser. Mhm. man damay insister toujours si ne xarit dafa am. Mhm. dëggantaan te njaay. Mhm. Euh, xaw ma nan lañ koy waxee. loolu moom kenn du ko weddi am na. xoola Moussa Ndaw ñi fi wax sànq yëpp noonu. ñi fi wax ñëpp nii ndeysaanam. dañoo amul xarit. ñoom dañu jàppoon kooku xarit. mais du xarit. ñooñu seen àndandoo la ñu woon. seeni noonu la woon. Euh, monsieur Ndao may may laaj yow soo leen nekkee xale ngeen nekk groupe. Mm. yéen ngeen nekk groupe nekk ñu bari. Mm. ngeen di di tama di tamandoo di aayandoo oh. di def yëpp ngeen di dem euh, euh, groupe bi di wàññeeku di wàññeeku yenn saay boo leen defee tirage tirage takkoo xarit yooyu ñu daan def taa mm. xale yéen ñaar yàlla dogal seen bul di génn toujours lam bi muy teg ak yow jaaxu bi ngay teg toujours mooy ànd ngeen nekk xarit buñ demee bés bañ am sax après ñu doon ñu doon ja mhm. naan lii com <laughs> dañ ko complot yoon xam nga léegi ngeen di dem di dem ba ñi warul mën a ànd parce que ñi mën a ànd rek ñooy ànd mhm. ñi mënul ànd ñëpp jeex groupe ba des ñaar yéen ñaar ñooñu ba léegi ba tey jii nii ba ngeen sëy ku ci nekk témoin nekkoon sa témoin moom te liñ naan xarit mënul nekk ñett mhm. man nit boobu dama koy bañ man bu ma bu ma neexee ma bañ ko parce que gis naa loolu. Mhm. gis naa ñetti xarit. Mhm. ngeen nekk ñett. Mhm. ngeen dem ba am jàpp ba am jëkkër. Hmm? Euh, euh, euh, kii kii continuer di sëy di sëy. kii continuer kii divorce yàlla def mu divorce. kii def jëkkëram gaañu. mais ba tey naqaru kenn moo ciy naqaru moromam ngeen noonu noonu noonu. yow kii sëñ bi est-ce que ñooñu noonu duñu ay xarit. est ce que ñooñu duñu ay xarit xam nga ni ñooñu sëñ bi mhm. duñu duñu defante ni mhm. ca ba pare mhm. eh, gis nga ndate ak xanju seen jamono la woon mais ndate ak xanju du lépp nak lañu mëna wax wallahi mais ndate ak xanju ba légui tam amna, mais xëj na ci benen façon tam parce que bobu mom mm, ragal naa ni nit mënu ko fi mu nekk ni mais nit dina nekkal nit Mm-hmm. ndatem mm-hmm. wala mu nekkal nit xanjom ci benen sens té mm-hmm. té li tax mu nekk tamit xarit dëggantaan aduna du neex waxtan bi ni du neex neex neex ba yow nga netali ni xarit am kay parce que sama xarit man defalot nako li lii gis nga loolu ngeen sekk non <laughs> ba ngeen ca nit du ko xam mais monsieur Ndaw du xarit si xam nga soo xoolee mami loolu li ñu ciy wax du bari lu gàtt lay doon tey la quintessence du débat mooy la majorité. Mhm. suñu indi amitié rek. Mhm. am na wala amul rek. Mhm. dañuy xool la cay majorité. ñu teg ko waaye exception day am ci lépp ci àdduna. exception. dafa xam nga bi ñuy commencé léegi nee naa la xoolal ci papa yi Mbaye Guèye Faye. ak kan. ak Doudou Ndiaye Coumba nekk xarit di ànd di ànd di ànd ba kenn ki faatu rawul moromam. loolu nekkul exception. na Seydina yon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nekkul exception. am na yeneen exception yoo xam ne ñun ñu toog fii tey xamuñu ko te ñu ngi ci kër yi kon li ngay wax ni exception la am na. am na ñoo xam ne lu la neex. neex leen. lu la naqari naqari leen. wallaay lazim su la police jëloon tey di la yóbbu dinañ daw pour police boo maanaam boole leen ca. dañ leen di puus ñu bañ a dugg. waaye daay ñoom danañ ca bëgg a bokk. te lu ñu man dinañ ko def ba nga génn foofu. léegi soo paree nga may ma ma continuer. donc donc pour pour vous dire ne. bàyyi la nga continuer. Mm. que xarit lu am la. Mm. lu am la. Mm. man ki may sëyal dañoo nekk juróomi at ma moom. Mm-hmm. dugg naa ci émission wax ko fii Ndoye ak sëñ Baar mi toog. Mm-hmm. ñu nekk université bii. Mhm. nga xam ne saa lafa ne dafa doy mhm. mu di ma muñal juróomi at gis lu ne demul sëy toog xaar ma. Mhm. ma di ko gàddu looy mbuus ak di ko jaayloo looy fu ne mu toog di ma xaar te ba ma rawoon ci ay classe ba ma saa borom féexalee as tuut ma ma demee di ko takk dana ma ñëwal mbaa ma ñëw. ma ko takkee nag lañ gëj a nekk xarit ndax fi ne kilifaam laa sangam laa mhm. waaye sama xarit la de mhm. ndax li ma muñal mun naa gëm ni sama xarit la kon li nga wax ne fa nga jaar ak sa ndaw soosu sa waa jooju nga xam ne ba ngeen di gone la di jëli la ma ka teg ak i buul ka teg wii génn ngeen di ànd ba nit ñi xaw ci am jalousie sax mhm. ndax seen ànd ni mu neexee woon tey jii ngeen xam ne kenn ku ne amul sax droit ngaa ko. Mhm. ah non loolu xarit la ànd nañ ci. ànd nañ ci waaw waaw mhm. mais nag war gi moo ëpp. kaa mhm. yu mel noonu war gi moo ëpp. non Moussa Ndao gis nga li may am xarit nii. nee naa la dërëm ak dërëm a mën a ànd. pourtant li ma gën a métti tam sama àdduna. li nga xam ne duma ko nettali. xarit moo ma ko def. ci nga teg xarit. ki ma teg xarit waa xarit mooy lii <laughs> ah. keneen ki ma teg xarit li ma gën a metti sama àdduna moom moom léegi ngeen baal ma si waa jooju noonu gelam kii jabaram sëy ak beneen hmm. jabar bi tax moom muy naan sàngara hmm. ngeen baal ma tuuti ma wax ak moom tuuti sëñ bi hmm. xam naa ne yaa ngi ñuy déglu man en tant que jigéen maay wax ak yow nekk jigéen nekk xale dund loo xamante ni sëñ bi su ma la ko waxoon tey kenn du ko gëm mais ma am courage am gëm yàlla goo xamante ni ku ma gis day foog ne amuma problème suma am lu ma metti ma lay ñaan nag ndegam man mii jigéen maa mën a dëgëree noonu mën a gëmee yàlla noonu gëmee ko yàlla mm-hmm. lii destin la rek lii ñëw mooy dàq gis nga jigéen ju bo jigéen ñu bon ñi nit ñu bon ñi li ñuy bari bari ci dëkk bi. Mm-hmm. ñu baax ñi pourtant ñoo leen gën. Mm-hmm. ñu ba ñu baax ñi ñoo leen ëpp fuuf. Mm-hmm. dangay ngay gëm sa borom loo gis ci àdduna nattu la te yàlla nag ñi dëgër. la àndal. yàlla da nga koy gëm mais ba pare óolu ko. bàyyi ko ak sa bopp lii lu waroon a am la. sëñ bi maa ngi lay xamal ni la li nga dund noonu lu tuuti la. ci li nit ñi di dund. tuuti ci man mii li ma dund mm-hmm. te doomu aadama xamu ko mm-hmm. kon ma ñaan ñooñu jaruñu ko suñ mhm. ko jaroon sax waaw dëgg la mais jaruñu ko mhm. ñooñu jaruñu nga nara yàq sa àdduna mhm. ba pare dem am sa daanu borom bu ko nangu di nga am gëmal sa bopp nga gëm yàlla di nga am ku baax ku lay fàttaloo sa naqar koo xamante ne da nga naan ndekete jigéen ci mel nii amoon na gëmal sa bopp nga gëm yàlla insha allah rabbi lépp dina baax binta waaw sa ndaw saa ngi jooy de ma ngi jooy kay ndeysaan ne lay motive may dolli kooku rek ni ko kooku yàlla jëlee ci ci loxoom. Mhm. dafa gën. Mhm. na gëm yàlla. Mhm. te jógaat. góor la na taxaw. dëgër war kii dëggal boppam. yàlla dina ko jox ku gën koo. te bu loolu amee sax ci lay comprendre li tax mu ñàkk lee xam nga des nga ñàkk loo xam ne danga naan. ndeysaan day metti parce que nit rek lañu fekk mooy li gën ci yow. na gëm rek te gën a jàppaat. may wax tamit ci amitié a trois bi muy wax peut-être trois et à quatre lu possible la. parce man. day damay jël exemple ci man. groupe bi euh, groupe bi ñuy formé ñun. Hmm. on est on est cinq. Hmm. seen WhatsApp. non non non du WhatsApp. kii c'est la vie de tous les jours. ki ma lay wax ni mooy sama meilleur ami. Euh. ñuy ànd depuis sixième. Hmm. yàlla dem na def na ba bi ma demee ba BFM. ñu séparé wu. man ma dem Tiwaawan moom mu continuer lii lycée Lamine Gueye. yàlla boole ko keneen. yàlla def ñuy ànd ba dem France nekk faak moom ak yooyu ba ñu ñibbisi. mais kooku noonu xaritam boobu léegi. bokk na ci sama xarit ci sama xarit yi. Mm-hmm. man it dem naa ba am sama dëkkandoo boo xam ne nekk na sama xarit. ak mm-hmm. sama keneen koo xam sama coiffeuse la. Mm-hmm. léegi ñun ñëpp nii ñooy ànd ànd bu rafet. ànd bu sincère boo xamante ne du am jaayante. amagu ko. non non du ko am. du ko am xam nga lu tax. parce que dañ ko teg ci ci dëgg. la may wax toujours rek sincérité ba. gis nga fi ne ñun ñii bu ma bu ma buñ toogoon ni daje nii ma def euh, faute. Hmm. xoolal dañ ma koy wax. Hmm. bi net du de nii la lii nga def du nii du nii noonu lañ koy doxalee ñu it. Hmm. ñoom it bëgguñu lu ma metti man noonu. muy ànd bu sincère bu dëggu. te loolu rek mooy àddina man daal noonu laa ko gisee. affaire xarit ak affaire yooyu xam nga lan moo am solo. muy la vie de tous les jours nañu nekk ci jàmm ñun ñëpp yéenante jàmm. lu waaye am nga yéene ko ko alo allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi na nga def. maa ngi sant bu baax. Mhm. alhamdulilah. Eh, man man man la nijaayu nijaayu Ndoye Bane ne ko maa ngi koy nuyu di rafetlu seen thème tey bi. sama nijaay ci Amérique. <laughs> waaw waaw maa maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Hmm, mbooj mbooj mbooj mbooj mbooj. waaw. waaw. xam na ci seen thème mu tey dem bi dafa c'est très intéressant mais gis nga mm. am na yoo xam ne man pour man xëy na da koy da ngay defe ne xarit la fekk du xarit quoi. Mm-hmm. man am na sama benn xarit boo xam ne presque ci naan yàlla moom moo wax ba ma ñëw fii. dañu mm-hmm. ànd dañu nekkee six ans ba léegi ñooy ànd. mais avant avant avant ñuy ñëw fii sax suñu xaritaw. xaritu waxante dëgg la parce que du nit yi mënuñu mënoon nekk xarit ñenn ñi gis nga léeg-léeg dañuy jàppante jàppante jàppante ba mu tàng jër. Hmm. waaw. mais nag ku si nekk da ngay bu bu bu waxtawee da ngay wax ne kii wax na ma dëgg. Hmm. mais duñu si toogoo duñu si wax dara mais léeg-léeg ñu jàppante hmm. jàppante yu métti sax. saf saf waaw bu ko dara ma ne ko du fi amee. ci loo xam ne ci ay problème mu famille ma ne ko loolu du fi amee. mais du segg sama wax man it laa du def dara mu ne ma loolu du fi amee. Mhm. mais affaire euh, waxuma la dara mais ay xaalis. xaalis mhm. sax duñ ay affaire sax jéem a naan euh, sax dafa dul nekk suñu diggante du ma soxlaa rek dama koy wane ko soxla naa nangam. Mhm. mu ne ma dugal naa ko sa compte. na nekk million mën na nekkulu ko ëpp mën na nekk kii. Mhm. suñu diggante amul amul benn ba amul benn barrage maag moom. Mhm. lu muy def daf ma koy wax bu ma ci d'accord muy noonu bu ma ci d'accord ñu jàppante ba mu tàng. Mhm. mais nag bu fekk li ma wax. moom it la même chose loolu mooy xarit. nit ay bu ñuy ànd dañuy ànd ngir yàlla di waxante dëgg. mais bu dee ne da ànd ku nekk naan bëgguma ko wax lii pour bu bala moo mer rek. am na am ci def. Mm-hmm. donc te yàlla xam ne sa sa sa nijaay yàlla na ko yàlla yërëm du ma ko fàtte mu. ba ba may ba ma koy fekki. Mm-hmm. maag moom dañu daan joxante dañu daan jëflante loo xam ne du am bindu këyit du am dara. Mm-hmm. dëgg la du am bindu këyit te ay xaalis bu bari la doon te du du ñu bindante këyit du ñu demante dara. waaw li li ci des nag dégg naa benn waay buy wax ne xaritam daf ko jox xaalis. mais jigéen bi ji ku jigéen ki kooku mënul xaritam bi mënu ko contrôler mën mhm. na loo xam ne boo koy def sa sa boo koy def mënoo ko nëbb sa jabar mhm. bu ko sa jabar yégee nag wax ko ku mu ko warul wax kooku warul yàq digganteem ak xaritam mhm. loolu bu dee loolu rek mooy problème bi na waxtaan ak xaritam wax ko li ko naqari ku mais nag bu dee xaritam dëgg la waru ko jàppe loolu loolu daal man ci kooku daal loolu laa koy conseillé te nit ñi ñu xam ne bu bu dul ne du nit ki def na lu loolu naqari nga ne xarit amut am na ay xarit xarit am na ba léegi. Mm-hmm. xarit dafa am ba léegi. Mm-hmm. am na nag ñoo xam ne da leen di jàpp da nga leen di jàpp xarit rek duñ koy xarit say àndandoo rek ñu. effectivement man loolu lañ waroon muy contribution ci loolu. merci beaucoup mon oncle. jërëjëf ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax suñu jëlee benn auditeur daal di ñëw tuuti ci reportage daal di delluwaat wala ñu ñëw léegi ci. Eh, reportage bi dogo dogo dogo dogo nu mu tudati dogo dogo dogo dogo dogo ubbi waat telephone bi ñu déglu reportage. man dam na xarit sama xarit sama doomu ndey 81 ba léegi ñu ngi boy la xam nga lan mooy xarit. amul nebo amul réeroo gisante chaque jour loolu du xarit man ngeena tok toog ak gisante wu len waye ini len gisee bo len toogee waxtaan rek nga xamni li moy xarit nit ñi na dañuy jaawale xarit ak àndandoo ki ngay andal bes bu nekk du sa xarit sa xarit deug dalay sori ngeen di gëj gisante di gëj déggante mu nekk sa xarit waye ki nga chaque jour sa xarit day jéem a xam ci yow dara ki ngay àndal ci bi ngay gone boo leen àndee ci ngor ak dëgg moo koy lal te lii xarit kenn il faut kenn tane moromam jalousie la parce que ummi solo na ba jekk man bëgg na gis naa chevam dinaa xam ne mu amee ko jege dinaa ko def lii lii ak lii pour xam dara fi jaar ba am lii pour jege la pour xam fi ngay jaar ba am lii dong la xam nga kooku sa xarit intérêt ko dugal ci moom loolu da xarit àndu xale yi dama yàlla boorante la daal parce que yow da ngay ànd ak sax xarit ba noppi di ko wax ci biir na kii sama xarit di ko wax ci biir te boo ko wanee ginnaaw moo ci yow lu ñaaw te boo ci xam leen day dugg ba sa biir famille di la jaxase biir famille te yow doo ci xam dara bu say famille amul xel xalaatee la foo xam ne eggoo fa fekk na loolu du sa dëgg mi ngi yàq ndaxte mën nga am la naqari sa biir famille tuuti ñëw wax ak sa xarit lii ak lii mu defal la mais boo amee sa xarit ñëw wax ko sa problème sa biir famille mu la dangaa ñàkk fay da kooku du xarit xarit da ngay am problème sa biir famille mun la mu ne lii du dara man dund naa lii sax waaye muñ naa ko lii ak lii loolu mooy xarit ndax man suma amé luma lu sama sey ñew na la li moy sama problème sama sey nga dama da nga ñak fay dama bala dama né nee muñal nak li du dara sa jëkkër li ak li da nga wara mu ngay sey ma xamni ki moy xarit mais nag ni ngeen xamé won ko lool dan na la nga ñak fay nga def li nga ni wa ki moy sama xarit fek da la yaqal man duma xarit tok ma ñëw wax la sama problème nga ma nga ñak fay da ma relante xamni yow mi do xarit do xarit toujours bu jot ma problème do ma encourager dima jox deug danga may jox toor pour di ma wàcc waaye boo ma joxee dëgg rek ma xam ne doo xarit ay ma ci xam bari na lool ndax boo nekkee xale ne jànq di nga am say xarit dinga am it say àndandoo waaw ngay telli telli di ànd ak say xarit waaye boo màggee di looy gën di màgg rek ñuy gën di wàññeeku ngay gën a xam sa xarit kii sa xarit ak ki dul sa xarit man nak jamono ñi ñu toll nii man gëm naa ne man awma xarit xarit moom aw ko am naa nag sœur boo xam ni dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay su ma amee lu ma metti wala ma am lu ma neex ñu ñaan ñoo koy partagé amoon naa xarit nag boo xam ne tamit dama daan partagé ak moom di waxtaan ak moom bu ma amee lu ma metti moo xam suma ma luma lu ma neex moo ko xam ma def dina ñëw ni ko lii def wala laa def waaye tamit awma ca lu ma neex ndekete lépp lu may wax ak moom ma koy waxee feneen lépp lu ma xam wax ko ma koy sennal feneen ma ngay toog ak yeneen nit lu ñuy waxtaan mu wax leen ko te bu doon loo xam wax ko bi toj ndax xamal naa ko loo xam ne su ma ko waxee mu ëpp waaye kon nga xam ne xarit amatul bàmmeelu biir amatul waaye xarit amatul ndax comme nit fatim wax mën ngaa am xarit nga rey nit ñëw ne ko rey naa nit ngeen ànd ca rëy wala nga am sa problème bu rëy nga jooy mu jooy la la waaye léegi da am sa problème ñëw toog ak nit ñi wax leen ko sax ñu piical ba jooy jooy la la tuuti boo demee ñu ne moo xool ko

ba mook sama yaay rawante wuñ ay fan kon ñoo ñaar ñooñu laa gëm seen xaritoo waaye xaritu tay tay yii ñun suñu jamono bi ñu toll nii xarit man de gisuma ko koo waxal tey sa wax sa waxan ca mbedd ma waaw yokk ci say wax yow nga xëy dégg sa problème ca mbedd ma wala ñu nga am yow sa xarit war naa ñëw sax gisal la lu bon xoolaat ne la kat man de suma sañoon nga defee nii wala nga waxee nii waaye yàkkamti ya, nañ nga def dara ba ñu génn weer la te kooku nee na mooy sa xarit xarit du weer morooma yow sa xarit war naa mën a ah, nga am dara moom mu soxla ko yow nga ñàkk ko ndax sa xarit xarit dina gën doom bay nag man xarit ba ma am man mooy sama sama rakk waaw kooku moom suma amé luma metti dinañ ci and joyo ca waxtan ca ba dee ba dag momit la même chose waaw teju suñu nek wax lu kenn dul yëg wax lu dul sen fen man wóor na ma ne kooku ko wax dina ak mom ci biiram waye légui xarito da ngay gis ñaan ñu bokk na bay sax di wérante té ñaan ñu bokk nay bay war nañoo mëna xarito xarit dafa sori hmm. xarit dafa xoot mais fim toll nit ñe amatul bàmmeelu biir duñu wann te nit dangaa war loo waxanteeg sa moroom nga wann waaw kon nag xaritoo dafa xóot man xarit man man moom aw ma ko gisatuma ko amoon naa nag juróom-ñetti xat waaye furaas daldi xiddeem boo daal boo boo amoon naa ay xarit moom juróom-ñett xaw ma juróom-ñeent waaw ñoo daan ànd ñoo daan përëx përëxi ñoo daan dem fi waaye ba mu mettee ñëpp a daw ñëpp a daw gisatuma kenn tey tey kenn kenn gisatuma ko ci du ci kenn bu ma sama problème tay ba woo leen barki sayidina muhammad duñ ma ko fajal dañu xanaa kay téléphonante ah moom de woo na ma ah waa moom nag nekk na ci situation kat xool situation morom daa war situation moromam pour man man xarit yi ma gis dañuy tas kër ndoy man am naa xarit am naa xarit boo xam ne depuis ñu am 17 ans depuis ñu am 17 ans man ak moom ba léegi ñooy ànd mais sama xarit boobu tax ma téye ko parce que dafa baax nit ku gore la ndax jamono ñu toll nii balaa ngay xam ne nit moo baax ngeen si xaalis ci ngay doog a xam ndax baax na wala baaxul mais gis nga kooku dañuy bokk natt man ak moom ma tekki natt bi lekk xaalis bi gis nga jikkoom dara du changé ci ni ñu menoon man ak moom te loolu koo ko def il faut nga gis jikkoom mais kooku boobu ba léegi loolu yàqul sama digganteeg moom lu am man ak moom ñoo ko bokk lu mu am rek man ak moom ñoo ko bokk lépp loo xam ne soxla naa ko suba ba jant soo bu ko amee dafa ma koy jox te amu ci benn arrière pensée bañ na ko bu nit bu nit xuloog man sax mu xuloog moom képp ku mu xam ne kii sama noon la sax daf lay bàyyi. kooku laa xam ne bi su ma deewoon tey bàyyi ko ak samay doom dinaa tàlli kooku moom sama vrai xarit la kooku moom mun naa jàpp ne sama xarit la moom su ma dégg nit ñi naan xarit amul man loolu gëw ma ko xarit am na benn xarit boobu laa am bu ko ñi ci des nag ñoom da ay ànd pour man ay àndandoo du ñu xarit parce que bis bu nekk ñu war la léeg-léeg nga dem toog wax ak nit loo xam ne yow kese yaa ko wax ak moom nga xëy wax bi di dem di dem ba nga xëy déggaat ko xam nga loolu du parce que nit ki su fekkee da ngeen ne ay xarit ngeen lépp lu ngeen wax day yem si yéen ñaar et ku nekk dangay nga yéene sa morom jàmm mais dangay ngay gis ne toujours dañ lay def ay coups bas duñ lay yéene jàmm sa noon boo xam ne dafa bëgg a jot ci yow sax si ñoom lay jaar pour ñëw ci yow yow da ngay dem ba xam loolu nga xam ne ñii duñu say xarit say àndandoo la moo tax man sama àddina yëpp benn xarit laa am te maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm. moom su déggee li na xam boppam dafay xarit jamono bii nu toll nii période nii nu toll xarit moom amatu ah man boo ah man de wax dëgg yàlla li ma gis xarit moom amatu man naa laa jël nga ne sama xarit nga ma bëgg la lool dugal la ci sama biir xol bi mooy lu sincère ci man te fekk yow ndekete yow dangaa ñëw rien que pour rek wut loo xam ci man su ma jaaxlee ba dikk ci yow wax ak yow bu ma génnee nga jël sa téléphone woo diw ñëw na fi kat nee na ma nàngam ak nàngam ak nàngam man daal binta li ma gis ci jamono bii léegi man daal xarit moom gisatuma ko moom xarit am na nag gaa am na nag ñu am am na am na man am naa man moom am naa koo xam ne nii sax du sama xarit sama rakk la bu ma àndoon nag moom rey nit it xanaa man maa koy wax waaye moom du ko wax nit ku am bàmmeelu biir nit ku am sutura am naa ko man kenn kooku képp nag la donc waaye keneen ah xanaa maslaay àddina yi waaye wax la sama vie privée xam nga xarit dafa jafe xarit du nii rek tëb rek ah man de bu damay sama xarit la nii rek déedéet xarit dafa jafe xarit day loo xam ne dafa war a nekk lu sincère lu dëggu loo xam ne yow li ci sa biir xol bii nga dëxañ ko ci sa biir xol bii kii mu leer nañ la boo ko waxeek moom kenn du ko kenn du ko dégg looy seen ñaar yéen ñaar seen diggante rek la yem loolu mooy xarit ak xarit bi nga xam ne boo jooyee mu jooy am na ñoo xam ne nag dan naan sa xarit la nga jooy nu bëccali bët te fekk yeggul ci ñoom xarit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la ma la amoon bu njëkk amatul la ma gisoon bu njëkk man gisatuma ko léegi wax dëgg yàlla man nag man man moom man dama cee dund dundati ci moom moo tax man dama wóolootul kenn kenn dong laa am sama àddina muy sama rakk bokku nu ndey nag bokku nu bàyyi lu ma tëjoog moom ci biir néegam ñu wax ko te su déggee dara bu déggee ñuy wax ci man dara mu woo ma defal attention kat ah say mbokk lañu kat ah nangam ak nangam teeyal buñ la xamal lii buñ la xamal laa waaye ka nga xam ni danaa sama xaritoog yow te su jógee toog ak toog ak Binta Mbaye yàq ma ba ma yàqu bu ma amee samay problème dikk jooy wax ko Binta Mbaye bu ma génnee nu yor seenu téléphone kii ca la fu ne nu wax la fa fu ne nu nettali la fa xarit amatul Binta xarit yow woon bu njëkk ak léegi nii léegi jamono bi yàqu na loo ci gis moo taxit stress bari na nit ñi ku ne boo amee sa problème danga koy dutoo ko ñemee sex génne mm-hmm. génne bu njëkk danga nga daan gis nit koo xam ne sax day nekkat doom ji nga sax dangay dem ba dutoo ko wóolu ndax doom man ngaa wax ak moom seen problème mu rëcc boobu xaritam ay yow sama yaay lii ak lii kooko jàll wax ba nit li wax ba nittali wax ba xarit dafa jafe di Binta Mbaye du Binta Mbaye mii sama xarit la rek nii nii rek mooy xarit déedéet xarit dafa jafe xarit war nga boo amee sa problème mu am problème mhm. boo amee naqar mu am naqar soo amee bànneex mu am baan lu ngeen waxante yéen ñaar kenn du ko dégg kenn du ko bu ngeen àndoon rey nit it maasale leen ko suul ko fa yemale ko fa mu jeex tàkk waaye li ma gis nii léegi tey jii lëngoo yi nit ñi xewal nii li ma gis ci jamono bii man day cuun man xaw ma. soo toogee ci wetam mu ne la yow rek laa yow rek laa laa soo ko wanee gannaaw mu ne ci sa der bi man gëm naa ne xarit amatoo xarit da ngeen naan bokk ndey bokk baay bokk lépp lu la naqari naqari ko lu la neex neex ko waaye léegi amatul dafa jamono ji moo toj alalu àddina mariage d'intérêt yàq na réew mi léegi. na réew mi ba xam ne ku la ne sama xarit sama xarit gay boo ko seetee ca biir am na lu des. yow nga xarit. man am naa ku ma yaakaar na sama xarit la de ndax samay doom ñooy sama xarit doom yooyu jur sama biir yaakaar naa ne ñooy sama xarit ndax doom yi moom leer na ma ne yéene wuñ ma lu bon te lépp loo xam ne lii am nañ ko danañ ko bokk ak man su ma amee naqar ñu am su ma amee bànneex ñu am. Mm-hmm. doom yi ma jur ci sama biir laa wax de. ñu daal ñooy samay xarit man ak samay doomi ndey may doomi ndey def naa leen xarit ndax lu ma naqari ma gis leen sama wet mhm. waaw waaye bu dee jàmbur daal ana man ana yow ah man de yaakaar naa léegi daal xarit am ndoy baan xarit man dama ne amatul parce que xarit mooy ki ngay ànd ngeen tolloo génération tolloo maas kooku lañ mën a wax mooy sa xarit wante ci jamono ji ñu toll nii foofu noonu la xarit jafe parce que bu njëkkoon xëy na amoon na de waaye léegi ci jamono ji góor ñi ñoo leen jaxase man nag dama ne jalousie bi comme ni ko kii waxee rek jalousie bi surtout dafa dafa bari parce que bu fekkente ne xëy na yow dañoo tolloo génération man ma gën la xees wala peut-être yow nga ëppalee ma dara nga am sa copain copain bi moo ëbbati ko ci suuf bëgg la doxaat te bu pare da lay sosal parce que dafa sa xarit bi moo ma oo téléphone surtout nag léegi internet beeg whatsapp bi group bi xarit bi mooy sos ku góor ki moo leen di jaxase moo ko naan carrément man jiw ma nopp que man mii loolu man loolu bu sama dal sama benn xarit faram invité ko ñu war a génn def diine yëpp mu ñëw sama salon ma di ko defaral copain bi ñëw xam nga par la suite xale bu jigéen bi génn di wuy téléphone mu ne ma franchement bu ma la teeloon gis yow laay yóbbu ma ne ko bu ma ko waxati te yow ndekete baaxoo mu yaaka ne ma ko wax ndaw si mu ëlbatikuwaat ne ndaw si moytu du saxarit bi parce que yaa ngi génn may incarné mais yàlla dogal ne bi muy wax loolu am na ku fa nekkoon mu yaakaar ne kooku xamul dara mais kooku fekk kooku ñu ngi doon bàyyi xel ci ñoom kooku moo ma setal donc kon daal nga xam ne loolu léegi dafa jafe xarit daal wax bi moo gën a yomb que am bi jafe na daal ndegam am na jafe na toog. ndax dangay gis sa ne ci sama xarit dëgg la premièrement ci li may njëkk a ñëw looloo ma gën a metti nga yore ay bagages yu jàmbur. comme jigéen daal bu toog nii liggéeyu deful dara. nga gis sa benn xarit wala sa benn mbokk buy dem di tukki di ñëw. di la jox ay bagages ne dama lay jox. ngay jaay loo ci am nga jël ko. léegi yow nga jël ay bagaasu jàmbur di ko jaay ah sa xarit ñëw ne dama cee buggi temps jox la nga jël ko jox ko ba pare mu di la dawloo jël yëfu jàmbur yow yaa ngi seet ne kii sama diggante ak moom sama xarit la mënuma taxaw di xuloog moom mënuma koo yóbbu ci yoon nga jël ci yëfu jaamu ba yow sa bopp yow borom da lay yóbbu sax ci yoon te kooku du ko yëg man yóbbu nañ ma fi ñaari yoon police ndax ay bagage su jàmbur yoo xam ne samay xarit intime laa ko garanti mais mosuma ngaang wax leen ko te ba tey am na sama xarit yoo xam ne ñu ngi tëdd ci ay yëfu jàmbur mais lan laa ci mun dama leen di bàyyeek yàlla rek ndax xam naa duma mës a taxaw di xuloog ñoom ndax xaalis te duma leen yóbbu ci yoon ndax xaalis ndax man xaalis jaraluma ko hmm. ñoom ñoo ma jaral xaalis bi mais garaawul dama koy bàyyi yàlla maa ngi ni toog defatuma dara hmm. mais garaawul amul solo ndax man dama jàppoon ne samay xarit lañu rek moo tax su ma jëlee fi jàmbur suñ ma nee dama cee bëgg rek du ma tiit ndax su weer dee dinañ ma fay hmm. mais ñaari yoon lañ ma fi yóbbu police benn bi yendal nañ ma fa ba ngoon ba kër gi ma dëkk nii rek am na koo xamante ni jaax jaayoon joxoon na ma ay bagaasam ma won ko sama xarit mu jël ko tëdd ci ba tey fayul ndaw si ndaw si waaye xam na man sama jikko kër ba ma ne damay jël xaar bi fay ko mu ne ma bàyyi ko Serigne doo ma fay ndax xam naa la bu baax bàyyi ko ak yàlla mais garaawul ma bàyyi noonu mais man li des sama àdduna dootuma jëlati bagage su jaam di ko jox samay xarit jaay ko ci mbedd mi moo ma gën a jaay ko samay xarit ndax duñ la fay ndax man yenn yi ni ma ko gisee iñaan la wala soxor ndax dangay am sa xarit nga présenté di sëy sa sëy nga présenté ko sa jëkkër ndekk ñu ngi ngoroo ci suuf ngoro ba ngoro boobu ne nekk sëy yow dalay jaaxal ba dangay am problème dootoo bëggati dara ci sëy bi ndax wor bu bon biñ la wor yow loolu dund nga ko dund naa ko dund naa ko mais man lépp dama koy bàyyi tout temps ci loxo yàlla dama lay ndax yow am nga xarit ah man de am naa xarit hmm. yàlla rek a tax may wax xarit moom am naa ko waaye dëkk bi léegi moom mooy loolu dafa jaxasoo am na ñoo xam ne amuñu xarit am na ñoo xam ne am nañ xarit waaye man moom mun naa ne sax aw ma xarit doomu ndey la am hmm. nag maa moom bu ñuy nekk xale ba tey xamal na ma lu bëri man tam xamal naa ko lu bëri mais ba tey musoo musuma dox ba dégg ñu ne kii am na lu mu wax sa ginnaaw wala man lu ma am lu ma wax sa ginnaawam hmm. te yàlla rek a tax may wax dañu ñaar ànd yàgg nañ torop ba nañ ko bu suñu rombee sa dañuy naan les jumelles sont là hmm. ñaari xarit yaa ngi nii ku dugg seen diggante yéen si des mais xarit nag mun na ne xarit loo leen ànd ànd des fois dina am ay wax yu ndaw seen diggante mais fekkee ay xarit dëgg ngeen da ngay woo kenn bi nekk ah man de dégg naa li wala li ma def tey neexuma kook su defee erreur mu ne la ah nit nit la nit yëppay def erreur mun naa ne li ma def nii baaxul après ngeen toog waxtaan àndaat demaat ngeen fàtte lool man loolu laa gis si xarit waaye léegi ñu bëri am ñu xar man mun naa ne benn xarit rek laa am ñeneen ñi may ànd ñëpp ay ànd ñëpp ñeneen ñu si des ñëpp ay ànd noonu parce que da ànd ak ñoom tey ngeen toog waxtaan suba ñu génn mu naan xool ko xool ko kii xool ko kii lu muy lu muy xëcc yëpp di di xàññi yëpp xamul dara wala amul dara su jógee di naan moom lii la lii la def mun a jàngoo wala lii wala or que c'est pas loolu laay wax an waaw suñ génération bi moom fu ñu toll ni moom mun naa ne xarit amatul yombul yombul am xarit bu baax parce que jalousie bi dafa bëri surtout parce que da ngay gis kenn ki da soo gisee day sañse di teg cheveux di def lu nekk di sol daal yu rafet léegi yoon nag da nga koy ñëwee soo waxee mu ne ah kii moom donc kii mbaraan rek la fi nekkee mm-hmm. wala soo demee dafa nekk di lépp te du fay mm-hmm. wala si góor ñi la koy jëlee di di yàq sa der kooku noonu mun naa ne kooku du sa xarit mm-hmm. parce que soo nekk sa xarit ngeen i ànd nga tey nga sol lu rafet nga génn mu ne xool ko da ko àbb wala dañ ko ko may loolu moom du xarit affaire jalousie bi moom tamit loolu la fa la jógee. loolu la rek fa la nee xarit am na wala amul man gëm naa ne xarit am na puisque man ak samay xarit duñu ay xarit ay sœur lañ. sœur yi nga xamante ne duñu umpale lenn ak dara lu ñu am ñoo ko bokk lu ñu mës a def ñoo ko ànd def ko te kenn du yëg donc buñ nee xarit am na wala amul am na bien sur am na. waaw puisque ñun nag suñu ñun ñun ñi ñuy àndal ñun ñuy ànd ñun ñett dong lañ te bi ñu dalee ànd ba tey dara ñaaw ci ndax man mii nekkuma fii Sénégal mais sama doom ki mu nekkal sama doom sama mag la ñoo bokk papa ba pare mu dellu nekk sama xarit ak sama beneen sœur tamit ñoom ñëpp sañuy sañuy ay xarit lañ ñun ñooy ànd ñooy defandoo lépp démb ak barki démb ba muy metti bu ñuy souffrir ñooy ànd souffrir buy neex ñooy ànd kii ñu bokk neexaay bi donc buñ nee xarit am na am na bien sûr puisque nekkuma nekkuma Sénégal mais des fois samay xarit dañuy def loo xamante ne di veillé ci sama doom ndax nekkuma ak sama doom mais lépp lu ñuy def ci sama doom man nekkuma fi mais sama doom dafa may wax lépp te loolu dafa fort donc man mën naa gëm ne xarit am na. li ma gën a métti ci sama àdduna sama xarit aussi moo ma ko def mais nag xarit dafa am àndandoo am ndax kooku dama ko jàppee woon xarit mais du sama xarit li ma gën a métti sama àdduna loo xamante ne du ko wax ba ba may dee sama yaay sax xamu ko du ma ko wax ba may dee xaxit moo ma ko teg xaxit billaahi wallaahi te kooku jaax naak moom fu nekk argent de poche sax dama ko daan jël di ko jox maak moom ñoo sama lépp ñoo ko daan bokk mais mu def ma jëf joo xamante ne mënu ma ko nettali mënu ko nett te li ci gën a garaaw dañ leen koy nëbbal di ko muñ mais ñoom bu ñu génnee yàq la leneen li ma mettiwaat mais loolu metti na ma mettiwu ma parce que damaa gëm ne rek du woon sama wërsëg bu doon sama wërsëg la dama koy am ñëw nañ nit ñëw na ba wax ak man ba jàpp dat ni daf may marié te li ma ci gën a metti du sax sama xarit rek yem ci mais sama mbokk la aussi nekk sama mbokk sama xarit ma tegoon ko xarit yéene lépp lu baax nëbbuma ko sama dara mais mu wax ma trahir ma dem yàq sama dex ba mu loolu fekk na jalousie la fekk na man ki ma bëggoon loolu loo kooku moom moom la bëgg léegi pour mu am kooku foog mu yàq pour foog mu yàq ma fa mais nag yàlla sàkkalul ku dul dee mais sàkk na ku dul torox am na ñoo xam ne boo leen bëggee toroxal yow yaay torox ci àdduna yàlla nañu yàlla may rek xool bu rafet jikko ju rafet ak sincérité. Mhm. ah man pour man xarit am na la pour man man jàpp naa ne xarit ba tey am na ndax ka nga xam ne moom nga def confiance soo amee problème moom nga koy wax yow doo ci xalaat keneen bu amee problème aussitôt problème mu sérieux sérieux moom woo waxtaan moom moom mu jox la sa solu mu jox la solution moom it même chose bu amee problème wala ngeen waxtaan si sottante xalaat man gëm naa ne kooku sa xarit la kooku nag mën na nekk ku nekk mën na nekk sax sa yaay bi la jur mën na nekk euh, sa xarit te ka nga xam ne da ngeen xamante sa morom mën na nekk ku la mag mën na nekk na nekk sa sa nijaay mën na nekk sa bàjjan mën na nekk képp ci famille mën na nekk en dehors la famille mën na nekk sa voisine mën na nekk ku nekk mais xam naa ni man xarit am na sama mag la ñoo bokk benn yaay bi ñu jur man problème bu ma am muy sama néegu sëy muy feneen ak feneen man moom laay woo ne lii ak lii moom it mu xelal ma ci lii ak lii moom moo mag tamit mais bu amee problème moom tamit daf may wax même chose ne ma defal ne ma lii la nii moo am lii moo ci am xeebul tamit sama xalaat sama ko ne doo tee ngaa def nii wala mën nga ko defee nii da koy def. démb la woon waaye ñii baax ñu ngi baax ba léegi ay xarit yu ànd ba léegi ngay jël par exemple am naa xarit boo xam ne di mu nekkee xale ba léegi ñoo ngi ànd mu xamal ma secret ma xamal ko secret musuñu toog fenn nga dégg ko ci keneen te moom it musul toog fenn dégg ko ci keneen te ñu ngi ànd ba léegi tekk lu baax ma xewlee mu ñëw bu xewlee ma dem ñi ànd ci lu rafet lu baax mu baax bu bëgg a dee ku ne na xarit amul xarit am na ndax ñiy baax ña ngay baax ñiy bon ña ngay ñu ngi bon mais léegi la dëkk bi ëlbatiku léegi xarit amul àndandoo am da ngay toog ak nit wax ak moom ba pare won ko ginnaaw nga dégg ko mu wax ko ci mbedd mi mu la naa xoolal kii mi ngi di ñëw wax lii te amu ko teg sa der bi lu ñaaw moo tax léegi àndandoo moo am xarit amut am na ñu am ne am na ñu wax xarit am na am na nag ba léegi nag am na voilà am na ne xarit amul mais am na nag waaw parce que ñuy baax ñu ngi baax ba léegi mhm. voilà am na man moom am naa benn xarit je peux dire ko moom naa sama xarit la sama doomu ndey la mais soo déggee inconvénient bi mooy li tax ñu amul parce que peut-être xale daf lay def dara moo tax mais am na ba léegi waaw am naa ko dund naa ko même pas yàggul yàggul ne mais man je peux dire moom am na voilà am na daal am na ñoo xam ne xarit dañ naan sax euh, xarit buy say waru ànd ko say mais man sama meilleur ami day say mais sama xarit la ba léegi franchement lu yendu ci moom fanaan ci man am na ba léegi am na ah day tax nga gën a xam xool sa bët bu baax xam ki ngay àndal li moom leçon la rek la defe naa day tax euh, koo gisatul koo gis rek dootoo koo jàppee xarit problème mu jigéen xaritoo lu koy indi mooy affaire góor franchement chaque jour moom soo gisee ñaari xarit yu góor moom boo xoolee ba ci biir affaire góor la affaire góor la no affaire jalousie da ci am nag sama far yaa nangu sama far genre demee noonu loolu daal lay mun a indi noonu daal yaa nangu sama far mais yàlla xam na daal day tax benn yoon nga xam fi ngay teg sa tànk Euh, kon boo ñoo ko déggandoo reportage boobu lay may félicité félicité sama petit frère boobu di Abdoul Aziz Ban nga xam ne moom moo gañee raaye boobu di jeune reporter yi doon def euh, moo gagné meilleur reporter euh, télé télévision mu nekk ci RTS moo mo mu jël raw gàddu ga di Abdoul Aziz Ban di rakkut ci Ndoye Ban di doomu Pire Sañu Xóor Pire amate nañ ndam kon bokk maa ngi koy félicité di félicité journaliste yépp yi doon organiser affaire bi ak képp koo xam ne da ngay da ngay journaliste ñu ngi lay félicité di félicité encore une fois abdul Aziz Ban c'est le sang nag affaire bi ci <laughs> ci deret ji la. kon bokk sëñ Baara dégg nga dégg nga dégg nga bi. waaw li xale yi wax. Mhm. Mhm. kon de pire pireeti na xam. waaw waaw pireeti na de <laughs> ni la de. waaw dégg nga xam nga tamit bu ñu bu ñu boo xoolee reportage bi ak appel téléphonique yi daanaka. Mhm. ñoom ñoo bokk lu ñuy wax xam nga dañ fi doon am ay émission yoo xam dama naan la dafay émission yoo xam ne nit ñi ñoo koy moom. nit ñi ñooy moom émission bi des fois am am mës nañ fi am benn émission boo xam ne dañ doon def dafa def émission ci ku nekk na wax ki ko yar nan la ko yare mais émission presque ñun waxuñu dañ ubbi rek bàyyi téléphone bi mais nit day wax bay jooy lii tamit moom la muy affaire xarit dafa dafa sori dafa sensible ba pare dafa sori xam nga euh, xarit nañu am ben orientation tamit si dëkkandoo junj nga ko ci sa commencement wax mu sa ndaw dekkendo yonent bi daf don denk nit ñi dekkendo ba nit ñi fogg ne sax so dee sa dekkendo dalay don pour wax dekkendo nan lañ ko wara jappé ak tay ni ñu jappé dekkendo da ngay dekk ci kër gi gi ni taxaw ni ñu gis ne ki dekk ci kër gi la kenn di agressé ñun ñu tok fi diko sétane kenn du jóg dimbali ko ñu dégg ay yuuxoo ci biir kër gi ku ne sa balcon ngay taxaw di séentu kenn dawul jéem a xool lan moo xew ci kër gi ñu ngi dégg yuuxoo yi dañuy xëy dégg ne pourtant ñetti nit dee na ci kër gi walla nangam te ñépp a ngi sëpp seen balcon di séentu kenn du dugg dem dimbali leen. ah dëkk ak nit mu leer la ne yow kii amul lu mu añe amul lu mu reere yow sa magasin ceeb bi ceeb bi tuuru ci suuf rek man man mën na koo añal moom ay fan ceeb bi tuuru ci suuf ci sa magasin est-ce que kon te yonent bi noonu ne woon même ki nga xam ne nii li ngay togg daf koo xeeñ rek am nga obligation wu yàqal ko ci demoon ba ne même boo bëggee yëkkati tabax bu mag mu nar ko tiim tàggu leen ndax ngelaw li nga leen di nëbb est-ce que ñi ngi sàmm yooyu te loolu c'est important dara gënu ko garaaw léegi xoolal ndakaaru nan la ñu dëkkee ndoy baan day jóge piir xam ne Aziz baan fii la dëkk ci kër gi wala ñu wax ko ko mu ñëw di ko laajte ñi dëkk ci kër gi ne ko xamuñu ko da taxaw kenn nuyu ko di ko laaj mu ne ko xaw kooku te mu leer ko ne ci kër gi la dëkk yu mel noonu il faut nit ñi tamit xam ne ñun ay nit lañu te dafa am lu ñu fi yàlla wàcce yàlla waxul rek simplement dama wàcce nit ci kaw suuf pour mu uutuma fa waxu ko noonu rek bàyyi waxu ko noonu rek bàyyi te euh, nit loo bëgg a defal yàlla defal ko ko ci nit ñi ndax yàlla du wàcc ci kaw suuf di jox Musa Ndaw lii wala mu koy jox Binta wala Mami da koy jaarale ci ndooy baan moom jaar ko ci keneen moo tax ki la ne nga c'est bon nga accepté ko doon missionnaire parce que yàllaa la yebal ci nit ñi pour nga liggéey ci côté boobu sellal ko dëggal ko comme ni nga koy defee. ñu jël kii allo salaamaaleykum. sëñ bi lay ziar. baax. Euh, waaw. waaw ay am na benn tur bi. waaw. xarit amoon na ay ay jamono. Mm-hmm. waaye léegi nii. amatul léegi bëreetul de. Mm-hmm. dafa mm, ku wax. mu mm. la mooy euh, jafe-jafe bi mu am xarit ma am ko teg. Mm-hmm. man man mi am naa xarit waaye léegi damaa bàyyi ñëpp xam nga ma def xarit. Mm. sama nga xam ne bu ma ñaan yàlla nangu. waaw ah, moo gën de. moom laa def xarit beneen bi des mooy. jikko bi Serigne Cheikh waxoon bu ko nit amee nga def ko nga def ko waaye man moom laa jàpp. Mm-hmm. man su ma xoolee sa jikko rafet sa jikko yiw nga yiw. Mm-hmm. def naa la xarit. Mm-hmm. waaye sama xarit dëgg-dëgg sama yaay nga ful de. bu ma am bu ma tàllee la ñaan la yàlla nangu. allo. dem na 88 628 14 14 ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax 88 628 14 14 ñu ngi leen ciy xaar waaw. seen taw. waaw c'est important. Mhm. mooy li ñu wax boobu ba léegi. Mhm. Mhm. Euh, tey soo xoolee Baara Ndoye li ëpp ci ñu wax. ci ñu intervenir. lu négatif la. Mhm. ci seen diggante ak seen mbokk. Mhm. ak seen i morom ak seen i xarit. Mhm. waaye nga gis ni ak lu mu ndaw ndaw am nañu pourcentage bu am solo. ci ñoo xam ne dund nañu bànneex ak ay nit. donc débat bi tey li ko tax a jóg. li nga xam ne moo waral émission bi tey mooy ñu xam ni. xarit ah day ñaar ñoo xam ne. day ñett ñoo xam ne. day ñeenti ñoo xam ne. ñoo bokk fa nu bëgg ak la ñu jëm. te kenn du ci wóor ak moromam. seen nijaay dafa dugg léegi ci émission bi boote ba États-Unis mhm. mu ne dalay jaral mhm. sa xarit dugg ci loo xam ne du dëgg mhm. nga rayante ji ak moom ba indi ko ci dëgg ak am solo ndax dama aadama matul te ku matul da ngay juum waaye sa xarit moo lay mottali yenn saa yi suñu borom dañu fi indi pour ñun ñuy mottali wante waaye ki lay mottali gën ci yow malgré que sax yenn saa yi mu mel ne sa noonu waaye sa final da nga la lam ma waxoon mooy dëgg loolu dafa am solo bul nañu bàyyi jaayante bi Sëñ Abdou Lahad Mbacke da doon wax na mhm. bàyyi leen di ànd di jaayante mhm. da ngeen di tàggoo di jëwante mhm. bàyyi leen di ànd di jaayante ndax da ngeen di tàggoo di jëwante kon na leen dëgg rek boole dafa am solo kon ñuy fexe di ànd ci dëgg dafa am ku ne la jeunesse peut être un obstacle dans la vie de quelqu'un wax na deug xam nga nek gone gu jigen am 17 ans japp 19 ba 25 ans ba nga nek gone gu goor nek sa dig doole day na xari nga am xarit de yalla bo ci bolé am as tout parce que deug ñu wax la ko day jafé té sax amana wajur yalla jur ñoo lay gëna ñak baña wax deug ndax na ngay xol la nga am xam nga dom ding ko ding ko bëgg bëgg sal ko kamb waye xarit ba ca biti soxlawul sa dara sa démb lay xol ba nga ni and di goné ngi ni test ci yalla moy wër wërsëg tay yaa ngi say auto mom suñu borom mi ngi su to waaye na la nga yor yow mais fo jaddé mëna la saay ci nga ni du dëgg de li la war moy nga top sa waxu xarit wëñéku nga xam ndam rek nga ci jëlé tay ma nettali lo xamné dama ko dund ak nit ndax ñu tok ci plateau di wax suñu xarit suñu xarit dé ndax dund nañ ko man awma xarit bu bess xarit bu bess awuma ko fukki ak juróom-ñaar moo gën a ndaw ci ñi may àndal. Mhm. fukki ak juróom-ñaar maanaam li ñu def. Mhm. yoo xam ne 2000 ki ci gën a ndaw 2000 la ñu commencé ànd. Mhm. tey def nañu fukki at ak juróom-ñaar ba ma ñëwee Ndakaaru ba léegi amoo fi xarit bu bees. ci plateau laa ne dama koy wax mu leer. ñooñu. tey luñ ma wax. dama koy appliquer. parce que ba ñuy ànd ma ak ñoom. doon jàngal. man bi may dugg école dañoo jóge daara ja ñëw bi ñu ñëwee euh, suñuy at ëpp. ñu wàññi ko dugal ñu. Mhm. bi ñuy dugal sama xarit di fekk na rawee nañ ma ay juróomi classe. Mhm. kon ñoo ma jàngal. Mhm. amul ku ne ma lii mooy A wala samay xarit ñoo ma jàngal. bi ñu may jàngal anglais maa ngi def CM2. kon kuy weddi xarit amul man du ma ci bokk. man dama koy dëggal. sama xarit moo ma jàngal man. te tey amaa nañu ci bari maa leen ëpp tey li te ñoo ma jàngal. boole ko ak xol bu la ñu war a ñëw sama kër di ma jàngal si. kon xarit lu am la te mhm. nañ ci bàyyi xel mhm. dafa am sama benn waaye ñu bokk nekk maa ngi moom ak sama benn mbokk mhm. ñu xëy benn jour ñu jotee mu génnee ko mu naa tudd turam Moussa Mbaye la tudd mi ngi caaro defar portable ko génnee sama mbokk la benn deret mu génnee ko néeg ma génn ànd ak moom foo jëm ma ne ko soo ko génnee génnee nga ma ñoto ne ci néeg bi. maa ngi moomay ànd. ngay sama mbokk ñu bokk benn deret. nga génnee doomi jàmbur ci guddi gii xawma fu mu jëm. génnee nga ma. wallaay lazim ma génn ànd ak moom. suñu dëkkandoo bi ñu bokk ci kër gi. ñun ñoo fexe woon ba mu ñëw luyee ci kër gi. mu ngi tudd Sidi. di nekk poste Thiawre moo nañu kaay leen ngeen tëdd fii. fa ñu fanaan ba ñu xëyee lañ jëli pantre yi ne ca maag moom. wallaay lazim te ki ñu ko te ki tey loolu ki ko def ma ngom ñoo bokk deret mhm. waaye sincérité bi nga xam ne moom jënd ma ko dund nañ ko maag moom mhm. jomb naa mhm. di fanaan ci nekk di ko bàyyi muy génn mi ngi may dégg mook soxnaam ñi ngi tëdd tey di ma dégg soxnaam maa ko takki ay doomam maa leen génn ji te tey su fekkoon ne wanuma lu sincère su nga génnee sama yoon du ci nekk damay xëcc sama mbàjj eh bañu xuloo mënu ko gënal la jël samay bagage gën and ak mom mhm. bañu ñu xëyee lañ am fu hmm ko kookee mhm. defon ko dama nañ ba lam doon liggéey ñoko ko jox hmm adina ngo wallahi lazim duma waxé bakkan mhm. ñoy dëgg xam nañ limay wax hmm xëy na amana mi ngi jëma dugg sax ba son mënta dugg waye xam na limay wax bax est ce que du ki allo allo assalamu alaykum wa salam ah no ya gëna liñ da ngeen def waaye kana ah, man abu abu bakri laa hmm waaw euh, émission bi am na solo. Mm-hmm. yàgg naa laa déglu mos naa woote nag boobu yéen a ngi doon waxtaan ci xale yi di bëgg ci mag ñi quoi. Mm-hmm. waaw. dëgg la waaw a ngi wax ci xarito. Mm-hmm. dëgg la jafe na mais am na. parce que man euh, am na xarit yoo xamante ne ba ma dalee ànd ak ñoom boobu maa ngi door a jógee Casamance maa ngi am treize ans. mais ba nii nii ñun ñooy ànd. am naa vingt neuf léegi. Mhm. dañuy ku ci am problème da ngay woo sa morom waxtaan ak moom mu xelal la ci li nga xamante ne moom nga nekkee ko mhm. ku ci nekk da ngay yéene sa moroom lu rafet. Mhm. bon bokkuñu métier ku nekk yaa ngi ci métier bu bu nga xamante ne euh, moom la la yàlla tànnal. ku nekk lu rafet nga yéene sa morom. wallahi am na ci koo xamante ne ñu ngi koy wax Omar Ly professeur la moo ngi jàngale côté Kidira. mais avant mu doon dem côté noonu suy def euh, suy def euh, examen. Mhm. wala concours daf ñuy daf may woo ne ma booy ñaanal ma quoi. parce que mhm. dañu am yaakaar ci man quoi. dama mhm. ne dama naan ko incha yow li lu baax rek ngay am parce que da a baax. am naa ci koo xamante ne moom ngi tudd Ahmadou Bamba Sagna. moo ngi dëkk cité comico sama xarit la. lu tax ma wax ko euh, su ma nit jëwee. sama ginnaaw mu ne mu fekkee ko. su la waxul dara bu ñëwee ci man dina mën a booy. Mhm. kii wax na la lii ak lii ak lii. Mhm. kon ñooñu dañ dañ laa bëgg te yàlla moo tax. Mhm. te lu tax ñu nekk ba léegi ma ku nekk dëgg ngay wax sa morom. Euh, su ma su ma su ma jàddee dañ naan ma booy nekkuloo ci yoon de. ñoom bu ñuy jàddee man leen booy nekkuloo ci yoon. ki ki nga xam te ne mooy Ahmadou Bamba Sané def ma des fois ñu xuloo maanaam dañuy jàppante ca mbir werante. mais mais du tee après ginnaaw loolu dañuy daal di àndaat. Mm-hmm. dañuy daal di ànd yàgg na mais ba léegi wallahi sànq rek yàggul ak maa ngi koy woo téléphone ñuy waxtaan. Mm-hmm. Euh, cela veut dire que ni pour dëggal que ni am na ñu naan xarit amul wallahi am na am na ñoo xamante ne dañ laa jàpp te duñ la mës a bàyyi. Mm-hmm. Euh, yow nag yàgg naa laa suivre de depuis Walfadjri man laa commencé suivre. am naa fi enregistrement yu yàgg sax si sama téléphone dama leen di déglu ba léegi. Mhm. Euh, nga nuyul ma baara te nga xam ne que man mus naa ko woo téléphone. Mhm. doon ko wax benn euh, affaire boo xamante ne amaana euh, bëggoon nañ ñu gise ma moom mais ba léegi yembagul. Mhm. dafa fekkoon dafa amoon benn waa joxoon dafa séer la quoi. et ma bëggoon <laughs> a daf ma bëggoon a ma nëboon quoi moo tax yaakaar naa su fàttali ko mus naa ko bu ñuy waxtaan ci loolu quoi. voilà su su yàlla dogalee daal euh, incha allah dinaa fa ñëw comme saa ma wan la mbir yi nga xam nga xam ci dara quoi incha allah. d' accord d' accord. waaw ah, incha allah ok. merci beaucoup 88 628 14 14 waxtu yi dab daal nay dab daal nañ ñuy dab nag ñu jël auditeur bi mujj ndax euh, ñu jël kii allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, Cheikh yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax. di rafetlu jërëjëf jërëjëf. li ma ci a kii mooy euh, heure euh, heure bi nga xamante ni ci ngeen koy diffuser. Mm-hmm. parce que émission bi njëriñ bi ah njëriñ éducation ak ci bi muy def bi mu ni ni mu a raxase jikko yi jikko yi sénégalais yi. Mm-hmm. dafa waroon a nekk une émission boo xam ne nii c'est une heure boo xam ne nii euh, c'est une heure à haute écoute. Mm-hmm. waaw essayé gis avec euh, les les kàngam de de la RFM. Euh, hmm. ñu ñu kii ko ñu wutal ko tranche. Hmm. premièrement au niveau de la rajo deuxièmement au niveau de la télé parce que RFM ay am na ay émissions c'est euh, le am nañ ay émissions yoo xam c'est des émissions référence. Hmm. mën ci tu ci wax quartier général. Mm-hmm. mën naa ci wax euh, mën naa ci wax jàkkaarloo bi. Mm-hmm. donc dañ ko war a wutal au de la de la grille des programmes de la télé. Mm-hmm. benn émission boo xam ne ni day kii euh, euh, dafay dafay dafay jàll heure boo xamante ni nit ñi dañ koy soxla. pour kii parce que actuellement réew mi dafa toll foo xamante ne nii. ñu koy dañ ko dañ ko dañ koo kiiwaat. parce que ñi nga xam ne ni ñoo daan nekk référence ëllëg ñoom ñoo xamante ne ni ñoom ñoo yàq jikko yi. premièrement buñ ko buñ ko nëbbu mooy mooy sëriñ yi. Mhm. sëriñ yi ci nga xam ni nii yàq nañ jikko yi ci lañ bokk parce que bu fekkee ne yow sëriñ da nga koo yaakaar ah parce que dafa nekk sëriñ surtout sëriñ bi waaw wala nekk surtout Alaaji Malik wala mu nekk surtout Baye Laay mu nekk wala mu nekk surtout Ndew muy def loo xamante yow mi nga xam surtout taalibe taalibe la jom jom nga ko vraiment man day dama ne murid laa ci sëriñ Tuubaa laa ki sëriñ sët boo xamante ne nii ah wàcc nga wàcc nga yoonu Serigne Touba euh, ak lu Serigne Touba digle woon dama. allo moom li mu wax rafet na waaye ñun waxuñu wax yu waxu xarit la ñuy wax. Eh, xarit te xam naa ni. peut-être am na fu mu jëmoon xëy na fa mu doon daane la ca xarit la doon daane. Mm. waaye waxu xarit la wax waaw Binta. sa euh, mot de la fin rapidement ñu daal di tàggoo euh, la temps que ñuy làmb jot maire bi mhm. sunu maire bi xam naa ni allo. waaw na ngeen def wàññi sa rajo. maire bi tey. ñu ngi bu baax ñu ngi lay ziar bu baax. kooku Ndeye waaw. waaw man de benn ndongo li ñuy wax Birane Sène. Mhm. dëkk Mbour. Mhm. thème bi ngeen ci moom thème am na solo baax a baax. Mhm. waaw man nag mosuma am xarit de waaye. Hmm. xarit am na de. waaw ah, am na am na lu tax amoo ko kon. am na waaye man moom yàlla dafa dogal ni xam am na ñoo xamante ne suñu borom da koy dogal ñu am ko. waaw. man yàlla dafa dogal ni man amuma ay xarit mais am naa ay àndandoon. waaw foo teg ni xarit am na kon. waaw parce que dama gis ñu bari ñu koy dul. Hmm. gis naa ko sama yaay gis ko sama waaye mais nag damay confirmer ne ñi may doon àndal démb ñoom lay àndal ba tey. ok d'accord. waaw. jaajëf. waaye waaye buñ demee ci sëriñ Serigne mbindum Serigne Touba bi mu bind bi ñuy wax xasida bi ñuy wax tasadu siyaar. Mhm. am na loo ciy jàng loo xamante ne bu boobaa nit ñi buñ ko doon buñ ko doon buñ ko doon jëfe hmm. ndaw ñi. dootuñu amati xarit bu leen war si àdduna. Hmm. war na sëriñ Tuubaa waaw parce que bu mu naan taso di saa mu ngi naan yaa iyal sibiyaanu la tastaxilu anil huda wa bihulu istaxilu mm-hmm. bil xis wi mm-hmm. boo demee mu ci biir mu ngi wax sax jotaay yi nga war a nekk ak jotaay yoo war a nekk mm-hmm. mu ngi dem ba ci biir di la wax naa naan na nga ka nga xamante ni moo la gën a jege suñu borom nga def ko xarit suñu defoon noonu ñun ñëpp sawaay kon ñëpp noppal am benn jafe-jafe xarit effectivement jërëjëf waaw loolu rek laa si doon sànni kàddu pour fàttali ko nit ñi. nga mhm. xam naa ne ku jàng tasa du si dootoo réerti si xarit. Mhm. waaw yàlla nañu yàlla nag dool yi dimbali. Mhm. ci kàttanu Serigne Touba. ñun nag matul ni nag mais nag dañuy dañuy dénk lépp suñu borom. lépp loo gis rek ay jaar jaar la mais yàgg yàgg dina jeex. suñu borom moo bindee noonu àdduna. waaw baax na kon jërëjëf. jërëjëf. yàlla na leen yàlla euh, doole dimbali. amin amin amin barki borom Tuubaa. jërëjëf merci beaucoup waa Binta rapidement. waaw xanaa di rafetlu teewaay bi. Mhm. di kontaan ci xalaat yi fi génne. Mhm. man daal li may dollee rek mooy nañ nit ñi jàppe ñëpp ku ne jàppe sa moroom ni sa bopp. Mhm. képp koy àndal na nekk ay relation yu sen li nga yéene sa bopp nga yéene ko nit ki. ngeen ànd te yàlla tax. loolu nañ ci jamono ji foo xam ne. Mhm. man de du ma gisati nit man sunu borom rek laay xool. Mhm. lépp lu may def daal maa ngi ciy sédd yàlla. Mhm. te defe naan loolu mooy li am solo. Wow, di gërëm ñëpp nag di la gërëm yow ndoy baan mhm. di la wax sama xarit nga mm. Wow, mhm. sama xarit nga de mm. Wow, wow. Mm. ah man de jàppe naa la xarit bàyyi ma bàyyi la ak baaram nga xarit <laughs> baara daal defe naa waaw di nuyu ñi euh, monsieur ndaw ak mami di kontaan baara ma lay nuyu yow tamit di wax euh, jërëjëf à bientôt inshallah <laughs> mami waaw maa ngi delluwaat di nuyu ñëpp di ziar ñëpp hmm? di wax nag tey moom émission bi dama kontaan trop trop trop torop dama gën a kontaan tey mhm. monsieur Ndao franchement plaisir la trop ah xam-xam rek nga fi indi plaisir la trop pour mhm. partager ak yow table bi ah soxna si mhm. moom rafet moom taxam rek macha allah moom man daaneel na fa <laughs> mais mbëggeel dafa bari façon ndax nit ki mën nga ko bëgg di ko wax dëgg ah mais tamit nit mën nga ko bëgg bëgg koo xamante ne da koy bëgg dëggantaan mu nekk sa xarit ba yow doo ko lu mu def baax na lu muy bëgg def baax na yow dama seetlu loolu ci yow ci Ndoye baax waaw gis nga. Mhm. <laughs> def erreur. du def loolu. léegi dama koy code laaj. non non non su ma leen dama seetlu loolu rek. dama ko seetlu su ma ko waxee rek dama ko seetlu. <laughs> Baara yow moom macha allah. Hmm. toujours moom danga may dolli. Hmm. avant ma lay gis ba bi ma lay gis franchement toujours sa wax beneen affaire la mhm. ndooy mhm. yow moom chapeau mhm. wax feeñ munuma wax dama lay ñaanal yàlla rek <laughs> Wa, di di di di jéggulu nag bu fekkente ni wax nañ fi dara lo xamante waxu ñuko won wax lu ñaaw la ñu nit mo matul ñi ngi jéggulu di ñaan di sakku ci yeen jéggal di leen wax alhamdulilah rabbil alamin ba beneen yoon yàlla nañu yàlla wane la waat ñun ñëpp si jàmm ak salaam. jërëjëf merci beaucoup monsieur Ndaw waaw waaw mais jant ak ngërëm Ndoye. waaw yow la directeur général des cas sociaux. maa ngi lay gërëm di gërëm sëñ Baara. Ah, soxna Binta c'est un plaisir. Ah, soxna Mami kontaan naa trop ci yéen bokk ak yéen plateau bi di gërëm Sénégalais yi. Mm-hmm. ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew. Mm-hmm. Eh, li ñu fi indi woon tey mooy waxtaan. Mm-hmm. xool la ca baax jox askan wi. la nga xam ne baaxul ñu tere leen ko. li nga xam ne wax nañ ko muy lu baax na ko jëfee ko li nga xamné moy mooy bi yalla nañ ko bayati buñ ci ci di déggal ndaw ñi nañu jege mag ñi nañu jege mag ñi xaritu mag dafa am solo man amna ci bu baax mi ngi fi nek directeur Adja wara di Papa Ibrahima Fall di sama xarit kërëm dama fay dogal daf may xelal ci lu bari di gërëm sama yaay bu baax moom mooy sama xaritu bakkan moom mooy sama xaritu bakkan di gërëm sama soxna di gërëm sama directeur général personnel bi sama étudiant yëpp ak parents étudiants yi di gërëm RFM ki yëpp merci beaucoup merci jaajëf merci beaucoup waaw baara maa ngi gërëm ñu doon déglu yëpp sama xarit yëpp ñoom xam nañ seen bopp parce que mënu ma woon toog naan sama xarit ni sama xarit ñoom juga jong ak grand Ibrahima ñoom Issa Dieng pour te dire man am naa xarit boo xam ne sant naa ko liggéey daanaka kër mu taxaw ko fa mu pare moom laa yëkkati xaalis bu jox eh, kon kooku xam nga sama xarit la eh. voilà kon xarit am na mais nag yi nga ci am dëggantaan dëggantaan moo bariwul kon ñi ngi gërëm ñi ñu doon déglu ñëpp di leen jégglu tamit parce que déglu dafa metti sa da gis koo xam day déglu bëgg réagir te du mën a jàllale kàddoom fu mu bëgg mu egg parce que du mën a du mën a dugg ci serveur ñoo ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di jéggulu te xam ne ni nga ko waxee rek wax tànn la. dañuy tànn xam nga rek. li ci baax rek ñu jox nii li ci des li nga xam ne mooy loo xam ne mooy lu safaanoo ñu jéem koo am feneen fu ñu ko sànni rek di jégglu ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm di wax na rek. wasalaam. waaw ñu moytu ceeb bi bonde. jaajëf merci beaucoup Bara merci beaucoup euh, invité yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm gërëm euh, di leen gërëm bu baax a baax monsieur Ndao ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi fi woon soxna si soxna yi nga xam ne ñi ngi teewoon tey jii di ziar bu baax yow sa taximaan bi doo ko woo sa taximaan bi nu mu tuddati. Eh, ah, baax na tool sa taximaan bi woo ko de moo gën de. sama xarit. <laughs> kooku sama frère la. waaw ah, kon na ñëw <laughs> jël si la sama frère la. Ah, ok maa ngi lay xaar. <laughs> jaajëf merci beaucoup ñi koy sant di ko gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu di nuyu Cheikh Mbacke euh, ndooy ñu ngi koy jaar bu baax a baax ak ñi ñi doon déglu ñëpp ah Cheikh Mbacke Ndoye nekk ca bitim réew ñu ngi koy jaar di félicité waatoo mon jeune frère Abdoul Aziz Ban euh, ci euh, loolu nga xam ne moo ko gagné loolu nga xam ne moom la am. di ko félicité bu baax a baax ak di ci félicité waa RTS surtout ah ah di ko. maanaam ñu ngi koy wax félicitation. voilà Aziz ah ak. Euh, toute la famille kon pire pireeti rek. Ah, waaw pire moom nee naa la. moo pireeti. ndam rek. yéen ñam bi ngeen ko defaree wala. pompiteer ñun waa pire. ñambi ngeen defaree pire wala pompiteer. xam nga lu mag ñi doon di wax foofu. Ah. max lu mag ñi di wax fee ne. Ah. dañ ne la soo doy doomu pire. Mm-hmm. su fekkee agresseur nga. Mm-hmm. looy dugg na ko seet. Mhm. même su fekkee ab sàcc nga. Mhm. kenn du la dàq sàcc. <laughs> su fe maanaam ci looy dugg rek su dee lu baax. kenn du la ko dàq. su dee lu bon. kenn du la ko dàq donc looy dugg. na doon lu leer. Mhm. xam nga ndax dégg nga. xam naa loolu la fa mag ña ñaan. maanaam lu baax looy dugg. da cee am dam lu bon it boo ci duggé dang cey am dam <laughs> manam da mana du lako dak dak su dee nga <laughs> ah. ku meuna a ngay don <laughs> su fekke comptable nga ken du la raw ci comptabilité su ah. fekke ab kat nga mm-hmm. ken du la dak bay mm-hmm. donc ci loy dugg rek mm-hmm. nang ko set motax bi su amé ndam li bet waaw parce que ay magama ki papam ndam rek ndaam rek. Pape Djibi Diagne de moom xam naa ko. ah ndaam rek ñun ndaam rek pee rek. maanaam Pape Djibi Diagne ay ko pee rek. Pape Djibi Diagne de xam naa Pape Djibi Diagne moom parent moom xam naa ko. <laughs> ndaam rek sama xaritu ni yàlla moom xam naa ko. jërëjëf kon boog sama gars yi ñu leen di tàggu fii nag di leen jox dox dajee ba beneen yoon.